بكي جلدي بكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنجلين دي نيو دي لين زيار دي لين بالو حق دي لين بال دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سنو برام يقل كفيت ويرل كو فيتا ba mu mottali mbooleem naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yépp naal nañu ko te naal ay naalam àggale ko te ànd ko mboolem jullit yi ak taalibe yi di nuyu bokk yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di ko tàmbalee ci njabootu Serigne Mor Sàmb gi nga xam ne xàmmee nañu leen yéen a ngi déglu jaarale ci ñoom ab nuyoo di ko jaarale ci Serigne Amdi ak Serigne Chouaïbou kilifa yu baax yi fi nekk yépp Serigne Assane noo ngi leen di nuyu baax di leen ziar di ziare Baye Mor mi nga xam ne mooy borom kër gi di ko ñaanal yàlla ak wér ak fan wu gudd ak tawfiq ba li njaboot gi yéene lépp ci moom ñu yeggale ko te mu fekkee ko te tal ko di nuyu it njaboot gi yépp di ko jaare ci Serigne Cheikh Abdou di ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko ñaan yeeg wax yu baax yi ñu wax yépp yàlla na ko suñu boroom nungu def ko ay yiiw def ko ay tiyaaba te dox seen diggante ak cat di nuyu sëñ Maramata Silla moom it di ko ziyaare bu baax di ko diko di diko di ñaanal serigne Papa gay ma ngi lay ziaré bu baax di la sante bu baax yow ci sa taxaway ak sa japp ci non te lepp di sering Touba rek noo ngi lay gërëm bu baaxa baax serigne ak saa mi doon jangit noo ngi koy nuyu diko sante diko ñaanal bi waxtaan lu yagg ci kër Serigne Cheikh mi ci taxawaay yeeg liggéey bi di nuy jàngatu xasaa yi di fi nekk yépp ko jaare sëñ Ousseynou sëñ Ousseynou Guèye bu ko defee mu jàllaleel ma ko ci bokk yi fi nekk yépp di leen sant bu baax nag ci jotaay bu am solo bi di ñaan yàlla nu yàgg ko fekkee te lépp loo xam ne euh, liggéey nañ ko ci jëf nañ ko ci rek suñu borom. yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point. sunu rajo TV ni ko sëñ Laat sëñ Laat introduire wax ju am solo xam naa solo na ma ci lu jiitu bu yàgg di wax ne dafa bëgg nu waxtaane jëmmi tukkib géej gi ñu tànn ci ay bunt waxtaane ko am ci it ay taxaw seetlu. lu am solo la lu mu ci seetlu bi màggalu Tuubaa gi jub see bu Hizbu ya sëñ Lamine Diouf dañ ma woo ngir nu waxtaane diggante ndakaaru ak garam basam xam nga diggante bu yàgg la ndax la 21 la bala 3 octobre xam nga yàgg na waaye dañ dañ koy gàttal garam basam it ñu bari dañuy wax sëñ tubaa dafa jaar jàll te sëñ tubaa def na fa ñaar fukki fan ndax le 3 la fa ñëw bala 23 août xam yooyu diggante nag yu ci nekk bari yu fay xew di ko fàttaliku di ko di ko topp di ko gëstu lu am solo la ndax bu lu loon loolu jëmmi lii nu nekk ba tal ko duñ ko tal kon jàmm ji nu am mooy liggéey bi sëñ Tuubaa liggéey ndam la it lu mat di mat fettaliku ndax doy na ca di ko waxtaane sëñ Touba bis bi mu liggéeyale ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu la santaane ñu di ko ci la yàlla kon bëggul kenn fàtte loolu bëgg nañu di ko waxtaane di ko dund euh, te mu defe ko ci defe yi woo xam ne bu nu ko nettalee waxtaane ko nun ñëpp di ko dund lu yam rek ci bëgg gi ñu koy bëgg waaye dafa am lu muy suuxat suñu xol ndax Serigne Touba mboolem yu nit di bëgg yépp bu royé ci aw doxinam te dundu sëñ bi yépp fay dajé ci mom manam ku bëgg nek nit ku mat ci fànn yépp da ngay dundu sëñ touba ndax sëñ Tuubaa dafa complété ci mboolem karimul akhlaq yépp ben rek dajewu ci ci mom waaye bu ci nek bo ci tan rek sëñ bi daf ko daf ko pek liggéeyam bu reuy bi nak di liggéey bo xamné ne ci la amé ndam lu yaatu li mu am waye suñu borom moko ko nam mu ca moom xam nga dafa am sababu zahir am sababu batin bu zahir ak sababu baatin mooy dunne rek serigne touba dafa xëy dajeeg tubaab yi liggéeyal yonent bi wala touba bi yóbbu ko ci zahir niñ koy di déglu Baolmedias FM sur www.sunuradiotv.com bu dee dafay baatin borom bi moo ko nam ci sëñ Tuubaa nga xam ne dafa am lu mu yor dara ji ju rëy maqaama mu tedd mu yaatu mu ne ci suñ borom te dara ji jooju suñ borom du ko maye du ko sarxe du ko dénkaane du ko able daf koy jaay te lim koy jaaye ab noflaay nekku ci lépp ay nattu la ak i coona ak i tiis dara ji jooju nag ñu baax ñépp xemmeem nañu ko waaye ku ko dëgmal bu ñu la gaaralee la ca nekk ci ak njëkk ak la ca nekk ci ay coona nga dellu ginnaaw ku ñëw rekk àkk ko ngir taar ba ca nekk ak mat ga ak rafet ga bu ñu la gaaralee la cay tax a jot nga xam ne da ngay fekk ñu bind ca wala yunaalu illa bi bala'in min a'zami balwa loolu nga cay fekk li muy taaru kat limi rafet rafet kat day su ci jot mukk ludul dul la gën tar te gën a te gën metti ci ay nat kon loola moy mbil ma mooy kon kenn du ci jot xam na fly ñi yàlla may tawfiq may leen xol yu leer te ñu bok ci awliya allah ñoom xam nañu ne lii suñ boroom doon wone ku ci bëgg a jot kenn nangu ko sëñ Tuubaa rek ku ko jël te ñett yooyu sëñ Tuubaa tënkal na ko bu dee ci batin wax na leen sababu xaybati an allaha araada an anala minhu jaaha kon yàlla moo namm fa moom sëñ Tuubaa am ca moom daraja an anala minhu jaaha boobu mooy bi ci jëkk ba ca toppoon akuna shafian li qawmi mooy nekk kuy ràmm aw xeetam waaye ba ca ñetteel wanaku na xaadiman fi daw mi nga xam ne day nekk liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne dafay sax nga xam ne diirub àddunaa ngi fi day continuer te sëñ Tuubaa sax waxul àdduna liggéey gi muy liggéey yonent bi alayhi salaatu wa ngir mu nekk lu sax dafa ñaan boroomam na ko bu ëllëgee yowmal xiyaamatul barab ba jaam ñëpp suñu borom atte leen ñi jëm àjjana jëm àjjana ña jëm feneen jëm feneen ña nekk ci seen kër yi àjjana di noppalu man sëñ Touba nang ma defal yow yàlla bu ma nekk sama kër noppalu waaye naa bokk ca ñay ne ci rasulullahi di ko liggéeyal nga xam ne kon moom day continuer Baol Média FM bu nit ñi tabbee àjjana di noppalu sëñ Touba day wéy ca àjjana di liggéeyal yonent bi waj'alni bi jaahihi mimman yaqdimunahu fil janna kon yow yàlla nag ma def ci darajee rasulullaay ma bokk ci ñiy liggéeyal yonent bi ëllëg ci àjjana kon sëñ Tuubaa moom àjjana yi kese tax koon a jóg egg àjjana it rekki say takkaay tax koon a jóg waaye dafay continuer ba bu eggee ëllëg sax mu wéy di liggéeyal rasulullaay sallallahu alayhi wasallam kon ñett yooyu moo sabab li tax sëriñ Tuubaa jóg ngir liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nag suñu boroom teg ko ci ay nattu fi ne tukkib géej gi benn la ci nattu yi day bi ci gën a fés ndax dafa metti te sëñ bi rek defal ko boppam nga xam ne nattu yépp toll na ci ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom te bu ci nekk suñ boroom nee na ko du nattu waliyu waaye nattu yonent lay doon nga xam ne fukki waliyu ak juróom lañuy jël jël benn nattu teg leen te duñu ko attan nga xam ne yooyee nag lañuy dajale ba muy ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ñu teg ko Sëñ Tuubaa ba noppi tegal ko ci ay condition nag mooy suñ borom dane ko ñi fi jiitu woon kat may naa leen ku yanu boo sonnee yenni ko boo dàccee bàyyi boo tiitee ñaan bu la neexee mënatoo dem it nga ne doyal naa mënatumaa dem bu diisee it sañ ngaa woote sakku ndimbal yow nag Ahmadou Bamba boo xasee yanu yan bii li gën a néew ci daw mayinu la ko muy raf rafe rek doo ko def la ci toppit saa yu la ak dégg jamee nga gaññ wala nga yëg ci sa xol ne metti na yemuñu ci xàcc njëg gi waaye dañ ciy boole alag la. yéen a ngi lu yem ci alag la day alag ñi nga àndal boo gisee waxi sëñ Moussa Ka di wax ne yan ban yanoon xut bu yàgg ab daal yi te ëtt nuñ ko moo ko yan raw gaaña dëngañ di way tewatul balaaya tewatul balaaya mooy conséquences yi ne ci biir yëf yi yàlla dana ko yow mayu ma la nga jàmbat te loolu dana feeñ ci biir waxtaan wi ci bërëb yi nga xam ne ci la suñu borom def mu nekk li ñu tuddee phase test ci la yàlla jëkk natt sëñ bi ci loolu ba xam dana réussir ci loolu wala du réussir ci loolu sëñ Touba léegi bi mu jógee mooy mooy leader bi nga xam ne lislaam moom la tànn yàlla tànn ko jiital ko ngir lan mu taxawalal ko diine maanaam fi mu fekkoon lislaam yàlla dafa tànn sëñ Tuubaa ngir mu taxawalal ko allahu qaddamahu wa qaddasa sirrahu li yuqiima mabla diinihi lmahdum kon mooy tegtale na fekkoon na diine ji ñu màbb ko ndax woote bi tubaab yi defe naa bu bokkul ci yi mujj woote woote bu rëy la bu mu woon AOF juróom-ñetti réew la woon ci mois de juillet woote boobu boolewuñ ci sañ tubaa fekk na booba tàggat nañ ko jox muttee yar ko ci ak soxor ak bañ diine ak bañ nit ku ñëw ba ñu leen convoqué mu juróom-ñetti réew yooyu nga xam ne ci la Côte d'Ivoire Mali Sénégal dëkk yooyu bokkoon moo nekkoon AOF keroog bi tubaab yi demee bi bi mag ñu wujjee booba tubaab bi dañu leen waxoon ñu bàyyi joxe asaka di fay lempo yi sàngara ñu valable ko ci diine ji jigéen ñi moom seen bopp yooyu yëpp tëraloon nañ ko ña gàntal la leen ca fekk fekk leen ci ñu teg fa ay tuuma sëñ Tuubaa ci wane ne du ñëw sëñ Tuubaa wuy siwul tubaab bi wane ñëpp waaye Ahmadou Bamba dikkul moo waral ci mois de août sëñ tubaab bind leetar jox ko maam Cerno Birahim ngir mu yóbbu ko Ndar ndax mois de mars la sant la sañ ci Mbacké Bari mars avril mais juin. yéen a ngi déglu Bawol Média FM. ci 3 mu yónnee lettre bi Bawol Média point borom daaru yóbbu ko it ko sëñ Tuubaa fekk na booba sëñ bi nekk dëkk bi ñuy wax Mbacké xam nga dafa def parcours bu bu gàtt rek diggante Mbacké Kajoor diggante Mbacké Bawal Mbacké Bawal ñaari at weesuwu ko Cheikh Ibrahima Fall tax mu jóge fa ndax nanguwul ku jiite sëñ Tuubaa julli ku taxaw ci sàppe si. mu dal ci sa kaw ku ko jitu mu ne ñaka xam meeb la sanni señ bi ci daru salam ci dessasin di 1304 bi mu ci daru salam dafa ñaari at wessasin señ bi jël dekk bi may ko mam Cheikh Anta gawal bolé ko juroom ñeen fukki talibé ak juroom señ bi bi ci Touba fuk ak juroom ben landal wala fuk ak juroom ñaar mu sañ ci Touba fi ji sëñ bi sanc ko tudde ko Touba fii jumaa ji nekk moo nekkoon kër sëñ Touba nga xam ne fii lu ko denc tey wax ne di mandarga ne fi lañ denc sëñ bi fi la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ganee jamono moom Cheikhul Khadim sëñ bi ne foofu def ay xalawaat nga xam ne mbaarum ngeer ak dóor dóorum ngeer la fi sëñ Touba defoon mag ñi wax nañ ne bu fatoo ci biir duñ gis ku fa dugg indi lekk wala naan booba toll dem nañ ba lim bi egg ci fanweer ak juróom-ñeent sëñ bay jiite sikar booba xasaayid yi ni ñu koy jàng tàmbaleegul ndax booba sëñ bi li ëpp ci yi muy taalif day jëm ci tawxiid ak ak tasawuf ndax yenn xasida yi am daax yi lu ci ëpp day tàmbale Touba comme bi mu tàmbalee xoqa Daaru Salaam ñëw tàmbali nag Touba mu tàmbale fa mawaahi boog def fa euh, euh, xasida yi mu taalif lu mel ni ta iya ra iya mii mi ya noonu yooyu ay xasida Touba yi la mu tàmbali nag di sikar nga xam ne bu sikar jotee mooy génn dëbbe bu ju nodd jotee mu nodd ba noppi liqaam di junj mag ñi nag naan leen jumaa ji gën a rëy ci sawu jadd fii lay nekk booba loolu la daan wax mag ñi te boobu mbaarum geer a fi nekk egg ci di leen wax ne diggante fii ak fi suñ borom di taxawale sa ëllëg jëru soli dal fi ñu woote penc ma ëllëg jëru soli dal kon mu xam na te ay mbir yu xóota ngi ci biir ci diggante boobu yoo xam ne de su ko wax ci kaw waaye béréb la bopp buñ ko tuddoon tey rek ne nangam la yi yenn gaa yi dof sax dañuy def te mooy fi sëñ bi nekk tey moo tax mas naa ànd ak sëñ Balla Fally Dieng ak ñenn ci mag ñi ñëw ba toll fii ñu ko def tey sëñ bi wax na yàllaay xakiim bu ko neexoon di denc di jaxasoog nit ñi di wopp du wér di bëgg lu mu am te bu noppee wàccu bi liggéey fii lañ koy def junju la loolu ba tey daana waxi ne yàlla bu doonoon jëmm di dox ci kaw suuf bis bu noppee nekk ci lañ ko. yéen a ngi dégg ñu Baol Médias mandargaalal ci ay bant ak i xamtukaay ginnaaw bi mu sañ ci daarul xudus bi mu sañ ci daarul xudus ab diir mu sañ ci daarul rahman daarul rahman mooy kër Serigne Chouaib moom lañuy wax daarul naar sañ ci daarul minan mooy kër Serigne Bachir di yendu fii di ñëw nag di fanaan si ba ci bay sasin di 1312. mu dugg xalwa ci jàkkee daal Xudus gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga du foofu la jëkk a gisee yonent bi ginnaaw waxoon na ca Mbàkke Kajoor shafaha nii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi rabbi asaabaka bi lim ma mu shafaha mooy tuñante kon gisante woon naa ak moom waaye gisante googa nag gisante indi ordre la yonent bi dañ ko jox ndigal mu ñëw lii nag sëñ Tuubaa dafa engagé njëlbeenu koor bay sasin la dugg xalwa yonent bi ñëw ànd ak ahlu badrin gépp fekk sëñ Tuubaa ci jàkk ci sëñ bi nee na maa ngi koy séen waaye mënuma ko laal bi ma ko bëggee jox loxo dane ma suñ diggante egg na ci boo jëloon feppi suuf yëpp nos ko péricrous du tax ñu jote kon am na def distance bu sori diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi ci njëlbéenu weeru kooru bay sësin sëñ bi soobu waat nag notaat ba kanam waat ci ay xalawaatam bi laylatul qadr gi di ñëw bi yonent bi ñëwaat sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee ak sëñ Touba seen ñaari woom dafa sësante ñoom ñaar bi laa xijaabin wala maane dara doxul diggante sëñ Touba ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi nag ñëw ëndaale médaille bu rëy proposé ko ko na ko nag ah ëndaaleel naa la daraja ju màgg de ndax seet naa ne xuddaam yëpp yaa ma ci gënal kon nag bi si ngi tey bëgg naa ñu nommer la ngay xutbu zamaan. yilif jamono jëpp xam nga kon bu ñu wax borom xam-xam bu mel ni sëñ Tuubaa ne ci réew mi naan suñu borom xam-xam yi ak wàllu bu laa la wax maqaamam xutbu zamaan. yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point sunu rajo TV point com. dara du am te ñu tànnal ko loxoy sëñ Tuubaa ne ko yonent bi ne ko bii laa indaaleel tey bég gi ma bég ci yow daal nommé nañ la ngay xutbu zamaan sëñ bi nangu ko taf ci dënnam ne ko jërëjëf lu baax a ngi nii tey tey nga moom jamono ko neex na waaye am na lu ma ko dàq xol bi gis-gis bu reuy li señ bi jublu moy señ Tuubaa mo bëggu ta sol rapiti kenn manam mbubb mu naan solal nañ ko diw solal ko señ bi la señ bi bëggul señ bi dafa bëgg yor ay dogi yi yoy da fay yam ci mom te keneen kon ko sol mu sembeertal ci yow te bu solé maqamam diw sangam diw nangam loolu kon yam motax señ musaka jangal lu ci señ Tuubaa ci yoy melo señ bi mu ne ko kon lo bëgg mu ne ko na ñap rek ci señ ci yow bokk sa gañ yi ku lo tuddu troisième position daal laa bëgg bu ñu nee yàlla na rasulullah na Ahmadou Bam te xoolal li ci distance distance bi ci ay aqtaab ak i abdaal ak i gaa yi yàlla sëñ bi na ko lii rek laa bëgg mu ne ko lu jafee ngoo bu doon luy jaayee ci bakkan kat fàtt na ndax laa ikraha fi diin xat tabayyana rushdu na al ghayy islam amatul force jeex na sëñ bi na ko loolu rek laa bëgg nee na ba ma naagu ci ne du ci jot mu ne ma lu ñuy jaay la de waaye ku ma ci njëg gi de. bo ci sobo buñ la dimbalé wut da nga al mu ne ko lu mëna doon jaral na bakkan bi rugi la sekkul waye sama jom maynama duma delu ginaaw muk lolé ma seuf dana ko yam kon lolou tuba bi bu jappé né mo japp señ bi mi ngi ci erreur lolou nek batin ñu signal señ tuba bur yalla signé jox yonen ba ñu signé gaay jital bamba mu wari mu wari soal wa ba señ bakki bu señ bu soobé neena seigne sëñ bu bëggono nit du genn Touba baba Touba mëno for bant ci digënté daru Xuddoos seigne jumaa jik daru minan mag ñi dañ koy lay bam set wicc le gimu mujj wori bi mi lal derbi mag ñi diko xëccio xëccël bopam na bayi leen sama derbi bis na na ñew dana ko talal foofu kenn ci yeen du fa ne ba di ma ko laal mi leen di ne kori diwen buy ñew fenen lay nak seigne touba wari dem mbacke Bari ci mois de mars war a doon suwaal muy aw kori yàggu fa juróomi weer benn yoon la fi ñëwaat Touba ñëwaat na Touba muy bi sëñ Bousso bi génnee adduna nijaayam ñëw na jaal si ko Mbacke bi mu ko jaalee tàggu na bokk yi nag wax leen liggéey bu rëy bu mu engagé tukki bu sori buy bëgg a fekk daana duggloo xaloo mag ñu ñu mel ni sëñ Darou Assane Ndiaye di ko xoolloo ba xam mu naan ko tukki bu sori waaye sëriñ bu bu doon bu neex bu war a ñëw bi sëñ bi nekkee Mbacke bari

te ku fa xaale toj loolu la ko jolof daal kenn du fa jombase te ku fa xaale toj ndax nañ mel bi sëñ Tuubaa ñëwee nag nekk fa ñu jàpp ne Cheikh Omar Fouti Tall wala Maba Jaxu Ba wala Ahmadou Cheikhou wala Mouhamadou Lamine Dramé ndax Mouhamadou Lamine Dramé bi muy attaqué tubaab bi am na juróomi junni tali bi ñu jàppee sëñ bi nag nañ ñi kii kat yuy yoon la jël fekk na sëñ bi loolu moom taxu ko jóg ay yoon nag tubaab bi yónnee ci moom di ko convoqué ndax bul fàtte mois de juillet ba daje ban daje woon waxoon nañu Ahmadou Bamba du ñëw da leen a xeeb ba lettre ya baree nag ci la Serigne Touba yabal maam Thierno Birahim lettre bu daw yaram boo xam ne li ko laltaay ci fit ak ngor mu ne su ko misaal maa ngi lay nuyu la ko di ko wax ne ko li la tax a jóg ci àdduna awma ci yitte te li ma tax a jëm ci àllaaxira amoo ci dara ku ne la kenn ma tax a jóg ku may yàlla ak roy rasulullahi wax ju yàqu rek la bul déglu nag yàqkat yi ak narkat yi ak ñi nga xam ne seen bakkan rek la topp daan na ko li nga nekk awma ci soxla li ma nekk awma ci soxla waaye jëggal naa leen yéen ñii ak ñi la wër loolu la suñ bi ni ci lettre ba jox ko maam Thierno Birahim muy wax set ndax maa du ut la dajal borom daaru dem ndar ba mu demee wone fa lu yéeme wone fa ngor ak jom ak fit ndax booba góor góornóor ñeme koo xool rek kenn du ko def sëñ Tuubaa nee na jamono boobu ku gis ab tubaab day jàpp ne malaaka la gis borom daaru tàllal góornóor Sénégal leetar bi góor nóor jël palaat tàllal ko moom Cerno ndax bañ a teganteeg moom loxo ndax ñu laayub loxo bi na ko teg ko fii borom daru bankat lettre nako kima yoni sa loxo ak sama loxo la wax ning ma bañe rek ne la bañe nga xamne ne gouverneur keroog dafa jaxlé nako dal ki mom worna ma ne ci mom la bayiko mais wo nañ ko ay yoon ñëwut borom deru na gisuma ko fa ñew de waye worna ma ne ku ko woo dana ñew tuba bi fekk baba 9 août yéen a ngi fat Polonia FM ñu joxe ordre 250 SP ici 4000 cartouches nañ jëli Ahmadou Bamba ordre boobu lañ amoon Leclerc jiite ko moo nekkoon gouverneur bu Leclerc moo ne nekkoon Louga te moom Merlin ay goro lañ mais dañoo bañ sëñ bi ba loolu amee ñu def télégramme li tax tubaab bi dajeeg sëñ tubaab jeewal mooy jeewal campement la booba ñu def escale pour di xaar suba ak quinze heures wala 2 heures 14 heures lañ waxoon Ahmadou Bamba bu ñu fekk siwul Louga. dëkk buñ ko fekk danan taal dëkk ba danañ rey donga yee jàpp sëñ bi indi benn buy dund ba am faatu ordre boobu la soldaar yi jotoo ba noppi nag di def ay laxas ngir bëgg maam Thierno yeexa dem pour yëgle lii borom daaru ñu di ko nëbbutu di ko réeral yu bari nii xuta na ci léegi waaye bi ko tubaab bi mu ñëwee ci tubaab bi di wax moom pour confirmer ne sëñ tubaab dana ñëw wax demoon ci archive nationale barki dem rek gis naa ko tubab bi dafa wax ne nun li ñu jaaxal ci dajab cernu Ibra fati bi moy booba dañu tan juróom benn soldat yu ñëw di xuppu borom daaru manam fim taxaw ñu diko jema nap li ñu wax noggutu neena borom daaru muuñ tubab bi ba legi do demé dafa mandargaal loolu ne muñ mi borom daaru muuñ ya quelque chose manam mo muñum cernu mi du ñu xam lu mu doon ba legi ba jusqu'à présent mo ñu xam lan la muñ mi borom daaru doon muñ lu mu doon ñom dal dañ ne ya quelque chose rek amna lu ko taxam a li tax mu muñ xamuñu ko mu ne leen li ma wax keroog tubaab bi wax ju ñàkk kersa sax mi ngi koy wax borom daal ci bu ñëwul fii suba daal li nga wax bu dañee nangam nangam mu daal di muuñ rek topp lëndëm gi di tegtalu yàlla siy taw xiin wi dënnu yi guddi googu muy ñëw suñ tubaab bi mu jullee gee ba noppi moo toogal boppam ci ci buntu jàkka ci njabootu suñ tubaab gépp wër ko booba mbakki bari mbooloo mi bari nañ ba bu ñuy séddale reer waxtu timis la ñuy tàmbali ba fajal ñëpp nag gorom suñ tuba toog di waxtaan ak yéen ak yi day ci gaay baax kum tudd tudd keneen kum tudd tudd keneen ba yàgg mu leen ñoo kenn du taxaw moom suñ tuba baat boobu la mujj wax 9 août julli gee fatu taw julli gee ba noppi wax ko ajjuma mu Fat. danañ ñoo kenn taxaw daan na sama borom dafay indi yan bopp kenn mësu ko ne jàkk mu romb say wóom man la ko waxee sama borom dafay indi yan bopp kenn mësu ko ne jàkk mu romb say wóom waaye man ahmadu danaa ne ko dënkul ba àdduna bépp seen ko danaa ko dënkul te xamne kenn du ko ko yan moo koy jajul boppam na ko yanu di way lol la wax fat mam cerno ne ci tawbek bi mu se fajar ba nopi nak laaj borom daru gi ngeen ci jàkk ji la maam cerno borom daru tambali di netti da ko leung mu diko netti mu tap tapal ko nako bul ma yagal cerno dama yakamti bul ma yagal bim keur bi mu génnee ci jàkk yi mbakki bari yi jëm ci kër gi jibril moo wàcc ci diggante sañ Tuubaa kër gi na ko ahmadu digg bi jot na digg bi jot na sëkk wàccaayu yàgg na laxasul te jóg sëñ Tuubaa na laa ilaha illa allah muhammadun arsalahul ilahu daan na nañ ma waajal cerno borom daaru di nett li mu ne ko dara mutumaa wax cerno démb ca ngoon ba nga taxaw ak tubaab yi ak ceddoyee ca détti mbéerub jàngi ba ca Louga mooy fañ ko doon noppee te borom daaru di sëñ Tuubaa ko fa nga taxawoon démb ca ngoon xorondoom yi doon yéeg sa tànk yi maa ngi fii ci Mbàkke Bari di jàkkaarloog ñoom yoral ma donga yi rek ak foo ma leen mën a la yor ka nekk Mbàkke Bari di seen xorondoom yi yéeg tànk ca Louga kooku xam na fa mu jëm daal di takk lu awnullaahi yenn bagage dañ ko jaarale ca ginnaaw kër ga penc mi fees dell sëñ Modou Moustapha toll ci juróom-ñeenti at sëñ Fallu juróom-ñeenti at sëñ Baara juróomi at Sidi Mouhamad soxna Fatou Jabi di taaw mbooloo mépp na fee ñu jaarale yenn bagage yi ci ginnaaw sëñ Tuubaa takk loo awnullahi teg ca mbalaanum soo yéen a ngi déglu Bawol Média FM ci 3W point Bawol Média sëñ na tekk tànk bi bi teg ci bopp Cheikh Moustapha jàng aslëf ci alquran na ko dénk naa la yàlla ak seen bay Cerno wax ko Cheikh Madul Fadal na ges borom daaw na ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom daan la wëriñ dëgmal awnullahi bi war ko daal di dëgmal nag wuti yoonu melax ngir fan la jëm gaji, a daje gañi départ ñomi señ tuba Tuubaa señ musa Ka radiyallahu taala nu netal nañ ko bisub keroog la dam rañane bari fajar gaaw ba mahal abraari dajeeg tuba ba dal di yendu jeewal fanaan fa bóor reey rëy duñ ko yor gaaw bobu yor yor la señ tuba aksi jeewal tuba bi boba sëñ bi am na ñu mu àndal booba ki yenu woon gaal yi bari nañ waaye bu dee ci ñi sant Mbakke euh, mooy sëñ euh, way juru sëñ Modou Balla Joor moo yenu woon gaal yi moom la woon sëñ bi nag ku ma mën a yenul sama gaal yi sëñ Balla Joor sëñ Balla Joor Mbakke na ko mën naa ko sëñ bi nag ku ko yenu du tàggoo ko njàpp te du ko yenniku keroog bi mu teggee gaal gi rek daru bopp bi dafa teggee ko mu yanoo ko Mbakke bari ak diisaayu gaal gi ak njàpp mi mu àndal sëñ Touba. jëm si jeewal béréb bu yéemee ngi noonu li sëñ raat wax dëgg la buñ ko mbëbës sël ndax jeewal mooy badar jeewal mooy badar bu badar bu bu badar esegoon lislaam jeex bu sëñ Tuubaa esegoon jeewal lislaam jeex kon booba juróom-ñetti réew yi am ci Afrique muy AOF e diine du fi am chrétien moo fiy dox ñu changé suñuy culture ab sëriñ du am alxuraan duñ ko fi jàng loolu mooy badar ñaari mbër a song sëñ Tuubaa jeewal nee na bi sama maaru jëg fas fi ne tell ci kaw iblis laa jëkk seen muy xawee ko sëñ Abdou Karim Touré la ko nettali na ko iblis laa seen muy xawee ko di wax ne mbër mu fi yàlla ma sa yónni jëraloo ma jóg dama yabal soq yi rek waaye kii kenn doyu ma ci saa bopp naan maa koy songal sa bopp sëñ bi ne ma nit ma di ko joxar bi na ko yàlla rek am doy sama diggante yow doxale naa yàlla sama diggante yow hasbunallahu wa ni'mal wakiil sëñ bi nee na ma séen ko muy arrière ne xar muy dañ di dellu ginnaaw di deltu ginnaaw ne xar muy dañ maanaam du jëm élan nee na ba ne samay tànk falax na det mën a ci dog xam nii mu ne wuy ca kaw dama teggil nu tàggoo léegi tànk yu ma mës a dugg yaa ci gën a sewle waaye yaa gën a dëgër ne booy tegg nuy tàggoo أيس من الله عند جاولي إبليس إسناديته بياولي إن الذي محى لقاء جاولي له نداء موقنا بياولي ناجيته بيا نصير يا ولي كفيتني إبليس عند جاولي بابا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نسن تبا دون ورد سن موسى كان أنا مام تشيرنا بابا لولا سن بيور دوخ سي دوغ Iblis tabb ci xur wi soldaar yi wër ko ba ñuul kub seen i fetal soqiku seen mbubb yu këkki ak seen xongaay yi mbub yaram wa rek fas yu wàcc ci mbartal mi sëñ bi cëppeelu sànnib daram ne allahu akbar tubaab yëpp kontaan daan na lii moo mën daa nekk mbakke bari rek wét fa waaye bu nu gisee xam nga ne dellu ginnaaw joxe nay loxo nee na maa ngi nii xamuñu koy julli sax jàpp nañ ne sëñ bi day day ñu ne voilà victoire amna na sëñ bi kàbbar allahu akbar foofu ahlu badrin feeñ na fi te déggaat naa Cheikh Abdou Samad si champs bi nettali mais bi jàppal takkusaan tey massa tubaab yi ñëw bëgg ko bëmax tasanteeg muy ëññi kaala gi muy def nii moo tasanteeg ahlu badrin gépp di cercle jeewal loolu dégg naa ko Cheikh Abdou Samad ci màggal gi bi ñu koy introsé sëñ bi wàcc ci xur yu julli di sëlmal ba julli la ko soob Leclerc moo jëkk ñëw mooy xaa waaxu ñëw na sëñ bi danoo jot ndigal bul yend bul fanaan ordre bi mooy lu mu guddi guddi nga fanaani ndar sëñ bi naa cam ka leen jox ndigal day kama sàkk sàkk ko digal ma ma di ko jaamu mu lànk ma di ko jaamu moo ma jox ndigalul naa fanaan xool ak bii risqué ñaar téeméeri soldaar ak juróom fukk yooyu ñeenti junniy kërtus kenn ku lay wetti néew fa ku dul yow te ñu en la lu yàgg ci mois de juillet denc en bi góornóor jël si la boppam ñu ne la jógal mu ne julli takkusaan jot nee ba ba ba ma séenaatee lekkereer waa wut si ma damaa dumóoyu jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim nee na mu nooy nepp sawara wi doon tàkk ci moom fay mu ne rëmm kiif yéen a ngi déglu Baol Médias FM ci 3W point sunu rajo tv point keroog la daam fanaani bari rañaane bari fajari gaaw bu maaxal abraari la jeg tubaab ba daal di yendu jeewal fanaan fa boo dee rëy na duñ ko siiwal nee na keroog la jëkk a gis ahlu badar ba mu xëyee suba dibéer la ñu ko def keroog la way asma ahlu badrin booleeg muqaddamat bi nasri bu rëy bi nasri kon sëñ Tuubaa fanaan lay def léegi ku ne doo yendu ngay fanaan masoon naa fanaan jeewal ba muy dem ci jëy chichir ñu won ko fa mbooleem lay xaloo xew ba dem tuubaa mënoon naa wàññi koo foofee waaye ne kon du am mayeem yi mu am boole jaroo lay Serigne Touba nee na bu ko neexoon jeewal lay dëppee xam ne gañe na mu fanaan samedi ci guddi ba fajari dibéer ji sëñ bi leen fëggal boppam foofee nag la Jibril ñëw jàpp ci nosu fasu sëriñ Touba wi di ko wombat mu tàmbali asma ahlu badri foofu yi am na kilifa gu baax ci réew mi ko yàlla mayu cër yónnee ne ci Serigne Touba jox ko bataaxal bind ci ay muslaay na ko nee ko da koy ñaan dana tax a mucc turi ahlu badrin ya ci nekk sëñ bi ne ko tàmbali naa ko te ku ne ñëw na fi man na ma maay diw diwoo ma jóg diwoo ma jóg ci ahlu badrin laa bokk mu tàmbali na sol bopp asmaa si badrin ne bañ waxee la lu xew mu far wóolalanteeg yàlla jaayante ay biram xaloo jaju yan boobee te woon bëri yoway tuuba xaloo jaju jaju yan boobee te woon bëri yoway tuuba mu jiital boroomam ahlu badrin di wéttalam mu def sopp yonen muy la koy nos mu jëm tuuba mu foofu alquran def gën ji gànnaay ga muy saxoo te def tagg yonen muy jihaaram ja xew Touba yii la sëñ Touba yóbbaloo def ko mu di gànnaayam war nag jiitu te li gën a yéeme fasam a gën a gaaw seeni fas mujj ñu naan ko defal ndànk booba Jibril la koy womat mu ne leen ku yónnee di ko woolu ñanu yónnee nu ñuy gën a yeexe ci ki nuy woolu gaaw leen te li gën a yéeme ci bu yàggul rek xamaat naa ne fanaanug jeewal gi ndeke ñaar la baatin bi mooy sëñ bi napp mu leen na leen damay fanaan mooy jaayir si rek ne leen damay fanaan waaye ndeke jëmmi sëñ bi nee na fas yi ci boppam ñoo ne dañ ñoo dawale dañ ñoo dawale ndar sonal nu andi nu te bu nu dëppaatee léegi faatu la ñuy def noppal nu mu ne day fanaan fas yi xam nañ ne moom laa la dañuy fanaan fanaan rek sëñ bi la day fanaan moo ko tax a fanaan yërmande jee yaatu sëñ bi jóge fa jëm kokki

xam loolu yombul mu ñëw ci dëkk bii tey di Louga 12 août di alterné léegi kon ñoom posité nañ le 10 te le 12 ñëw na sëñ Touba yendu Louga bi mu yendoo xam ngeen ni bokk yépp njàmbur gépp ñëw nañ ne ko nañ fetal jihaad tub sëñ bi ne leen noo leen bëgg a xeexee ak ñoom ñu ne ko ah yor nañ ay maq doom ak ay fetal ak ay jeese ak ay nangam ak nangam sëñ bi ne li ngeen di xeexee ñu ko defar ñu ne ñoom mu ne ah nit nu muy defee rek gànnaay nga man ko ca walu diggéej la dana mokk te dara du yëngu bàyyi leen ba ñëw rek gis nga noonu boo demee gaar ba gis nga ko foofu mu nekkoon boo demee fee ñu tegoon téere yi boo dénkoon ko sëñ Baara Fatim Mbodj ak sëñ Mat Lamine Gueye Firdawsi ñaari kàngamam yooyu ak ñeneen julli takkusaan dugg saxaar mag ñi waroon a yéeg ñëpp ñu bàyyi leen sëñ Modou Lamine Gueye moom sëñ Bara Fati Mbodj moom bi ñu gisee saxaar gi déqi rek dañoo jàppante loxo kenn ku ne sa waay kaay ñu jàppante loxo dox tuuti ba génn gaar bi bi sëñ Touba di wàcc ci waxtu timis ca ndar ñoom la nuyul ci buntu saxaar waaw damay yaakaar na mi ngi ci Maodo Samaan sax mosawari ku lan baar léegi yo kooku yooyu ñaari taalibe luñ doon kon xam nga sëñ bu ko nekkoon dëpp sëñ bi ñëw ndar 12 août waxtu timis si waaye def na fa 38 jours ndar la sëñ bi gën a yàgg 38 jours la sëñ Tuubaa def ndar bi mu ñëwee xam ngeen ne tubaab bi daf ko daal di yóbbu isolé ko pour xëy war koo woo sëñ Tuubaa ci ndar dafa bari xew-xew yu fa am yoo xam ne yu yéeme la ba si jëkk mooy gaynde gii ñuy wax ndar la woon am na ci gabon it waaye genn gu njëkk gi moom ci jardin des mu toolu buur fala fala fala amee woon mooy signature bii gaañ ñi bañoon loolu moo indi numéro 4 xam nga dañ naan numéro 4 numéro 4 sëñ Touba jëkkuñu ko woo da doon sobee sëñ Touba dafa ñëw tubaab yi daje génne war rapport bii ñu génne woon ci na ngeen signé bàyyi nangam nangam ñett ña jëkk a lànk tubaab yi ne leen am nañ fi gaynde yu xiif yu gëj a lekk ay fan boo leen signé wut ñu yóbbu leen ñu ne duñ signé jàpp kenn yóbbu gaynde nga lekk jàpp keneen ñu ñaar. ba muy ñett sëñ Tuubaa nag bu ma jugut ñu jeex moo jug taxaw ca kanam na maa ci topp teg ma ci. nee na li tax ma jóg bu ma seetaanoon ñëpp jeex bu ma jëkkoon a jóg dul man ci man dara ñu ne ñëpp a ma bàyyi ba ñenn dem xam ne duma ma seen moroom ma muccal ñi ci des. xam nga fi ne bu sëñ Tuubaa jëkkoon a jóg da naan keneen kum laaloo nit noonu lay def ma bàyyi ba ñett dem. ñett dem. xam na gaynde gi lekk na leen xam na ña ca des ñëpp jeex la ñuy def 83 yëpp nar jeex sëñ bi jóg taxaw loolu indi numéro 4 ñu tàbbal ko ci biir kaaf gi sëñ Touba wax sëñ am sutu jaxate na ko bisub keroog de ni may yeex a xamee ne gaynde la sax ni may yeex a xamee ne gaynde la daan ko keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf maa dar ci dënnam naan na sama xarit bi moom mooma ma jàpp ba ma gestoo laa door a xam ne ndeke gaynde ngi fi te xoola ba muy bind ca mille euh, trois cent onze ca Touba wa man takun bi rasulullahi nusratuhu in talqaw usdu fi ajamee talini booba ñu loolu amagul ba muy am dogug naan ku daje gaynde ci digg man nig te ànd ak rasulullahi gaynde ga nooy booba yonent bi ñëwagul def daje seeg moom sëñ bi ci loolu ba loolu amee rek kon wa man takun bi rasulullahi xidmatuhu مصاحب الصدق والإخلاص والحزن فلا يقاف ولا يرجل ولا الزمن إذ الوقاية تغني عن الكلل أفلا يلاقي شوى البشرى ولم يهين يجلي فسن توبا يبوك لكنك بلول أمي مولم كليفه اندار يب نجلو نيو نس توبا بي كي نجين جاب دفو دارا نجين كو تيجي توما رك باي لنكو نيو نبيني لنسيني كأنه كنا كنيان انترفاسيون بولن دمي موسيني نيو ليبريكو sëñ Ahmadou Ndiaye Mabé ko jiite sëñ Ahmadou Ndiaye Mabé di woon murid sëñ Ahmadou Ndiaye Mabé jiite délégation bi dem ci tubaab yi pare waa nar imaam yeeg olama yeeg gars yëpp signé ba mu des benn signature muy sëñ Touba sëñ Ahmadou Ndiaye Mabé neen damaa fekk sëñ Touba dina fi déglu Baol Média FM ma ñëw nuyoo toog bu ne asalaamaaleykum ma jege si rek mu ne allahu akbar ba julli la ko soob na gees na ma kooku ma ne ko Ahmadou Ndiaye Mabé mu ne bismillah ma ñëw mu ne mu ne ma loo doon dox ma ne ko nun de Mbàkke dañoo xam dañ laa tooñ dem nañ ci tubaab bi nag ñaan ko ba nangu na ne boo màndargaay lay fii rek nu dem mu bàyyi la sëñ bi na dënd ba yàgg mu ne ko ana ku nu tooñ nu nuy demee naan ko na ñëw jéggalu ko ko tooñ daan na ko Ahmadou Ndiaye maa bi sëñ Ahmadou Ndiaye maa bi keroog daa xaqataay ci kanam sëñ Tuubaa ca kaw sëñ bi ne ko Ahmadou Ndiaye maa bi yoonu géej gii maa ko ñaanoon sa borom daal dina yëkkat der bi mu taxoon di julli der bi sëñ Tuubaa doon jullee loolu ko sëñ Ahmadou Ndiaye maa bi nettali boppam der bi mu doon jullee la sëñ bi ne yëkkat روتش تي اسلف تي اي كيد نكو جاب سيني احمد جاي ما بي فك تي تامبل اسير مع الابرار حين اسير وظن العداء اني هناك اسير مسير مع الاخيار لله بالنبي نكو كو جاب نكو احمد جاي توكيب جيجي لغي جيجي ماكو نيانو سون بروم سي احمد جاي باي بي جيل نياري كيدي مونكو ياي سما شيرين تي لا يام ديدت سي احمد جاي ما بي نيوكيت باي تولو بونت بي مونكو تا فيك ماي ديلوسي دوف ووب دوف فات كي ديم باتالاي sëñ Ahmadou Ndiaye maa bi yóbbu ay kayitam denc sëñ Touba desaat ndar tubaab bi desaat leneen convoqué waat kilifa yépp muy dernier bi pour ñu bàyyi yii ñuy def baa ñu faagaagal leen ñu jeex takk moo tax sëñ Abdourahmane Mbakkeem Cheikh Abdoul Khoudous moom borom Daaru Muxti waxoon ne sëñ Touba huwa alxadimu imaamuna wa rajauna lawlaahu kaana suudukal maadum sëñ Touba sunu yaakaar bu du loolu moom nit ku ñuul du tekki dara sëñ Touba moo tax nit ku ñuul représenté dara فهو الكرامة والفقار والجمال به اعتزاز الأسود المعظوم sax tiitar tedd nga honoru nit ku ñuul mooy Sëñ Tuubaa ci moom la nit ku ñuul teddoo te lii feeñ na ci kanam ñu dajale ñëpp Sëñ Tuubaa mujj a ñëw ku fa toog toog yi ni kuy julli ngay toog danga daan rab jël sa sikkin daaj ci sa dënn doo siggi doo xool. yéen ngi déglu Baol Média FM. borom xaftaan bu njëkk ba te gën a rafet. Baol Média borom xaftaan bi nga wax léegi. am na sëñ Moussa Ka ne da daan sol da daan sol yetti kaala da daan muur yor yetti kaala yu joor raawaan yaa ngi ko daan féete wàllu nday joor bu sikkin bi ne lamset bu muuraay ga ne lamset sikkin bi ne laas di saf laari wurus moo ko jekk ay faas xeesul ba ne fecc fa fuddi aw ñuul yaram waa kat tax mel ni jaane ngoo lool fitam waa gën a rëy mel ni ab du jàmbaar xam yu capitaine wa soldaar ci kun lay téléphone xel ma raw na DPS xolam baa gën a rëy lamp bun ma defal mees bu cër yi nelawit gët yi moom ma ngay xool bu nekku di taalif it ma ngay yëri mool bu gët yey nelawit ruuga dem aras moom xanaa war na ci alburax waxay zoom te lay laa du ko tee dem ca téyewi di pays diiwaan parce que yo ngeenu sakkar rijaal ya lay naan xammewul capitaine ak soldat mu jékki-jékki nga xam ne boo ko séenee sañ Moussa Ka nee na bu sa bët ne tegg ci moom rek agsi na fit na ja bokk téere ba ne jalañ fekk ñëpp toog mu càpp ndaay ci digg bi ñeent at yu mat sëkk boo ko peesee mu dul 45 kilos fekk ñëpp nag gorom joxe seen accord xoola fit ba yéen ñii damaa leen woolu woon xoola boobu engagement sëñ Tuubaa baax yéen ñii damaa leen woolu woon maanaam ñeen convoqué gi ñëpp mu jël engagement ne maa leen woolu woon xam nga dañ bañ ko nit ku ñuul nag daa xeeb boppam daf ma leen woon doo leen ñëw moo tax ma awale ko fii li ma leen di wax mooy bàyyi leen li ngeen jàpp jox ma seen bopp ku faatu mu yóbbu laa jàmm xoola boobu engagement boo leen ko defut ma ba leen ngeen di sonn ci diine ku faatu dem sa te foofee wane nañ fa lu ko misal gaa iya, yi yëpp taxaw cercle ñuy soññantee ka wax ak a tëral seeni article ba nit na ma yàlla fii ni ñuy jàngale tawxiid jàppe murid yëpp ay iya, yéefar ko ñaan dañoo bokale, dañoo gëm yàlla ak nangam mais nun ñuy bokkaale gëm genn la ba di laaj taxaw tey jii kum neex ginaaw financement dañ lay neexal nga man a am jàkk di la neexal ngay julli di fay ngay mën a jaamu yàlla kon bu la neexee waaye bañ ne ku fi julli dee ku wax nangam dee góornóor taxaw na may yàlla anaa mu dabiru umur jëfandikoo lafzu boobu su suis Dieu may yàlla yéen ñëpp na ngeen ko xam te na leen leer kenn tontuwul ku dëkk Burkina Faso tontuwul waa Côte d'Ivoire tontuwunu waa Bénin tontuwun waa fenn tontuwul kenn tontuwul ab diir ñu ne yàq sëñ Tuubaa ne uwaxidullah wala su ashriku shay'an bihi xëyna si waaye shirku ba may kennal yàlla na yàlla rek ay buur faa ko doon waxe ku dul man wut nga yàlla ak leneen maa yàlla joo xam ne ci réew mii lañ ko waxe maa yàlla ku ne na xiim kenn tontuwul Afrique laa wax bu doon Sénégal dong-dong mais Afrique juróom-ñetti réew yépp seeni représentant nga fa ndax 42 yépp ci sous-région bi lañ dëkkoon 42 yi dëkk Sénégal ñu ne cal kenn tontuwul laa wax maa yàlla jooju baat bu ko gën a rëy daa am. Ah. dañuy ah doonoo ko de ay wax rek yàlla lan foo ko doone xunn xunnutu rek doonut yàlla waaye ah day wax rek waaye nag ginnaaw fii dafa xat moom ku dellu na ko doo yàlla daal ay wax rek maanaam xunnutu bu la nit waxee loolu dérange nga ragal muy muy lu ñuy wax di jabbutoo ko kii ku tedd ki Cheikh Ahmadou ba mi nga xam ne fitam waa gën a rëy mel ni Abdou Jàmbaar xàmmewul capitaine réew soldat nañ ñokket ñuy xëcc ci mbub mi xam na ne mbir dana xew toogal toogal Ahmadou jekkil léegi jataay bi jeex parce que sëñ Tuubaa sëñ Tuubaay góor muy jéggat di jéggi 83 yi jëm ci kinema yàlla te kenn ñemewu koo xool sikkin yépp a tege ci dënn xanaa bu ñëwoon na ko waxoo dëgg doy na ndam bu nekkoon bu ko fexe doy na ndam ay baaraam bala jël teg ci jëbi dugal ko ci diggante casquette bi mu sol ak baa ak ak jëbi di boole ko di sañaxal bopp bi ci biir nit ñi di ko toroxal naan ko kë di ko këlëng-këlëngal naan ko kadabta mu dabbiru umur xayun laa yemu laa satamuutu insha allah fa mu ru ko xaribu yaa mën a kàcc xam nga ne waxoo dëgg de ki nga wax ne moom nga mooy yàlla kooku du fi jóg yow sax li des ti nga faatu daa yàggut ko xarib loolu xanaa jaroon na ku ne màggal sañ Tuubaa ah fii la ñuy toog di màggal koo xam ne xamoo ci moom dara di soob téeréem amoo photoom gisoo doomam mais lii dañ ko waroon waxtaane ci adduna bi dagg buumi njaam xobbul xadimi ala suudaani muftaridun id xarara suuda min riqil mudillina buumi njaam Sëriñ Tuubaa ko dog may nit ku moom indépendance loola doon na doy du jugement ba nag 5 septembre ñëwaat na 5 lañ atte Sëriñ Tuubaa tubaab yi nag xam ne am na liñ bëgg teg nañ koy tuuma woowoon nañ ko ñëwut bi nit ñi taxawee moo bañ teg sëñ bi ay tuuma daal pour léegi acquis ko pour mën ko àtte la cinq du jour jugement bi tubaab yëpp daje wër taabal ji ba mu fees dell di xaar daam. kenn ngeen wër a yëpp laa wax sëñ Touba mu baax ma ca Touba yàlla ko yàlla dolli fan wu gudd moo ma wax ne tubaab ba fekkee woon jataay ba moo ma ko nettali ci kër ma soron kenn dara nee na sëñ Blaat laa àndal ñëw tubaab bi di ko xool ba yàgg mu ne ko sa bàyyi sëñ Touba de xaw ma lu ko yàlla am ci defal waaye jaral na ko. daanaka ba muy julli bi rek góor noonu fa la ma fekk keroog fekke naa ko jalañ la def ñëw fekk tubaab yëpp rang mu ne wuru dara bi ne allahu 45 minutes la julli ñaar rakk rek 45 minutes tubaab bi nee na bi mu jullee ba sëlmal daa gestu ana ko ma woo ci yéen yaa loolu la wax bi mu ne ana ko ma woo ci yéen nee na amul ko fa nekk naan diw laa diwa la kombe ga woon ak nee na buntu ba lañ jëkkalante rek tubaab bi nee na fekkee naa lii moom gas nee na ñu jëkkalante raj raj loo ca bunt ba ñoom ñëpp dawandoo génn ca bitti mutte nag nee naa la dañ ko formé woon tam soxor nee na day jéem a risqué sëñ bi ne ko du yaama wolo woon dafa tiit ko sëñ du yaama dafa tiit ba séentir gi takk dandi tipp dakk mu yàq yére yëpp ñu génne ko wallahi la boo demee ndar gëstu ci ko wax la yére yëpp dafa yàqu bin ko acté 5 nag ba le 18 ken xamul fu seigne Touba nek dañ ko acté le 5 dem nëbbi ko ñëpp jaaxle ñu ne seigne Touba sank nañ ko ñi ne ci géej gi lañ ko tabal ñi ne fuñ ko yob waaye Mouride Sadiq ba Cheikh Ibrahima Fall def ay recherches di gëstu guddeeg bëccëg di xam fi Cheikh Amadou bama nek Cheikh Ibrahima Fall mo trouvé seigne Touba fi mu nekk ci ndax boobu. seigne Touba def fa 38 jours touba bi xeyna ko dal noonu. nañ ko yobbu Dakar programme ko program programmation bu yéeme programme bu yéeme ñu programme ko sëñ Touba ñeen fukki fan yu manki ñaar bokk yi ngay xif di mar bu amo lal boy teud amo foy noppulu gisoo koy yoni amo ku lay may ndox te bëre bobu la bi tar tar lenn dimbale wu ci sëñ Touba lu may tag yi don tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ila nabiyil mustafa inda ndari wajahtu matxan qad azala kadari kon ndake la dindi coono ya mooy am daax yi tagg rasulaay kero bi ñu ko yóbbu ndakaaru xam nga Cheikh Ibra Fall ci la bokk ñi mag ci loonu gunge sëñ Touba mooy Cheikh Ibra dugaluñ ko ci bagage fi ñuy dugal nit ñi dugaluñ fi sëñ Touba fi ñuy dugal mala yi lañ ko dugal mu boole taxawaay ba ak coono ya ak sil boppam waxtu timis ndakaaru boole ko koor ga yéen a ngi déglu Baol Média FM sur www.sunuradiotelevsion.com sama koor ngir dundal sunna sëñ bi nee na wenn waxambaane daw ba ñëw na ma kaa ñu dem am néeg a nga nee bu neex a noppaloo bu ñu demee nga noppaloo fa doog fa sa koor sëñ Tuubaa ne néeg la bopp koo namm ci mu ak dund doo ko fa tabal natt li ko boppam ci sa néeg boo xam dañ ko natt ba mu yem ci moom fu waaye war a teg sa tànk doo ko gis ndax i rab wala xotti bi te sobe ko ba mu tàng te xam nañ ne gaz carbonique am na ci néeg bi sëñ Modou Lamine Gueye nee na bu ma ko bu ko sëñ Massa nettali danaan saalituma de tànk ba mu yor aw dal la nekku ci mu yëg na ci ñaw ko la ko teg xanaa mënoon naa dellu ginnaaw na lu ne fii ba mu tegee tànkam mu tege ci xott bi télé ki ràbb daa bës googa ràbbu jàll mu yàkkamtee teg ba ca ginnaaw googa ràbbu jàll ñu boole ca bunt ba dañ caa boole tëj ko mu boole ko kabban sëñ Tuubaa nees ba ma ne allahu akbar diggante ba lu mu gaaw gaaw yàlla yónni yàlla yónni na jibril te boobu tànk yaa ngi riix ak deret na ko xoolal xol bi bu loxee képp ci yëg ne métti na ma alal ko léegi sëñ Tuubaa ne bi jibril di ñëw fekk na ma def istirjaa ñett la fa fekk a sabru wa shukru wa riba sant yàlla gërëm yàlla ak muñ loola la fekk sama xol bi fekku ca genn jiixi jaaxa wala genn yokkat wala genn dellu ginnaaw ku ko jëkk a fekk ca néeg ba muhammadu rasulullah ku ko fekkaat ci néeg ba soxna jaaratullahi ma Mariama bu suuf na ko may sa seere soxna la leeral ne xam nga gone bu feeñee jamono gan xanaa day yëkkati baatam ñu ne diw jooy na wala yuxul soxna jaara bi mu fekkee sëñ Tuubaa ci néeg boobu dana ko may sa seere kere bi nga feeñee jamono li gone baaxoo waxoo ko yow da ne yàlla danaa la jëfal ci kaw suuf gii lu la genn góor yàlla ma sa jëfal may sa seere mu fanaan fa néeg bu xat defe ne buñ ko génnee mu yokkat dellu ginnaaw metti gaa tax إذا ذكر ذلك المبيت وذلك الأمر والثبوت ترد إلى الجهاد بالأرباح النفس ولكن ضمان الله لولا نك 19 20 21 دي سامدي يوركو اكزيلي ولما بدا في البر برا ومفزعا وبحر ندى عذبا فراتا لبارد وبدرا منيرا نستنير بنوره سعى في نفس هذا البدر امر مادي باخراج قلوب العصر اسبانا انه يلين قلوب البعض من الشوارع فغاب وحيدا fil buxuuri mu waxida illaa habaahu bi luhuyi fa waidi fa xaaba waxidan fil buxuur kenn demut kenn demut mu tàggatoo mag ñi jàkkaarloog moom mu di dexul mam dox di Cheikh Ibrahima Fall sëñ bi tàggoo sëñ Mourou Bëggey bokkoon na ci sëñ Mourou bëggee nee na bi bato bi déqee yéen a ngi déglu Baol Média FM damaa na ay sëñ Tuubaa dem na du ñëwati tey fun jëmati sëñ Tuubaa bu demee nekkul ci jamono loolu ñu def nee na bi may xalaat loolu sama xel ma dégg kàddu sëñ Tuubaa gi te gaal gi déqi na sëñ Tuubaa gi ci digg géej gi mu naa ma rubba géy dellu leen ca kër ya te dellu ca la ma leen ca te ca te sax ca damay liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te yéen a ma tax a jóg tukki bii doo ci dégg si gil ndigaale sab sëriñ ma rubba doo ci dégg si gil sab sëriñ kenn du ko ci dégg faxaa ba wax yi lan fii boo xoori sëñ Touba rek ànd ak noonu yooy seen melo kenn mënu ko misaal seen bon kenn mënu ko takk tabbi ci biir gaal gi gaal gi mu njëkk a dugg gu ndaw la googoo ko yóbbu ca gaal gu mag nee na gaal gi mu dugg fi ñu ko njëkk a wàccee dafa neex dafa neex sëñ bi tàmbali ne fii neex naa liggéeyale sama sang ba ñu jëlee ko fa yóbbu ko feneen ndeke kon julli géej gi boo demee ca loola دا جاي فيغ واي بي اصحاب بدر سار فرد المهاجر الى الله في طاعه اي مجاهد اي رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي واصحابه في البحر حين ادو ñoo ñoo ñi ko wittili and ak mom mu ne ci biir gal bokk yi julli jot julli geejgi xam nga gaay dañu mëna natalé nak mëna jaay julli motax yowmal yomal kum mëna don am nga point bo manki ku wu ci geej gi rek manki nga point waaw ah, ah, dañu natalé <laughs> ku ko ci wu rek manki nga yomal xiyaam bo ne dama nan duma nelaw guddii dama nan julli ba sama jëbbi marqué wu lu ne nga def geej gi ne la ande bolé bo ba ci ab yonent sax wu ci geej denn yonente boo naan julli na ci géej gi. yéen a ngi déglu ku ko jékki noo ko jékkee xam ko. watrukil bahra rahwan innahum juddun muxraqun léegi julli jot na nañ xalaat loolu ndax mas ngeen a gis ku dugg ci ab oto mbaar muy daw romb jàkka ñuy nodd mu cëppeelu ne day julli sama kalaas gii yëpp sax bu ñuy tukki bu ñuy nodd duñ taxaw dem ba yàgg rek fay cëppeelu jub sareet julli rek defee sa gugu am am na cëppeelu ci sareet léegi nag loolu nañ ci wax waxtu wi jot boroomam na ko waxtu wi jot na mu jot ndigal la koy wax raw na montar mooy boroomam kon waxtu wi yàlla ko koy wax julli taxaw ci wetam na ko tey buñ ma màbbee rek ma jeex tubaab yi ñoom yi taxaw di reetaan waaw léegi nu def ba julli mu ngi ci bato bi bato bi taxawul ndax day échec rek taxaw ci buntu gaal gi yorub deram na ko wuru sànni wuy fit ku ko am cëppeelu ci géej gi te sëñ Tuubaa ne bi mu njëkkee cëppeelu tàmbali naa nuur ba lu bari dugg ci moom yàlla gëdd géej gi na ko jàmm bu ma gërëm a taxaw sa kaw melal new doj géej gi na tekk mu kabar waaw léegi ki mën a cëppeelu ci géej julli noppi yéegaat boo ko neexoon du teggi bu ko neexoon du départ bañ del dellusiwaat mu julli la ko soob a Cheikhul Khadim tubaab yi saxal nañ julli géej gii bu wér wér ndax histoire ba ñuy nettali moo la koy confirmer boo demee ci Bordeaux Bordeaux am na ci archives yi amul par yi nag mais am na Bordeaux. parce que lañuy confirmer leen sëñ bi bi mu sànnee dara bi ci géej gi mboolem bi mu ne Allah kabar lu ne ci biir géej gi gis nañ mu yëkkati boppam ànd ak sëñ bi mboolem luy dund ci géej gi rek yëkkati na boppam moo tax sëñ bi ne alimatul ahda indal mughriqat bi anna ni abudun mu nii lal xaariqaat ña ma nekkaloon ci biir yëfee moom xam nañ ne boromi xal baax la bato bi déqi sëñ Tuubaa di dem julli ci géej gi diggante Conakry ak Ndakaar Cheikh Abdoul Ahad mu baax ma dem na ko diwaar ba dëpp am ko mu àndal ba yàgg mu jékki-jékki na bëlet na ko fii la sëñ Tuubaa jullee woon ci géej Cheikh Abdou Lahad Mbacké war na ko wane na ko julli ci géej léegi nag bato bi mooy kaso bi bato sëñ Tuubaa mooy jàkka ji mooy daara ji mooy fi muy teeli fi mooy lépp na le 21 mi ngi dem xamul fu mu nee na gabon ci biir gaal gi la ko dégg bi jullee ci diggante Ndakaaru Conakry kon Conakry lay ñëw kose bi mu ñëwee Conakry am na ku fa yéege daa yéeg gis sëñ bi rek tàmbali ah kii du Ahmadou Bamba yow de sa waaye gars yi dañ la daan jaay rek xamoon nga ne fii ngay mujj maanaam tàmbali di yàq sëñ bi lu kenn mënta misaal sëñ bi nee na kenn ku ma koy tontu lékku fa waaye jëmmi bato bi machine bi ci boppam moo jekki-jekki rek indi bruit bi di riir riir mu am doole ba kenn mënatut a dégg ki doon wax loolu daal naa naa dem toog saa yu machine bi noppee ba waxatu dara ma delluwaat sëñ Tuubaa nag gaal gi noppiwul bañ ak si Grand Bassam ba mu wàcc ndax yàlla bëggul ku ma yenn bato bi kos si Grand Bassam lu xew Grand Bassam ñaar fukki fan la fa sëñ Tuubaa def le 3 la agsi bala 23 octobre booba ab bañkat bu nekk Côte d'Ivoire la tubaab yi di dàq ñaar fukki fan lañ ko dàq door ko jàpp topp naa trace bi bato bi fi mu taxawoon tribunal ba bu mu téye woon bato bi sax teg naa sama loxo kon kon am naa ci ay recherche yu yu ma wóor yoo xam ne ma ko gëstu ñooñee seen maam ci biteel la ko tubaab bi def ray ko def ko dóom def ci biteel te teew ñu di buur fii ka déha bii fii ka iyaa kenn rek ko am Seexul Xadiim ko tubaab bi ma sa takk yóbbu dellu si woo lu ne mën nañ koo nekk li ci réew mi nag xar baax gu ne ñu wax ko fi dégg naa sax ñuy modéré yëf yek diko orienter diw ni la defoon yoy yep wóor gis nga du jëm ci tubab bi ku yeewoon doo ko wax sëñ tuba rek di wéet tubab bi yobuko ba mu joggé Grand Bassam déqi xol bi mi ñëw bi mi waxal bopam da'ani rahimu 'inda daw me loxo bi maa na andi tasaawu mi nga xamne moy mooy parfum bi mi yoron tubab bi na sadiko sàddi bi mu bato bi costé dawma rek mbooleem ku ma nuyu rek ab duuseen la ma jox ci bitim tool sax yéen a ngi déglu Baol Médias Cap Régis nga xam ne moom poste douane la bu lëndam ñetti weer lañ daan yóbbu dundu ba ndax bata du fa jaaraat ñetti weer andi nañ fi Sëñ Tuubaa béréb bu nekk jaar nee na bi mu agsee Gabon sëñ bi nee guddi gi mu fanaan Gabon wéet na fa ba mel ni néew buñ tàbbal ci bàmmeel ay bokkam ñibbi diggante Lembarna Libreville maa yoon ba Lembarna Libreville Sëñ Tuubaa yàggu fa juróom benn weer rek du ko romb mais maa yomba la yàgg ndax maa yomb juróomi at la fa def ñu wàcce ko ci taatu garab mu boole sedd ak coono ak tar te ndeg menti ya fa nekk kuñ mat da ngay nelaw doo yeew da ngay faatu te daan sam mi sëñ Tuubaa ji ba fees dell sëñ bi bokk na ci lim jaay du faxas koor gu ko fa jëkk fekk ba muy taalif euh, yaa day fi ci 1315 foofa la weeru feeñ mu séntu ko yàlla na ko weeru um la mune ne uma ndoko uma ma mu mune ko xolo xobi garab yi rek bu ci gëna lewet yetti xob koor gep yetti xob lay dag di ko suñ su jël di ci dog kooram di ci xëdd koor ga ci nekk ben saatu la yor jaay ko jënd ci xal di ko kuppat geneen koor ga ben ñambi la yor diko ngaray te teewul muy wax ya xayra dayfin ata bil bishr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bil adadi fofé bëgg jàkkaam yi ak bëgg jumaam da ci yag mo wutale mu bopam ay bant ci àll ba daaj ko daaj ñëw daggal ko boppam gàddu ko ba ñëw samp ko daan am naa jàkk féex lool ndax bant yi mandargal jàkk tubaab yi ñu buddi ko sànni ko ba noppi tuur fa ndox na ko béréb bii daal julli xew fi xam nga ci la tàmbalee tey raditu an yi mawla taala lidi rabba faadi wax na akri bihi rabba waaye li gën a yéeme sëñ Modou Lamine Diop dégg naa mu ne ci bi daa dem nag dem di tuur ndox fële jaawale ñaari bidéel fa nekk mu am bu mu ca sotti ko bu bokkut ak bi mu waroon a sotti ko daw rek songu sëñ bi ya cheikh sëñ bi waxal bo sëñ bi no ka lut ma ci mënoon dara sama jakkay ji danañ ko buddee mu japp tuboo ji rek taxaw ci sëñ bi di yo sëñ bi no ka ma ci mënoon dara ke du budi sama banti yi ngi deglu bawol media FM ci 3w point sunu rajo tv point com waa gi, gi géejug maa yomba sëñ Tuubaa xut ba géej gi ba géej gi na tek بشر بأني عبد من يغفر ذنبا لكن العبد الذي يغفر ذنبا يالا مي جيغل بكاري من اب جامم لا واي دي داغ جيج يو نغا دال وكون سخت رابين من مقافتين لوي بج بجنا يالا تخ جيج جينا تك ينغو سيغ توبا واركو واخ جيج جي لام كوي واخ با جيج جينا دك غيس نغا وار جيج اك واي واري فاس سيغ توبا كو مسا ديفك وا كرام بودي جيج سيغ توبا كو مسا وار بودي فاس سيغ فون sa nawle fas yëpp nga ci àll bi di léggéey magum jëm mu toll ne wartu nu ko ko yedd ak di ko toroxal doxal ca tool yi bis boobu jiina bari ko ci ngoon sëñ Falloo ko yedd fas fas wi da doon bañ lank sëñ Fallou nañ ma ko andil mag mu toll ni yow jëm gor su toll yow kenn waru ko toroxal ak di ko yedd waaw defal na sa moroom yi mott ca tool yi te dem liggéey wax ak njéeréel mu déggit sëñ Falloo ko fi def ali yéegee njéeréel yi wàcc tool bi lëndëm këris ñu ne njéeréel du dox guddi sëñ Fall na jàpp leen ngeen jox jox mu ne ko gis nga li ci tool yii dañ ciy liggéey jëmee ko ci jumaa ji wax ko sa morom yii yii daana kilifa gi ko daan nett nee na ki ko wax bu ko na masaa nett day jooy ndax nee na dan na wax ne njéeréer di dox guddi mu ne walaay dox na guddi keroog bi mu ne ko wax ko sa morom yii njéeréer gi dana ciw ba tolloog morom yi rek xëtti waykat bi sëñ Omar Kane di wax naan gisal njéeréer yi daan yàq réew mi moo leen ko aaye ban génn réew mi wax ay fas nangam wala njéeréer nangam wala nangam loolu sëñ ñu yóbbu ko ci mu nekk Mayomba am na bis ñu yónnee ko muuraake sëñ bi jëfandikoo ko mu takk ci gémmiñ gi nee na mu gàllax ndiku dañu ca saase rek yàlla dafa daal di yónnee na bu bàyyiwul jëfandikoo lu mel nii duutu gis rasulullah ngir neexaayu muuraake bi sëñ bi neen fa azimtu fi xiin ala jaxliha min al mabiat ma dogg ci fas yéene bàyyi luy dugub yàlla dama ah kon wenn fepp lu sax ci kaw suuf ba demee ci maj moo amaam sëriñ si bu fekk ci ma la wax mu ne ca réew ma di bëggu ndawal du ko am di wéet kenn du ko fekk lembar na sëñ Tuubaa nee na lu dul ruugu génn ci yaram la ma fa daje gën a lu dul ruugu génn ci yaram daj naa fa loolu du yell mukk ma di ko nettali ngir tartar ak tiis ak coono ak métit sax fata nee na mboolem lu liggéey bi yàgg-yàgg ak lu métti metti

ndax ñim fi suuloon kenn déggatu tam na ñun fi suuloon tubaab yi suul nañ fi ay nit réew mii boole leen ak seen i fas barke sëñ Tuubaa sëriñ su bari lañ dajale fii convoqué ñu ñëw ku ñëw ñu ne la mën ngaa sant bi la doon santu ñu jox ko fas bi ne ko mën ngaa dellu dañoo soxla sëñ bi ñoom ñëpp lañ suul archive leer na ci nañ tubaab yi lañ suul tuba bi mom lu ne umpee mu ne si léegi moo tax bi fi déggee koy wax naan dañu waroon a génn archive yi mané du génn archive yi buñ ko génne won amna ko mbolo top bu suba kenn du ko topp ñëppay génn ci mom donc ko nañ ci bayyi kumpa gi rek waye ñin ci bayyi kumpa gi nañ boole téye seenu lambi bañ ci boole mourid duñ dara ak néewuñu ci dara loolu coow histoire la bo xamné ne Sëñ ko def mu sax ci béréb bobé di liggéey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya koy sam diko sam ñukoy tabal ci ay xat-xat ak i coono ak i métti mësa dellu ginnaaw benn yoon mësa ñaan intervention benn yoon lu mooy buy wax boroomam day xii asil aajilan bil bishri ma madadi hatta uqima li diinillahi arkaan ngir ma taxawal diine lislaam taxawal ko ay kenu rek waaye du ngir ñaan intervention boo xam ne day bëgg lu ko muccal wala day bëgg a dellu ginnaaw wala loolu sax fa diir bu yàgg boo xam ne kenn kuy wéttali sëñ Tuubaa nekku fa kuy jàppale sëñ Tuubaa nekku fa kuy taxaw sëñ Tuubaa nekku fa tubaab yi di ko fetal sax def nañ ko sëñ Tuubaa gaskaam bu tàbbal ci sëriñ Tuubaa wax na ne am na yooyu du yell ma di ko li mukk ab taw di ko fa fekk boo xam ne du am fu mu làqatu du am fu mu nëbbutu day jël kaamil bi taf ci dënn bi di tafu ci taatu garab yi ngir wéet te du tee booba am na sañ-sañ bu toll nii li tax sëñ tubaay yéeme am na sañ-sañ bu toll nii bu ñaanoon yàlla mu may ko li tax sëñ Tuubaa du morom am na fi ñooñ ba ñu wooyee seen waa kër ñu lànk bañ leen a wuyu si dañoo ñaan yàlla mu alag leen ñoom ñëpp jeexandoo te dañ leen a woo rek ñu lànk sëñ Tuubaa nag dañ koo tooñ ba noppi di ko fitnaal mu am kàttanu mën leen a lor ba noppi na cell ak moom bàyyi loolu ci boppam benn trace bu nuy nettali benn trace bu ñu lay nettali wax la nii ko sëñ Tuubaa jaaree amul. yéen a ngi déglu Baol Média. ku fi mas di tukki da ngay sàkku ñu xam-xam. wala ngay wuti xaalis wala ñu génneel waaye dem liggéeyi ngir jariñ nit ñi benn Ben Laden mii ñu doon coow Ben Laden lu mu doon wax bi fi gars yi ñàngal kenn ku naan Ben Laden Ben Laden Ben Laden luñ ko war a dendaleeg sëñ Tuba Ben Laden dana dem leen xeexe génn leen bu ñu leen naree gañe ma ñëw loolu la Ben Laden waxoon mujj muy làqatu ciy xeer ak te buñ ko gisoon duñ ko rey ba ñu ko gisee lañ ko doon rey sëñ Tuba nag loolu bi xeex waree ñëw dana toog leen nañ génn kër gi xam nga kër boo fi doon xeex sànnante xeer yaag mën naa toj say teleeg baa ñu gaañ say gone sëñ bi dane da ngeen di bàyyi ma dem ca àll baak ñoom bu ma xeexee ba nopp bu ma desiyee seen xel duutu ne ci songu leen benn tubaab bu ngi metti song kenn amul mu liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam liggéey bu réy moo tax engagement yi mu sañ a engagé waxal ko boppam it kenn ñemewu koo wax sëñ Touba moo wax sëñ ma jëmb ci ca njareem ma jëmb silla mu ne ko mbakki mu ne ko yaakaar kenn ku ma yaakaar du tas sëñ jëm mu ko alhamdulilah mu ne ko yow man xiyam gënu jëm ku man sa fa lii bu jàmm ñëpp dajee mel na man képp a sañ na ñokket na yàlla sama borom loo ma digal def naa ko loo ma tere musuma koo jëf jéggalal jaam ñi ku dul man sa ñëw ko yomal xiyam histoire kuñ lay nettali mbooloo cay ànd lu sa dara ji rëy rëy mbooloo ngay àndal pour jàkkaar jàmmaarloo ak noon yooyu te sëñ Tuubaa nee dox bi dara warulu ko masiri kaw ni abdahu qaadiman nabi amrul baraya lillahi yasir doon jaamu yàlla buy liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam képp moo tax ma jóg waaye leneen taxumaa jóg aw ma yitte ci leneen lu dul liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma wax ne lil Mustafa wajatu indal mushrikin matan bihi gada idahu muhlikin ne sëñ Tuubaa nee na mujj naa foofee di fa liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci ay tagg yoo xam ne dafa mujj moo alak way bokkaale yàlla ya moo leen alak ñoom ñëpp ndax liggéey boobu ma doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam liggéey boobu mënoon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa dellu ginnaaw ak lu ca mbir diis diis lu ca mbir tar-tar sëñ bi day wéyal te loolu ci digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla xëy na ko mën ngaa takk say bagage ñëw dellu mu ne katabtu yowma sabt inda galwa baxda jihaadi wa firaaxil balwa لله قد وصلت عند قلوى وصانني أما يجر البلوى شق على الشيطان عند قلوى كوني خديم من كفاني البلوى كل جهة يول بوم أم جوخنا لا يول بوتل نون كوي سانت يالا يول بوم أم جوخنا لا يول بوتل نون ku mas di muñ yool أم mu am jox nañ la yool bu تيل noona tañ gàntal bañ a jaamu yàlla seen kër yi àjjana yi jox nañ la ko bu nu ngoon a jaamu yàlla la ca di pay di yool jox nañ la ko sëñ Tuubaa waxal boppam ne mbooleem lu ko baax doon bëgg ba mu tax ngay sonn yàlla jox na ma ko am naa mbooleem lu ko baax doon xemmeen bëgg caa jot yàlla jox ko lépp lépp laa wax xam nga sëñ Tuubaa moomut lii bàyyi lii lépp ak ñëpp ak fépp la sëñ Tuubaa mom mom gi mom lépp mu ñëw sédélé bi mi sédélé nak da ngay tok di xalat la jox ki la muy jox kee la muy jox kee la muy jox kee la muy jox kee ndax moo tukki laxat rajaxta bi ma lam yarji an nabii dul hajji wal gazi aw suu tajri min rafadin wa jiita rahmata rabbi la sharika lahu li zalimin waaqi wa muqtasidin Cheikh Ibrahima Diop nee na ko wogg wi nga ëndaale nit mënta aj màkk ba am yool bu ñu toll baa nit di jihaad ba am yool yaxantu ba am bénéfice bu toll noonu lan nga dikke rahmatan la sharika lahu yërmande yàlla ji daj ñëpp yërmande jooju la ñëpp xaj mu mën a dajale ngëneeli yàlla yi ak gaañi yàlla yi ak bëri yàlla yi ñoo xam ne kenn xam seen maqaama yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3w point baolmedia point com ba sol yi mbubb ñëwee mu mayee ko ba xeex ñëwee mu dem xeexi ko ba mu mettee mu dem metti ba mu neexee mu ñëw séddi ñëpp te bi muy ñëw kën ijaru jooxoy la wax ilaa xaw mi loola moom amutub tiijaan amutub xaadir amutub layeen amutub ñeseen ñëpp ca tab bi sama dellu gii ku ma bokk réew ma nga yaakaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nay sa mucc ji yërmande kan moo ko am ijaru jooxoy ilaa xaw mi saxaadi danaa wal tag fi naa yow ma jabal xalq niiraana mun ndajee bis pénc na yàlla yërëm ñëpp tàbbal ñëpp àjjana ci liggéey bu réy bii rek la ko amee sàkk ay bër nag partagé leen kenn ku nekk mu jox la dara kenn ku jox la dara tànn ci mbër moom nag moom moo moo indi problème yii sëñ ma ndumbe xaban gaa yi amuñu problème boobu maam Thierno Birahim amuñu problème boobu ndax juróom-ñetti fukki at la dund yu manqué ñeenti weer ñaari yoon la ma sa tiim ba ma amee ndox fay na ko borom Darou Mouhty maam jaar Jaara borom Saam téeméer rakk la dana fi la sëñ Tuubaa nee ci moom laa xam ak mbakk yi Kajoor ku amirul yàlla xaq amirul mbindi faq kon xam kooku jaaxalul gaañ sëñ Daam Abdourahman Lo kaamilub alxuraan la daan naafila ñaar rakk sëñ Daam Abdourahman Lo kaamilub alxuraan la daan naafila def ko ñaari rakk sëñ Modou Lamine Gueye daana wax ne sama kër sunna laa ko sance ñàgga ko charia ku ko ñàggarti yaa boole Mouhamad Lamine sa bopp waaye Mouhamad Lamine boole wala ci boppam koo tànn rek ñooñu gërawul boo nee sëñ moo Sàmb kamit ñu ne waaw wéetal yàlla taxaw guddi naa fi la jaamu yàlla jox boppam gëra xam nga kan moo jaaxal gaañ ki julliwul wóor na tut asaka ajul màkk tey baabul muridiin problème boobu rek la gaañ am coow lépp ki leen ëlëm mooy Cheikh Ibra Fall koo laajoon lu la jaaxal ci sëñ Tuubaa danaan la Cheikh Ibra parce que bu dey seigne Touba fim dem demoo fa ben seigne bu bind lu toll li seigne Touba bind am kudul seigne Touba lo bind sa wa keur man lañ ko mokal ku seigne Touba la lo bind sa wa keur mokal waye ku ku man lim bind amul ku xam lim bind amul ku mokal lim bind amul kenn ku mokal xasida yep amul ku man yep amul ku am yep amul ba nopi nak mu baddil Cheikh ibrahim Fall Cheikh ibrahim julli wul wor waye lum def dama ni nan ma indil àddiyee Cheikh ma jox ko bala bala moo dugg ci waxtaane Cheikh Ibrahima man nag maa ngi ñaan ci daraje Cheikhul Khadim ku ma jox àddiyee Cheikh Rafaal yéen mu nekk ab làmp tiim lépp di leere lépp neel na ko sa lépp leere àddiyee Cheikh Ibrahima da laay laaj ci man amul won do am té bu du woon Cheikh Ibra lu bon dal nu dar dara du nu jar lo rek na ngeen may jégal ci dog gi mako dog dama xam ne bu du ak mom dar du nu jar rek kon bimu ko tuddé ñu neexal ko do mu doga agalé waxtaan wi lo rek la ci jublu way na ngeen may jégal. kon lolu moy problème bi. yaa indi jébbulu ak sujjóot ci yoonu murit yaa joxe lépp randal àllarba Cheikh Ibra Fall dikrul ilaahi la sax yendoo liggéey joxe ko ci lii la jaar ba ñu xëy baddil ko Cheikh Ibra Fall kon dañu ko baddil ñu dikrul ilaahi lim def monsieur su ko def te kenn kenn du ko def ba àdduna àddunay tukki neel billaahi Cheikh Ibra Fall am nga lu kenn amul te jëf lu kenn jëful te gis lu kenn gisul ci diine Cheikh Ibra Fall waaye nag mu am lu mënu làkk yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point sunu rajo TV point com Bamba laam ngaay lam cay Ibra Fall xam nga ñuy jàng bismillah rahmaan rahim duñ jàngale laam gi ndax bismillah rahmaan rahim mu ne nag baa gi jiitu laam gi moom mooy sëñ Bamba waaye laam ngay Cheikh Ibra Fall te kenn xamu ko bas ma la laam nga ca kaw tiim baa nga kenn xamu ko baa gaa di Cheikh Bamba laam ngaay làmp ca Ibra Fall ëllëg la xam mbiram buur yàlla moo xarale wallahu yafalu maa yashaa Cheikh Ibra Fall ëllëg la waaju la gantu xam ne yàlla buur la añaan dafay lekk lu baax ni sawara di lekke mat sopp naa Cheikh Ibra amaana waay weddi ko ngir ak njàng te ku ko sut jébbalu lii doy naa gëm bu Bamba doon rasulillahi ahmada ngay Babacar Sadiq Rafiq Ahmada xemem la man moo tax ma doon sa baay faal faw ci baatin lamp yaa may suturaal addis waaw góor jasakalaa xayraan labdaaliya ak xutb yaa xawsiya neen jamono enrivi seen bóot ya ndàmpeel nañ ko Cheikh Ibra Fall amaana waaye di ko jeex ci téere ba jamono allahu akbaru yàlla noppi Cheikh Ibra Fall sëñ Modou Lamine Gueye daana wax ne Cheikh Ibra Fall kenn daa xamul foo ko sëñ Tuubaa làq waaye nekkul ci caaxaan sëñ Mbàkke fa jamo mu baax ma radiyallahu taala anhu nee na soxna may muuna moo ko wax ne ko sëñ Tuubaa nee na ko bi sawara daa ñëw fii fi man di jooy ndax ba ma yàlla sàkkee dana ma da nga fees waye xamna du ma fees ndax yow sa arab mo wax lolou seigne touba nak xamna naa du ma ndax yow seigne bi ne ko da nga fess kay ku wax Ibra Fall lu dul non ak wa këram rek mo lay feesam motax di nga Cheikh ibrahim Fall wóor seigne touba ne safaanub aljana ñeel na ku juuyoo Ibra Fall kon jotaay yu melni ni nuy waxtaane sëñ Tuubaa di waxtane baxam gi seigne rat ak Cheikh Abdou ak

les kenn liste de Cheikh Amadou Bamba nous nooy kenn liste si sëñ Tuubaa yi ku bañ ko ko kennal looy def sëñ Tuubaa kenn la li mu def kenn mënu ko def ku xool Cheikh Muntaqaam Cheikh Abdul Bachir mii nga xam ne borom pas-pas yëpp xam nañ ne ñu ngi ci ginnaaw ndax sëñ Muntaqaa fi ne murid yi vitesse bi ñu doon daw fi ne dafa gis nga booy daw jàpp ci dara lu ëpp vitesse nga dem ba say tànk dut laal suuf foofu lañ toll ak sëñ Muntaxa ndax sañ sëñ Muntaxa dafa coché ma gaa yi dañ fi nekk di léeb léeb mu ne bu yàlla teewoon ëllëg rasulullah sallallahu alayhi wasallam teew ëllëg sëñ Tuubaa ma jéggi leen fa dem ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa na ko noonu ngay def mu xëy rekk ne ko kon kaay yilif ñëpp xam nga sëñ Muntaxa li ko toog mooy loolu bin mu jéggee ñëpp bi ne ko na jéggi ñëpp tam la kaa yilif ñëpp tay cheikh muntaxa bachir eh, damay masla rek way sëñ tubaa rek damay maslaa mënta ñàkk waaye rek xol gëm gi sëñ tubaa xam-xam bu reey bi ci mom ak pas-pas bi da xamne ne boo bëgg sëñ rek sëñ Muntaxa classé la te lu dul bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa ko gën yu bari ay détails rek lay laaj murit day kosse am fulla yegg foo xam ne xam nga murit ba may jot du nekk sax di werante ci def détails yi gars yi wax ay diw nii di dugg ci domaine yi jàmbur murit daal wërtam temps parce que waxtaan yi werante yi day tax a soof loolu nar a wax rek jànge ko xasida baa nga sikare ko jërëjëf sëñ Touba bàyyi werante yee jataay yu ñàkk solo yeeg tànga bi jël sunu jamono ñëpp sànq ko ci ay débat wax naa ko dem démb ca sëñ ak sa sàmb mu baax moomu lépp muy waxtaan ma ne ko nañuy topp ñi war a jiitu nañ jiitu ñu war a topp seen ginnaaw di ci topp nit mënta dem sans kilifa surtout ñun ñi di yëngu ci xasaa yi di ak di yëngu ci waxtaane seigne Touba ma ne ko. yéen ngi deglu Baol media FM. dem bam nañu ko fekkee ci jotaay ba ma ko Bouchra Samb du du jàngaluma te li ni am ci aduna ay at la xam lu ma ci ëppale ci li nit di am ci aduna ma tanal ko sama bop def ko kilifa bu doon xam-xam dedet Lima ma ko defee kilifa moy dafa gëm seigne Touba bu ma xam ne daa gëm Touba mo ndax man ñi mu tuddeegun doom sëñ Tuubaa li mu tudd ci sëñ Tuubaa ci doom ba gaa yi jàmbaar lañ waaye gisuguma ñu yegg foofu ay Cheikh Gànnaar ak Cheikh Gabon Cheikh Touba ak lu nga xam ne ku ne sëñ nu ne dëkki sëñ Tuubaa yi nu ne tudd na ko tudde na doom boo tuddee sëñ Tuubaa mu jooy ko ku bëgg a dem da ngay lonk ci kuy dem man dafa am lu ma enragé wu loolu laay wax sama bopp moom lay wax ñëpp la sëñ fal lu waxoon daal sëñ Fallu nee na sëñ Tuubaa dañ naan ko nikk na ko nankatum na ko katiw na ko tarawlis waa léegi eh, sëñ Tuubaa mi baax bay séddale nga xam ne loolu waxoon naa ko fii daaw ci sëñ Mor Samb lu mu waxoon Mor Samb ëllëg ko xam ak ku mu xam ak ku ko neex ak ku mu neex bu la neexee bu la naqaree daal tabala jëm xam sëñ Mor Samb wala nga wóolarante sëñ Mor Samb sëñ Tuubaa defal la loolu nga nekk fii rek bëgg a jël ñit ñëpp yóbbu leen sawara ku wax nga ne ko sawara nga jëm fi ne boo gisee ñiy wax loolu ñëpp seen dépasse doyut ndax dañuy dañuy ngott dañuy siis laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku ko wax doo dem sawara ah yonent bi waxul loolu ku wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah doo dem sawara ñu boole laa ilaha illallah muhammadu rasulullah gëm sëñ Tuubaa murid daal ñett ko jurut wéré di fan wu gàtt ñàkk xalis lu dul lool rek baax na ndax boo wéradee bu sëñ bi wootee doo mën a wujj boo gàttee fan yu neex yi ñëw ci kanam doo ko fekk parce que dama benn waaye dama ne ko keroog dañoo teel a judd mu ne ëpp naa def dañoo yéex a ñëw ma ne ko lu tax mu ne buñ buñ teeloon a ñëw dañuy daje sëñ ma ne ko yu neex yi war a ñëw ginnaaw bi nag kon duñ ko fekke fi ne di baaxoon mooy bàyyi ba lan 2000 déedéet lan 2000 euh, mooy mooy mooy mooy ñaari junni léegi ah? lan 3000 nga door a judd xam nga boobaa lan mooy xew amatul ci àdduna dara luy yëngu lu dul sëñ Tuubaa barke Xaadimu Rasuul des na ci kanam dara du yëngu dara du yoon sharqan wa garba lépp Bàmba lay doon dara du yëngu lépp sëñ Tuubaa lay doon man la ko ni dunyaa wa uxraa ji day leer moom tey moom ëllëg kon lu mu gën a jëm kanam gën a baax suñ gaynde gii fi jóge barki dem Cheikh Seydil Maxtaar nga xam ne ku yaroo ni moom moom mënu koo gis ku dale ni moom bare ni moom baatin te tamit ay milliards rek ngay dégg Cheikh Sidi Muxtaar kon nañ defar suñu jikko yii defar suñu kii jàpp sëñ Tuubaa gii te te te wéy ci rek nañ ci wéy sëñ papa gi maa ngi lay sant ndax sëñ raat mi ci yow laa ko xam lii nu leen jàppee it moom waxal na ko boppam waaye ñoom it neex nañoo ñoo jàpp ndax duñ fàtte démb te am nañ kilifa may bëgg naa la lool am nañ kilifa seen kilifa yi mel noonu jataay bii nu toog tey nga xam ne bu ñu doon toog jëmale lu gën a yàggit nu gën di wéyal ndax sëñ Tuubaa boo ci nekkee doo mar doo xiif doo yëg dara bànneexoo sëñ Tuubaa googu ñuy bànneexoo sëñ Tuubaa daje gii ñuy daje loolu rek konti kon na ku ne ëmbal boppam mbokkam la mu ëmbal boppam rek te sax deng ci am kilifa ak jàpp wax naa ko ko biig ma ne ko. yéen ngi déglu Baol Média FM ci 3W. damay nekk ba baolmedia.com. takkusaan ma déparé Touba sëñ Papa Gueye mi seere na ay kilifa yu mag a yoo xam ne am na ñoom bu leen woowoon danañ daw ba fakkasan dama ne leen 23 heures et demi laa fa mën a ñëw. ndax xool sama espace ak sama ñi may dofal nii nangam nangam waaye li tax ma ñëw fi biig dama ne bis bi du du du ab conférence ma fa indi fi ne man damaa waroon a ñëw toog nuy jàng ma àndandoo bokk yi di waxtaan ci seen biir bañ a toog sax di waxtaan waaye ginnaaw man gan laa goo xam ne aw oh, ma benn sërite bu ma mën a indi lu may sëñ ne fu ma jëm moom laay mën a yóbbu sëñ tubaa ne rek laa am ci wog bu ma mën a séddale te defe naa moo dàq ci bénéfice yi xam naa sëñ ne ah moo dàq lépp kon looloo tax moom laa mën a indi pour pour pour bégale leen ko ak wax ko ci seen kanam sunu kilifa yu baax yi toog it nga xam ne jataay bi niñ ko coloré jëmmal ko tey kat mënoon nañ fee nekk nunu neen te seen kilifa yi duñ fi nekk te jamonoy léegi kat bari na ñooñ ñu am ay relation lañ ci bitti waaye seen i këri kilifa fonkuñu ko te ku xeeb sa cër nag damay wax wax naa ko ba tàyyi ko abonné nekk ca Tigo bu ne orange am na promotion bokkoo ci ku ne 77 daal kuy woote 76 taxoo koo jóg ku ne fa la sëñ Tuubaa classé dem fa ñam booleeg maam Cheikh Mbaye nañ féete ci maam Cheikh Mbaye ñam booleeg Cheikh Ibra Fall ñu ne ci ñam booleeg sëñ Bor Samb Kamil ñu ne ci kenn ku ne fa nga ne gis nga réseau yooyu ñu branché damay wax gaa ñi ne leen charge portable jërul dem ci poste bi ndax foo koy roof nga du gis prise yi nañ ci roof ku ci roof rek branché wu automatiquement sa téléphone fees mooy mag ñi ñin fi bàyyi kilifa yi ñin fi bàyyi bu bracelet woo ci ñoom rek liñ bëgg dañ koy am te xam ne murit du am jot bàyyi werante yi kenn ku ne defar jëmmam mooy te ndi ko vocal yeeg whatsapp yeeg yëf yi ndax mënees na caa jànge wax naa ne man xam naa ñu jàng ba am doctorat fi ne te ci internet yi lañ jànge te ba léegi si ñii tey la xam-xam gën a gën a gën a mën a ubbeeku ci noonu ñiy gëstu ñëpp tay professeur yi gëna kawé ci aduna bi ci bir ni ngay tok di jang xam li nga bëgg xam loolu mo upp solo groupe bu ne nga bokku ci fu ne nga vocal ci te do wax wax ju am solo murid bo xamne foko fek mi ngi am connexion waye du joxe cotisation fasale rek fasale rek est ce que jëwri ma nga sa ginaaw dana bax bu ma fatte lolu yoon wi bokku na ci li tax yëf yi yeex moy loolu mag ñi dañoo amoon pas-pas ak pësief sama classe gi yor ay pexe ak i plan kon sëñ Mbaye noo ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp. yéen ku baax la ndax dañuy daf daf ñuy nemmeeku jamono bu nekk te loolu lépp jëmmi sëñ Mor Samba tax jëmmi sëñ am rek a tax ak jëmmi kër gi xam ne ak njabootama te mu wóor ko ne jaxasoo gi jaxasoo nu njabootam bu ko neexutoon du am. ndax kat sa kilifa bu ne la bu ma la gis nga ànd teeg diw duutoo ànd ak moom kon man loolu sant naa leen ci yéen waa kër sëñ Abdou bu baax a baax ci yiw gi ak baax gi ak dal gi ak it amul cër ba noppi nag teg te danañ toll ci jamono yi wax ak publicité ay rajo kii réseaux sociaux yi ku noppi ñu defee ne dara nekkul fa yow te ñu bari ci ñuy wax dara nekkul ci ñoom sama classe bi yëpp dañuy yëngal rek te bari na ñoo xam ne darajey maam yi jàmboor yi leen jël di ko waxtaan seen maam waaye seen maam defu ko fi ne léegi-léegi dégg keroog damaa dégg benn waaye daan na xaw ma maama mooy përëgum day joorum suñ joama ne ko ah, ay man moom cer na ko moom teggil boobu moom moom moom mu la nangu naak waaye loxoom day joor nooy saa loxol nday joor ma sàmbaay sa loxol càmmooñ Cheikh ma sàmb mooy sama loxol càmmooñ xoolal loolu loxo bu nekk ak la muy jariñ borom ba loxo bu nekk ak la muy jariñ borom ba kii mooy ndeyjoor kii mooy càmmooñ kii boole bindal sëñ Touba maasal sëñ Touba fàtte boppam ngir sëñ Touba sëñ Touba defe naa ku ne bind na ci yow waaye maa li ma sàmba himmatun si waa himmat yi sëñ Touba nee na ma sàmba nikkut man mii maa nekk ndax amul jënn yitte ju may man

am na bis sëñ Aliou Touré sëñ Aliou Touré sëñ Touba dafa wax Cheikh Issa Dieng na ko looy rafaatale Aliou ture mu ne ko tànnal ma mu ne ko jox ko sa soxna sañuy wax Seyna Lo Seyna bu Lo laabal ko Cheikh Issa laabal ko jox ko sëñ Aliou sëñ Touba gis soxna si sëñ Touba ñëw ñëw kër sëñ Aliou Touré nekk sëñ Aliou Touré ci njaareem soxna si nuyoo si sëñ Aliou Touré sëñ ne ko ama koo gone soxna sëy ne bu ne ko ah daa mel ni mbakke daa koo weesu de sëñ bi ne mu ñëwaat nuyu sëñ Touba ci kees gi sëñ bi ne ko amagoo gone amagoo fa takk ndeer ca kër Aliou Touré mu ne ko Mbàkke laa la waxoon rek daa mel dama ko weesu de sëñ Touba dugg ci biir génn jël kol kolub cere akub leetar na ko bismillah xéewleel kolkoru cere bi daana ko bataaxal bi boo amee gone bi si tudd ma nga joxe ko ci xoolal loolu bataaxal boo amee gone bisu tudd ma soxna Zeyna bu dem am lu mu yëg bisu bisu tudd mi mu ne ah sëñ bi da joxoon na ma ab leetar ne nañ ko xool ñu taj dajji leetar fekk sëñ Tuubaa bind ca ma sàmba anti ceeb ismuhu nañ ko tudde ma sàmba Mbàkke sëñ Tuubaa xëy nañ jaareem na sëñ Malick Ndiaye yéeneel ma kuy jox na jox ma sàmba kuy wax naa ko ma sàmba jox na jox ma sàmba kuy wax waxal ma sàmba sëñ Tuubaa nee na sëñ ma sàmba yonent bi dañ ñëw na fi ne ma neel ma sàmba fekk mu ngi jàng xasaay di ko jàngalu du gis am njàqare àdduna ak njàqare àlaaxira ma sàmba Mbàkke du ko am am na xasaay di tax xasaay di ci boppam ñoo dem ci suñu borom na ko sàkku nañ ci yow nga dimbale nu Seex ma sàmba Mbàkke dañu maas cheikh ibrahima diop nee na faaxal afadila ahlul jiidi wal karami masamba mbàkke kadirul alim wal xekam fatan fatinun labibun xaaidun yaxisun nadbun karim ala taati wal xidam nee na gaa ñu baax ñëpp buñ dajee keneen féete kaw mooy cheikh masamba al afadil ahlul juudi wal karam nag way tab ya ak borom tedd ngaye cheikh masamba leen féete kaw mu ne cheikh masamba laa ayba fii siwa taqwal illahi wa iqdaamul qadim bila mayli wala sa am nee na sëñ masamba amul ayib bu fekkoon am na ayib nee na ayibi cheikh masamba mooy ragal yàlla ak liggéeyal sañ Touba te du yokkat dégg sëñ Touba dafa déggoon sëñ Touba Cheikh Massamba am ci tawféex nag ci sëñ Touba noonu la rogalaate ci léppam tawféex ji ko suñ borom mayoon nga xam ne nuru gim nuru sëñ Touba daa ji xasaa yi di dégg gim koy dégg sëñ Touba ne ko maye tawféex yi mu àttal daaj ak sëñ bi ni mu naqaree jëflanteel ñu bari ci maam Cheikh Massamba la ñuy jaar ngir ñëw ci sëñ Touba dégg ko lool mag ñi dañoo déggoon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mas naa tëju ci njaareem rëdd aw rëdd daal di wax sëñ Aliou daal di wax mag ñi ne bu fi kenn ñëw gis ma sëñ Aliou ture ñëw asalaamaaleykum waaleykum salaam mu ne na ko baax ñu ne ko tëju na mu ne bismillah daal mu na bu ko kenn fa ko nekk mu ne waaw dégg naa ko ñëw ba ci kees gi sëñ Tuubaa nekk ci buntu mu ne asalaamaaleykum daal di toog sëñ bi nag képp ubbi kees yi kii ko mu ne ko Aliou Touré sëñ Aliou Touré moo doon wax baarakallah joxal ndaw ñi mag ñi regg nañ loolu la daan wax sëñ Tuubaa xam ne masaa ñëw ci sëñ Tuubaa sëñ bi da ko mujj wutal ab siis mënta toog maanaam ndax mujj am yaram ba bu ñëwee day tàllal tàgg sëñ bi ne ko toogeel ni nga man ma ma mu andi turé lu waral lii mu ne ko mbàkke xanaa jël jur gi rek yow yow ko ci xur wu naan baarakallaa joxal gone yi mag ñi rek nañ mag ñi yàq àjjana yàkkam dina gone yi barke mooy borom baarakallaa sëñ Aliou loolu la meloon sëñ Tuubaa génn ko Aliou lu tax ma ne bu fi kenn agsi nga ñëw mu ne ko mbàkke ñii fi nekk réew taxu leen a taxaw ci pénc bi amul jot bàyyiwu leen fi ñàkk laa fonkit taxut li nga man ba ma ko manoon ba Issa Dieng ba Ibra Fall doonu gis Mbàkke dañ ko mënu yow rek lañ ji yaakaar mënu ubbil kees yi <laughs> bandil kees yi na ñëpp ñëw si tey nga gis mag ñi niñ déggee woon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax ne ko faalam yaa ali bi anni ishtaraytu laka min rabbika al iman wal islam wal maa la jëndal fa yàlla iman ak ak xol loolu mag ni sëñ bi sëñ bi jëndal na loolu ya yalla ubbil na la bunti aljana kërum njaareem gi bim neko nak mako lakal ma ko bi daa nek ci biir di seen kuy dox ci biti mu na ci Aliou tour ndigal ñew na sa borom kërum gi ko bu kenn ne ci biti di gis ku war gëleem sax nar bu war gëleem sax bu mu xam ne ci kër da xamne ne ma nga daan ji bant ya ca kungel lakko ko bam yegg tuba ñew diko sëñ Aliou Touré nee na mu ne mu ne taalibe yi bu kenn siggi xool sëñ bi dàll yi sax bu ko kenn gis te boobu taalibe yi wër nañ kër gi ba mu daj sëñ bi ñëw ba tolloog moom na ko ndax dégg nga li xeer yi wax xeer yi ñu fi samp ndax dégg nga wax sëñ Aliou na ko du ko baaxee da mu ne ko xeer bu ne nee na ma diwa ma fi indi bul fàttali xeer yi ngay wax sëñ Tuubaa xeer yi naan ko man de diwa ma dagg indi ma fi bul fàttali bul fàttali Cheikh Moudou Moussa waxoon na ko ci jumaa ji sëñ Fallou waxoon na ko sëñ Fallou boobu sëñ Modou xam nga moom rek moo fi am sooroor bi féete kër sëñ Fang moom moo ko moom waaw jëlal sooroor bu la neex sëñ Modou na ko tànnal ma seetal rek dama laa sas sas nit mu jaayu fasam joxew sas téye la ci des yow nga def li nga mën ak li nga mënul lépp seetal bu la neex borom façon na ko man da damaa jaayoon bi ma koy jaayee wax dëgg yàlla yóbboo ko doo ko xam waaw jumaa ji nii rek lu ci waay teg ni sama téng yi leer nañ ni laa ko xamee lu ci waay def rek xam naa moo tax ñuy durub léeg bi sëñ bi laajee joxowunoog dina bu toog yëpp jumaa ji fi ne poto yeeg ciment bi xeer yi ñooy wax ñu leen fi indi sëñ Mourou Sow daan ko ñëw di ko nuyu di jaay positif mu bi de wër naa xeer yëpp wu ne wax na ma ki ko féddi ba mu des yow yëndi woo fa wenn sëñ Tuubaa nee na ku ma ne def nga ko saa yoo jógee pajuk aajo laa lay boole bu del si wootul ma xam ne def nga ko bu del see fi man ma téye ko ne cell te ne bari na koy waaxu sëñ bi ñaang-ñaangi fekk dafee ne sëñ bi comprendre ko xam na ko ndax li waroon a ànd ak yow del si toog fi moom na ko diw defu ko nan sëñ bi xamul mbir mi yëg fekk xam na ko la nga andalon nga gisut lola del ci kon nañ am pas-pas ci sëñ bi de ci sëñ bi dund ci sëñ bi Cheikh Abdou sëñ raat mi ku bax la gaay lu ne nangu nañ ko garanti bam dess des bu naré dem na dem sama benn way dama ko deg mu ne sëñ Saliou yalla fi yàgg ci wàllu sëñ Mourtala am ko ne ko bo faato ko bëgg mu jullee la mu ne det donc kay nak ku nu jullee du du du jafe xam naa dem jotee rek ku mana dem man na dem rek sa yu yalla dogal ñu tollu ci. am nga kon ah, nungoo demal kenn loolu ñu ko nungu bëriwu ma Massamba Mbacké de defoon na ko mu Mourou sa tàmbali liggéey bi jumaa ji war a génn adduna sëñ Massamba ne ko baal ma demal la nga yeggalee sëñ Touba liggéey moo tax sëñ Touba sëñ sëñ sëñ sa nee na ko bu yomal yàlla dana teew sëñ Touba teew ma teew seeral la sëñ Mourou sa mu wax ne moom mu dee ñëw nar a ñëw ci yow nga ñëw ci moom loolu asgor rek ko man asgor rek ko man waaye nag la nga ko woon ba tax mu def ko waaw waaw xoolal loolu ndeysaan ndeysaan jërëjëf loolu doy na sëkk kon nag nañ ko ñaanal moom it yàlla guddal fanam yàlla wéral ko barke xaadimu rasul yéen a gi day bii man man sama addi ji may laaj sëñ Papa Gueye laay koy laajal xam nga at mu jot dana fii ñoom mooy laaj tey nag ku dëgëru fit laa bëgg doon nga xam ne du ma ay fas ak yooyu yëpp garaaw bu jëkk dama ko daan daw yooyu waaye xam naa affaire bi moom ginnaaw doo ko yàmm su yónnee ko si su yàq joxaat leen ma may ngir sëñ Tuubaa te ku ne fas ci sëñ Muntaxa yàgg fi te ñu doon ay murid sàll koy sàkku ci ku fi teew rek nañ xëy na Cheikh Abdou ñëw leen dox ma addiye ñee taxaw fee ci ginnaaw ñëpp dañ may def addiye sëñ Touba sëñ raat suñu xol sedd na lool sëñ papa gay sëñ muddaam noo ngi leen di gërëm bu baax sama mbokki xasaa yi door yi maa ngi leen di nuyu yéen di leen gërëm mooy miftaaxul xuyoo wal maraab waaw noo ngi leen di gërëm bu baax ci ndamul xasaayid yi yàlla na sax waaw waaw bàyyi hmm, waa maj ma kon tubarkalla Baye Fallou seereel nit ñi rek seen ngore ak seen baax te gor googu ñuy seede ak baax googu ñuy seede ci gànn Messere bi la nekk ndax li gën a am solo ci jamono ji mooy reconnaissance jamono ji li wax nii xat na xat goo xam ne nii nit ñi am nañ fu mu toll foo xam ni dootuñu wàcc dañuy yëg te duñu wàcc ngalla nag moom da koo dallu boo ma gisee nii ma ñëw fii am sama relation ak raan mi sax ñu bokk dëkk Louga ci gànn mi la jaar sama relation ak pap Gueye mi ci gànn mi la jaar parce que sama xarit rek yéen ngi déglu Bawol media FM ci 3w Bawol com bi mu ñëwé fi sama kër la yenn té li gën am solo dafa am xoon boko tollo do to wacc pour nit waccal do jëf motax ku ko rapproché wul xamoo ko te gànn mi man waxuma dara simplicité oyofam bëgg nit am respect ci nit li gëna jax parce que dama gëm sëñ Touba man sëñ Tuubaa laa gëm déjeuner ma ci dara am fulla ak fayda gëm sama bopp dem xëy liggéey yaakaar yàlla ak yonent soo xam ne ñamale ma koo dara dara dara ku ma jàppit danga may jàpp ni ma la jàppe mais moom dafa mel noonu depuis que ñu am connaissance mu ñëw fi ma ma ñëw di ko indil añ kër raat nii laa ko ne ma jàppal naa la bopp ñëw ci jour conférence bi wax depuis lors que ma xam-xamee amul dara ci bàyyi bu fiy wàccee damay damay woo téléphone ki dem mu mbaram moo ci ci bi ma indi sama oto di ñëw dama xaw a yàgg bi ma wooyee rek munu maay foo toll boobu tey ma ne ko damaa can dama foncé fii mu ñëw bi may génn bi may génn ca kër ga dama ne moom moo jug gungeel ma boobu ma ànd ak sama soxna su bees yi fi ñëw moom rek bi mu demee dani ma kii ne man ni ma koy dégg mais ku ko rapproché doo ko xam kon bu gor ñi toogee war naa man su ma seedéw lii man du ma du ma julit sama li ma bëgg sëñ Tuubaa dama ne kon gëmmoo ba sëñ Tuubaa dégg ngeen lu baax la waxoon fi mu tolloon yëpp tëriwul li mu am lépp day na ko bokk kon dama ne moom li muy wax nii gor gi muy wax baax gi muy wax simplicité gi muy wax gëm sëñ Tuubaa gi muy wax ci moom mii la ne te desalu ci daal kon su gor ñëpp war naa ko sëñ mooy gor la baax la jullit ak na ku bëgg wax nag bu benn man damay nangu toppaat ci moom ndax xam naa raw ko yomb mais kon dama naan deuxième bi laa kër mu ma daan sëñ gànnaar dama ne la yóbbante àq la Baye Fallou Ndiaye fii la jullee timis tuutee tee ngeen fekkante fee la toog ak saa sàmm toog fii di jàng mu jógee fee ñëw toog jël micro bi ak saa jàng mu jàng ak saa jàng mu jàng mu door di jóg delluwaat fee sëñ jiirim sëñ Mbàkke Marina yónnee ni na noonu mu dégg ñu julli timis mu ne lii ak di def gànna di ko def man lañ ci wóotu ndax man mii la waroon ni ma nag te ñoom ñaar seen Pastef man naw naa ko lool lii de Baye Fallou Ndiaye wax na ko fii kon nag comme yóbbante àq la dama leen koy yeggee man nag li ma bëgg a doon ni mooy ak saa Samb buntu kër maamam laa ko ko kër maam Malick Codé Samb papa Gueye mi ma la ma ne ko sëñ Touba def lu impossible ko indi ci réew mi lu wër te mën a ne ma ne ko ndax premièrement sunu géwal nga dañoo waroon a xewal nga ñëw ñaan ñu may la tey ñun te bu dee taxawoon nu attan koo jël bàyyi la ngay liggéeyal Sëñ te la ko firndeel kër Fallou Diop Gabon dañ foo dem Porokhane c'était le 22 ñu def bëgg man Cheikh Abdou ceer Ndiaye Thierno euh, Baara ak Ndigal ma dem di ñaan gémi bi comme ni may yalwaane ngir bëgg a dugg rek fekke li ak saa di jàmm kon lu lu impossible la ngi noonu ak saa sàmm ku ko xamul la jaaxal mais ñun ñu juddoo fii jaaxaluñu bàyyi ili da koy tere bu ko fi tëggee ci daara la moo ko njëkk a taasu ci àdduna bu loolu lu ñuy fay droit d'auteur moom lañ koy fay cercle de la jeunesse bu Louga ni buñ sañoon ak saa moo leen di daggal ay banti galeen pour dëkk mais xoolal fi ko suñ tubaanee seet pet teg ko fee boo jéem a xool la woon démb ak bërki démb da ngay sa doo ko tee dem sëñ Gana jaxasoo nañ lu bari am na loo xam ne doo ma ko wax ma di ko waxaan mukk ci rajo ilaa yow ji ndax dama ne la am na vidéo boo xam ni keroog ba ma koy seetaan mujjul yekk te Moustapha Diaw moom sëñ Mat Diaw waalo bi ma koy déposé ci bëccëg jontali nu nuyoo ak siyaaram wax ngànt la mu am dani ma man gànn leen na ma neex ci moom ma ne ha mu ni reconnaissance bi mu am ci sëñ Touba ni taxaw fu mu taxaw assumé lu ma am sëñ Touba mu ne moo tax fu mu toll sëñ Touba da koy dolli te kenn mënta tee dolli ko googu jëm kanam gis nga mu daam jang mi li mu wax wallahi asi bu doon la ñuy def micro trottoir wër mbedd yi kuñ wax dana wax lu gën a garaaw mu daam waaw tukkib géej gi ñaari sabab la am mhm. sababu zahir ak sababu baatin sababu saayir bi mhm, mooy tubaab bi mhm, dañoo ñëw nungu Afrique booba AOF lañ koy wax mu juróom-ñetti réew ñaari pouvoir yi fi nekkoon moo xam muy kilifay diine wala nit yi àdduna ñu jàmmaarloog ñoom ñii ñu faat leen ñii ñu génne leen yor yaari gànnaay xëpp xëpp a xupp xëpp la alal nga ne miig ba ñu xëpp la nga ne miig. yéen a ngi déglu Baol Média FM. taalub lislaam bi bëgg a fay sunu rajo TV. lislaam di jooy bëgg ko sowe. lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaay. Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may chafian ku la jiili. may xaadimu rasuul fi soodaani may ram xarlu bi ani niiraan. beneen sabab bi ci des mooy yàlla moo namm ci moom dara ji ju kawe dafa wax ñett sababu wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna ni fi dawmi yàlla ci boppam moo nam mu ma am ca moom daraja ju kawe moo ci jëkk ba ca topp ma ràmm sama xeet yëpp ba ca topp diirub jamono maa fi doon xaadimu rasul xaadimu ku ne mën nga ko dégg waaye rasulu benn la mu demal màkk bind fa leetar def xaadimu rasul des ko yónnee Sénégal suñ mun taxaa mel na koy jox na maam moo ko doon xaadimu rasul moom lu ne moo am tiyaas ba mu des ko ndax nongees na ko tax xam nañ kenn du ko weddi dégg goo fi kenn du ko wooye demal Makka la la xam nga bu ki dem makk moom jéggi naa yeneen réew yeeg yi ci ngay dem bind fa Xaadim Rasul bu nu xëyee dañuy tàppe laaj ci poste yi yónnee ko Sëñ Muntaxa mhm. ndax maama may Xaadim Rasul wala akun xaadiman fi daw bi mhm. diirug jamono ma nekk yi liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loola ba mu amee nag mu préparé loolu looloo waral mu tàmbali woon doon yar mag ñi ak di leen defar ak di taalif xasida yi ak formé leen ci bu ëllëgee bu demee dara du yàqu mhm. sëñ Touba bu tegutoon stratégie yi defar ay bokkam defar ay jàmbur samp leen dëgëral leen bu ko sëñ bi bu ko tubaab bi yóbboo lépp maasolo waaye dafa fexe ba bu fi bu fi jógee demit li mu fi bàyyi woon ne ci loxo te loolu du fi jógee. loola tàmbalee ci bi muy sanc Touba ci 1888 86. tubaab bi jëkk nañoo ñëw pour tere ko sant Touba. mu bañ a sanc indi fay téere indi fay nangam di ko jéem a nangam waaye moom xamul ni boo demee ci duwaawul kabir sëñ bi nee na daaru salaam ak Touba ndigalul yàlla la am ci sanc ko kon ndigal a tax mu sanc ko sanc fii jumaa ji nekk sanc daarul xuduus sanc daarul rahmaan muy kër solution yi ñu koy wax daaru naar sanc daarul minan fii jumaa ji nekk moo nekkoon këram juróom-ñetti kees la amoon kees gu ne am na mu néeg ba mu des kees gu njëkk moo nekkoon néeg soxna Aminata Lo fi la fi la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Khadimu Rasul jamono mu sañ ci dëkk bi dafi mbaarum ngeer ak dóor dóorum ngeer di jiite di sikar di nodd di lixaam moom sëriñ bi ñëw daarul xuduus tàmbi tawaali fi yeeg yeneen yàgg caaju bi ñu ñëwee ci bay sës ramadan bay sës ci la dugg xalwa bay sës mooy mooy 1312 1895 lay lay lay doon ci ci ci njëlbeen gi wala 1980 waaw 95 lay doon sax ndax bay sës bi diggante bu gàtt la ci rek mu dugg ci jëy sës mais li wax nii lépp sëriñ bi demagul géej booba demagul fenn mhm. mi ngi Touba di tërbiye mag ñi di leen defar booba am na lu muy waajal weeru koor gi teru mu dugg xalwa gis yonent bi alayhi salaam digganteem Rasulaay ami kiiraay science jàngale na ko léegi ndax dañ nit day ne ca États-Unis di wax ak nga di ko gis mu di la gis kon léegi ñu doon weddi loolu gëm nañ baatin ndax ginnaaw tubaab bi yoo ko mën ndax nuur leer goo gis ci leeru rusulaay la jolle mhm. min nuuri yi ku la nuuri saatixon bi sana nuuru nujuuma nuuru samsi wal xamar mhm. yonent bi mu ko feeñoo dane ko sama diggante yow toll na ni penkook sow mënuñoo laale mhm. ci njëlbeenu weer bi sëñ bi sóobu waat bi laylatul xadar gi jot bi bi ñëwee wóomi sëñ beeg wóomi rasulaay ñoo sës ñoo sësali bi laa xijaabin wala maania yonent bi ko ëndaal leen ak sëriñ bu rëy na ko ñetti weer a tee nga doon xutbu zamaan yilif jamono kaay ma nomee la bëgg la naka tax dañ la koy tebal mu ne ko lu neex ta bax waaye am na lu ma ko gën na ñap ci yow rek ko la tudd est-ce que mu ne ko lolu des des ko daan des la ko daan maye moy tur direct te fàdd mm-hmm. mu ne ko lolu rek la bëgg yonent bi ne ko dama ne dama la bëgg buma sañon de do ci dugg ku ci ma sa dugg buñ ko dimbalut alkuna mu ne de la bëgg neena bam dogo ci mën ta ñak ñu tegal ko ñaar téeméeri nattu juroom ñett fukk ak bi ci gëna neew fukki wali yu juroom atunu teguñu ñuko natt wali natt yonent lañ ko tek mm-hmm. <laughs> ben natt buñ ko def buñ def ak nit amut ñu teg ko ca ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom tegal ko ca condition yi nag doo ne os doo ne kañ lay jeex doo ne fu ma jëm li gën a néew ci daw boo ko defee ñu xàcc muy raf bu la dëgg jamee képp boo gañee ñàkk gañ boo dul dëgg jamee gañ rek ñàkk mu ne ko bul xool kanam gi xoolal xol bi méttit xoolal koy njëkk a yëg saa yu soo xol yégée ne dara mett na xàccal wasirtu bi rabbil asi abdan lahu bihi ma sala qalbi bi rida sa taxayuni mm. sama xol bi danaa ko pakk sa ngërëm loo ma teg neex na oh, allahu akbar ba ñuy suwaal bay sis mu wori keroog kori gi mu mujj wori Touba bi mu yoree der bi di ko lal mag ñi di ko jàpp dana bàyyi sama der bi bis dana ñëw ma lal ko foofu kenn ci yéen du fa ne. ñëw. ma ko foofu kenn ci yéen du ba mu woree bay la dem Mbacke Bari Mbacke Bari ci Jolof la sëriñ bi nekk. def fa juróomi weer. la def aw kori aw diggi aw tabaski aw tamxarit diggu màgg diggu gàmmu muy muy muy màggal gi loolu na bi mu amee fekk na tubaab bi bi mu sañcee mars mois de mars la sañc Mbacke Bari mois de juillet tubaab bi convoqué AOF gii ma la waxoon di juróom-ñetti réew yoo xam ne ay Bénin Côte d'Ivoire yooyu ñoo ko composé woon convocation boobu woowuñ sëñ boole wuñ ko ci ay naxas naxas lañ ci def bañ demee lii la leen noo gouverneur général tëraloon da ngeen di bàyyi joxe asaka tey fay lempo tasaare mbooloo yi ak def nanga ba noppi nag teg cee ne ko Ahmadou Bamba faale wala tegula fenn moo tax mois de août mu bind lettre jox ko maam Thierno borom darul moxti mhm. na ko demal yóbbul ma ko ndar yéetal ma ko ñuy wax amiru ndar bu doy waar boo xam ne sëñ Pape warees na koy jàngal waa réew mi. Mhm. lettre ba dafa wax góor noonu na ko mi ngi bàyyi ko ci jaamu bi yàlla bi dul jaamu bi nga xam du jaamu ko pour boromam. Mm-hmm. di liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dem si ki ñuy wax amiru ndar di la xamal na nag bul déglu waxi fenkat yi ak rambaaj yi ak yàqkat yi ku ne la leneen sama yitte lu may jaamu yàlla jaare ko sunna Rasulullah mënta déglu. Mm-hmm. li nga bëgg ci adduna taxumaa jóg li ma bëgg ci yàlla amoo ko. baal naa la baal naa ñi la wër wa salaam ala man fekk ñoo koy yàq di ko fexeel. fekk ñoo koy ñoo ngi koy waxal nangam. kenn mësul gis lii loolu xew. Mm-hmm. muy lu doy sëñ bi nekk Mbacke Bari borom daaru yóbbu lettre bi kene bi mu yóbboo lettre bi ci mois de août fekk na tubaab bi préparé pour jël si Serigne Touba. nga xam ne 9 août 1895 di ajjuma tubaab bi ñi mujj tëye tëye ca waalo la leen tëye takku takkusaan ci pénc ba takkusaan te dañ ci boole woon di ko mokke ba ko waaw di ko mokke léegi nag tànn nag ay espèces yu ko war a jël si ci ajjuma jooju ci gaaw bi bu mu xëyee moom Serigne bi te mënta jóg te du am ndigal ajjuma jooju la sëñ bi teel fa amitu man yaxsi min darar min kulli cheytaani wa jinne wa bachar rasulullah ñëw na ko imsi wala tax sa daral ahmadu wéyal bu ragal lor yàlla aar na la senge na la mu julli gee toog ci buntu jàkk ji mbooloo mépp wër ko mu ne saa borom dafay indi yan bopp ku ko mas na jàkk ciy xejjam éggut say wóom yan bi fi yàlla indi woon ku ko mas na jàkk éggut ci say wóom danaa ne ko dënkul ba ñëpp di ko seen mu yan ban yanun khutba yak Abdali te atunuñ ko mokay koy moo koy fa faraw gaaña mm. da ngën ji way tawatul balaaya mm. suratul amaane lam ci laaya mm. sëriñ si naaqis lañu bambay kamil bari yep suq lañu bambay kaabal man sàkka fi dalika fal yu jarribi serigne musa ko bang wax ba ku sikki sàkka defal wéyal mm-hmm. defal ni mom mm-hmm. mm-hmm. fofu la tukki bi tàmbalee gaaw fukki fan ak juroom ñetti safar di day glu ba le media la sa juba genn kërëm goku ci mbakki bari ci fajare gaaw ba takk naaru góoru tudd awnullahi mm. te ca mbalaanum sooy digalee weex tàll mm-hmm. mu jël loxoom teg ci bopp Cheikh Moustapha al Karim mm-hmm. teg loxoom ci bopp sëñ Fallu mm-hmm. na leen dékk naa leen yàlla ak seen bay cerno na gees borom dër na ko cerno mu ne ko mbàkk mu ne ko dikk na nga muñ dikk na nga gore dikk na nga am jom damay dem di wuti te njariñ mën tam te déwum ba di ñëw yàlla booba mbàkki bari toll na ci mboorom bu ñu séddale reer waxtu timis lañuy tàmbali bay julli fajar sëñ bi takk naaru góoram te xidmatil muxtaari fii chehri safar génn naa gaaw fukki fan ak juróom a jóg ñett yooyu ba mu génnee fekk na tubaab bi yónni espèces yoo ne jox leen leen ay cartouches jox leen ordre ci dëkk boo leen ko fekk taal leen dëkk ba rey leen dongo yi jàpp leen sëñ bi andi bi sëñ bi xamee ne dana ñëw ci lañ def télégramme ñu xaar leen jeewal campement la sëriñ bi ca yoor yoor ba mu ne ku ma yenu sama bagage yi sëñ Balla Joor Mbakke sin Balla jor yanu gali ak mag ni nga xam ne wénnikuwul ko dane ku koy yanu te do ko yenni do tago ko ba ba yegg yor yor bu deugar naaru góor bi ne li hawlu xawlulaahi tel bi génn ma seen iblis muy xawé ko nomor mbeur mu fu ma kendo ñëw ki ne ken doyuma ci maa koy song champion bi l'islam dese bu ma ko l'islam daanu fi ci Afrique bu ma rawee nag bëgg ñu am ko bi ne ma koy joxal bi ne ko doxale na yalla sama digënté yow ne mu delu ginaaw ni xar muy dañ ngir wut élan riir na ci samay tànk tël na bett mën a ceg deqam muuc mu ne wooy dama teggal nu tàggoo tànk yu ma dugg yaa ci sa gën a yaa ci gën a sewle waaye yaa gën a dëgërale mu ne ayesa minnillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi a jeewali lahu nidaaxan bi yaa nasiru mm-hmm. iblis saay saay bi nga xam ne ku dem safara moo la fa yóbbu mm-hmm. keroog am na gàcce mm-hmm. sëriñ Bamba nee na sukk na ci ay ay na ko wooy teggil sa tànk nu tàggoo. Iblis ko wax loolu. waaw ah, tànk yu ma dugg yaa ci gën a sewla yaa gën a dëgërale. ndax dégg nga tànk yu ma dugg yaa gën a sewla mu tabb ci xuri tubaab yi mu kàbbar. allahu akbar. dal di julli sëlmal Leclerc moo jiite armée bi. ñëw na ko ndigal li mooy bul yenn bul fanaan. na ko saa borom ne fii lay fanaan. ay soldat yu la wër yori sox. jot ndigal di xaar ci bul yëngu mu ne fii laa sax ma jóg mukk fii laay ne julli sëlmal julli tisbaar fa la julli takkusaan julli timis julli gee fa fanaan ba fajaru gaaw di bari moo te jeewal moo fëggal boppam nasaraan yi ne leen bismillah ñu jóg rëppatal mu tàmbali asma ahlu badri di ko nos rëppatal wuti kokki nasara yi ànd ak moom noon yi di reetaan naan jàpp nañ ko sëriñ ba woon bakke bari moom lañ jëli ka doon dëgërante bopp tubaab yi moom lañ jëli mu ne dalla alladi qad zannani asira xayrul la si yasirul asira ki ma jàppe kon jàpp mu réer man li jafe laay nooyal li jafe laay defar li kenn mëntam laay wut lay laay di ba mu dikk ànd ak ñoom ñëw kokki dafa yendu toog bopp guddi gi sori mu laxas takk wuti Louga ba mu ñëwee Louga altine la fa ñëw dafa yend julli saan war saxaar fan la jëm ilaa ndar tubaab yi kab la ànd ak sëriñ bi sëriñ bi wuti ndar waxtu timis laag di fukki fan ak ñaar ci weeru août di ñaar fukki fan ci weeru màggal mhm. sëriñ bi def na 38 jours ndar moom lañ ko fa téye mhm. lan lañ jëkk def sëriñ Touba li tax muy numéro 4 te defe naa kenn déggagut 5. 6 amagut. wootee buñ ko numéro 44. kenn wootee gun ne maa ngi màggalal sa maam mooy numéro 65. te 84 lañu woon kenn di 4. lu tax mu doon 4 du bat yu ni takk de mu ñu ko woo de woowuñ ñett woo ko de daa am lu mu sooy tax muy 4 moo tax déggoo 5. doo ko dégg mukk tubaab bi daf leen dajale dajalawaat ñu ñëw mu woo ñi mu woon la moom la njëkk def sëñ Touba mooy boole gaynde ca ndar gaynde gay waa loolu jógee tubaab bi xiifal ko. ne yéen ñii siñe leen bàyyi joxe asaka tey fay lempo fii amul julli amul tudd yàlla amul nangam ku ko nanguwut ñu faat la gayndee ngi fii gi xiif ñu boole la ak moom ñett ñeen jëkk a womat gëm yàlla ak bëgg yàlla jaraleen joxe seen bakkan ñu ne duñ signé mukk woote koo nu gënal ñu yóbbu kenn gaynde jëfandikoo ñu yóbbu kenn gaynde ne ba muy ñett sëñ bi ne ma seeta ma xam ne moo seetaan ne ñu jeex ma ne sëmm fa ñuy wootee fa ñuy rappelé la ne sëmm taxaw kay woote ñëw ma ne ko teg ma ci mu ne ma yaa ci topp mooy numéro fa la sëñ Tuba tabbee nee na bi ma tabbee rasulullahi ma dar gaynde gi seen leeru rasulullahi bëpp mu ne wa man takkun bi rasulullahi nusratuhu in talqaw al usdu fi ajamiha tak wa man takkun bi rasulullahi xidmatuhu musaahiba sidq wal ixlaasi wal xasan fala yaqaafu wala yarjul wara zamana idil wiqayatu tuxni anil kinani ku ànd ak rasulullahi bul tiit bu la gaynde fekkee ci digg mbanding dana nooy loolu mooy mbir ma jëkk moo waral kat moo waral doo dégg numéro benn bu dut kat dara dolliwu ko ban nattu lañ ko tegaat dajale leen ñoom ñëpp ne leen nag décision bi mujj a ñëw danañ yónnee ci chef de quartier yeeg mbooloo yi dañuy tasaare mbooloo yi bu fi dara taxawet moo tax Cheikh Abdourahmane Mbakkeem Cheikh Abdoul Khoudous moom daaral Daarul Muxti borom xam-xam bu rëy ba dane xubbul xadiimi ala suudaani muftaridun it xara rasula min riqil mudillina nee na daal bëgg sëñ Tuubaa day farata ci nit ku ñuul ndax moo dog buubi njaam ak buumi réer ñu dajale ñëpp keroog la sëñ Tuubaa tontu tontu lu mu rëy loolu Sénégal dañuy puukaree wu lu ne di damoo lu ne waye nañ damo serigne bi ci melaw im jëf diiné tax mu di ko jëf jëfu ko ngir bopam xëccul ngir intérêt buur bu bew yenente bi lu wax afdalul jihaad kalimatul haqq inda sultaanil jaahir jihaad ji gën ci jihad ji baatu deug bo wax buur bu bew te góornóor a taxaw na ma yalla ca ndar ma yalla ana mu dabirul umur la jëfëndiko baatub arab ana mu dabirul umur, la kuti tuba ban nan mag ñi dañ koo déggutoon ay arab la leen wax ana mu dabirul umur ma yalla mm-hmm. ñi ne la ikraha fi din xata rusul min al ghayy du yalla waaye ku weddi sa bakkan xaj ci nan ne cell ba ñibbi ku ñibbi la ko doo yàlla wastastajib la uwahidullaha wa lastu ashriku shay'an bihi ina siwa yushrik fa ma doon waxee ne yàllaay buur kenn ku dul mën na ngaa bokkaale kenn nga birut yàlla keroog bi góor loolu maa yàlla fi mu taxaw sëñ bi ne ñokket taxaw jóg taxaw ñeent fukki at la am boo ko peesee matul juróom fukki kilo woyof toy te diis gan di jàmbaar na ñaadam ñaadam tànk yu dëgër waa ko wuti góor fi mu nekk taxaw di ko joxar bi taxaw di jàppatu day waaxu di jéggal ba fekk ko fi mu ne mu jël baaraam bi teg ko ci jëbi diggante casque di jëbi di gësam bopp bi mu Serigne Touba na ko kadarta mu dabbiru ma xayun laa yemut wa sa tamutu insha allah fa umruka xaribun kàcc nga kàcc nga kàcc nga doo yàlla yàlla day dund di wéy si sa dund yow li des mooy ñaareel ba ñetteel ba mooy jugement ba di la 5 septembre. yéen a ngi déglu taxaw di ko xaar bureau ba fees dell. Mhm. mboolem ñi leen dara ne fa mu ne jëyi na wuru der bi ne allah 45 minutes baqara ak al imran allahu akbar sëlmal na ana ku ma woo ci yéen <laughs> sëñ Modou Mamoun Niang nee na ma sëñ Abdoulaat la àndal dem kër sëñ ma Souran tubaab bu ñuy wax gasbaar na ko sa bàyyi sëñ Touba de xaw ma lu mu jëfal yàlla waaye jaral na ko ba muy julli a góor na fa la ma fekk loolu la ko tubaab bi wax ko ba sa bàyyi di julli biro góor noonu fa la ma fekk waaye ba mu sëlmalee na ngi toog mu ne ma woo ci yéen <laughs> kenn taxawut naan fa diwala woo dañoo jékki-jékki rek àndandoo ñoom ñëpp daw génn lu koy waral fa xisuma taxaf ilaahakal ahad mm. yaxaaf ka min xaw foo kula ahad suñ Tuubaa ne nu soog ragal yàlla toll lu dul yàlla noonu la lay ragale mm-hmm. ñu atte ko 5 septembre ba le 18 xamuñu fu mu ne ñu nëbbu ko ñu dañ koo faat Cheikh Ibrahima ko trouvé mm-hmm. xam fan la nekk moom Cheikh Amadou Bamba mm-hmm. keroog bi ñu ko fiy jëlee alxames la mu def fa 36 jours 38 jours yu mat ñu jëlee ko fa alxames def ko ci saxaar dañ ciy taal mat wago win ko dugal dee su fa dugal aw nit ay jur lañ fay def mm. sëñ bi boole beboru ndax yére du lal sobe boole ko taxaw ba Dakar moins 35 laak si ci te du koor mm-hmm. mu na aka neexoon maam lu ma dogee sama koor ngir dundal sunna wenn waxambaane daw ñëw ne ko néega nga a fesa mm-hmm. ko ci Ndakaaru bi jasaawu tudd jasaawu shakuur alxatu fii jawaabi abdillatif mooy première guddeem ci Ndakaaru mu wàcc si fi bëgg a dog koor gi na aka neexoon moom lu ma dogee koor dund sunna benn waxamaa ne ñëw na ko nan dem am neex naa neex naa fekk sillil bi ñu ko waajal doo siggi mënoo toog foo war a joggi xottu bi teen laak ràbb ñu fuyete ko lépp xottu bi teen laak ràbb te yonent bi ne ne oh. oh. mm-hmm. ko néeg a ngi nii du dàll du mbaxana te du kaala du kamil bum yor tank bi ni jeeyi neena na ci ñaw ko la ko te xamna ne lima jog ak rabbu la waye duma delu ne mu bëss rabbu ko sar mu tek benen mursal ñu boole na kap bunti mu ne allah neena na yi li ci jëm tax na mënu waa kabar mu ne tanzilu man mi nii la wal askaaru maxaana si waxaa fi jibril nako xolo xol bi mu ne um baa mu lox ci ne metti na ma ala ko léegi ala kum àndal nee na bi jibril li dama def istirjaax ñett la fekk ci man a sabru wa shukru wa rida yàlla jërëjëf yàlla muñ naa loo ma teg neex na lii la neex ci man jërëjëf nangu naa ñetti guddi yoo xam ne lékkul naanu Cheikhul Khadim mm-hmm. fii ci Ndakaaru mm-hmm. ku koy wéttali amut te weeru koor la du weeru koor moom mooy wéete mooy féete woo koor dakk mm-hmm. ci gàmmu la du ci gàmmu la mu woor ba ngoon bëgg a dog ñu dugal ko ci néeg bu tàng boobu moo tax mu ne ida dakartu dalika al wa dalika al amira sabouta tarana jihadi bil armahi nafsi wala kitab ba bu ma ko sama mm-hmm. foofu lañ ko téye ñaari fan yoo xam ne nekkul noonu lu ci may leeri boroomam ci biir néeg boobu ci biir néegam boobu ci xott bi da lekki ràbb la taxaw kenn wittiwul sëriñ bi moo tax kenn du sëñ Tuuba mm-hmm. amul moroom li mu jëf kenn jëfu ko te la ko xol bi du lox te du tiit te du jax boole ko muñ le 21 septembre ñu génne ko fu mu exilé ko dib gaaw mu bàyyi bokkam bàyyi ñëppam na ko suuri xallat wala lu tax andi tafaaraxat li ma dexil la di anul ma diw xasiir amatuma kër gent na gisatuma Moustapha gisatuma Fallou Mouhamadou Lamine tàggoon na ma ak ñëpp rasulullaay bëgg ko rek ma ko yóbbee bu ma ko nattal mu gàtt bala ma bàyyi daa jot suuri xallat allah amatuma kër bi xiraaji xut bil asr isbaana un wu yuliinu xuluban baax da jam i shawaari bi gaawul a déq kenn wettiliwu ko kenn àndut ak moom te tubaab bi mayoon nañ ko lañ mayoon saamuur yi fukki nit mu ne bu kenn dem man képp saa mori bi muy dem mayoon nañ ko fukki nit yu mu àndal yu mu àndal yu mu àndal pour bañ ko dugaloon dugal nañ ci sëñ Tuubaa bu nu yeggee biir Gabon dara la ci leeral kere bi mu takkee gaal gu ndaw lañ ko dugal gaal gu ndaw gi déqi yóbbu ko ci gaal gu mag sëñ dañ koo tooñ biñ koy atteel amut awoka mm-hmm. kuy layel sëñ bi néew fa ku koy tegi tuumaa fa ne mm-hmm. bañ koy yóbbu xamuñu fu mu xam fu mu jëm ci biir gaal gi la xamee ne Gabon la jëm mm-hmm. bi muy jógee Ndar bi ñëw Ndakaaru xamul fu mu jëm bi muy ne ci biir gaal gi it xamul mu jëm benn waaye ne ko ma yow ndake gabon nga jëm foofu la ko dégg mhm. ci biir gaal ci biir gaal gi la jógee ne gabon la jëm waaye teewul mën a allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu til madina mhm. yàlla ma xamal ne man maay xadimu rasul maa koy liggéeyal mhm. ci gaal gi diqi moom cheikhul xadim kenn andut kenn ñëwut mu ne dellu leen ca kër ya ana lam ashab illa xidmatin xumtu biha wa silaahuha fi hasa safar faqat damay wuti loo xam ne mënta ñàkk te bu ma ko amee yëpp ngi ngeen jariñu xaaral ma ñëw dellu leen ca kër ya sëñ ma toog ci genn wet di xalam sëñ Tuubaa rek cay bu demee fu ñu ba yàgg ma dégg kaddu gi riir ma rubba géy dellu leen ca kër yi ak ñoo noppal ma rubba géy dellu leen ca kër yi boobu mag ñi ñu ngi ci Ndakaaru di ko topp dañ ko Cheikh Ibrahima Fall mag ñi doon gunge keroog mu ne dellu leen ca yi tukki bi do lañ ci dégg siggil di gaali sab sëriñ mata mm-hmm. bi dox ci bir gal gi dal gi daw lu bari ci bir waxtu julli jot xaadimu rasul problème ba ngok julli jot mm-hmm. tuba bi di ko lo mm-hmm. tubaab yi di ko ñaawal diko ko diko moké nako na julli gi jot na waaye ku joxe farata 45 nafile 45 minutes farata yalla doko ko far dëgg la de mu japp japp mu sel ñu nako du ci gal gi nak te sëñ bi daa bari jom kenn ko ñaq-ñaqal. moo mhm. xam ne yàlla leen sàkk sàkk ku sàkk géej mhm. gi. yéen a ngi déglu Baol Média FM na wurur gi leer bi. waxi wolof yu la ko wax bu la gaal gi raw. der bi ak gaal gi noo ànd. sëñ bi cëppeelu nee na bi mais julli bi avant bi gaal gi déparé la wala julli bi ci biir bi ñuy jub Conakry diggante Conakry ak Ndakaaru la julli gi amee fekk gaal gaa ngi daw ci biir ci biir lëgg lëggub géej la jullee jullee wut ci wet jullee wut ci tefes ni ba fu mu jege daa wax wut fu mu xamul te moom mës tëgg non sëñ gaan nar ndax bi muy julli mhm. gaal gaa ngi daw wala gaal gi da koo xaar mu julli ba gaal déggu ma ne dane wuru del na ko la gaal gi raw la ilaha illa gaalug tubaab dina ko ngi noonu mi ngi noonu kon sëriñ gaan sëriñ bi mi ngi ci géej gi àgguñ Gabon dafa sax julli na mhm. mais julli gi bi mu jullee ba noppi dafa yéegaat dafa delluwaat ci gaal bi mu cëppeeloo bi tàmbali naa suux li mu cëppeeloo waaw yàlla gëdd géej gi da ko jàmm bu ma gërëma ne sa kaw mu ne tegg taxaw gis nga li lay confirmer tubaab yi wala dem ci Bordeaux wala nga dem Nantes archives dañuy wax ne tubaab bi nee na li leen yéem bu sëñ bi kabaree mhm. lu ne ci biir géej gi tey dund day yëkkati boppam ànd ak moom bu rukkoo ñu sëgg bu sujjootee ñu noor mu siggee ñu fitti متبوم سر ملء من عالمة الأعداء عند المغرقات بأنني عبد منيل الخارقات يا نون يا ما أنا لون خم من يمن بره مخربا بيجو تخربا تجامو يا الله كيف تكون مغرد متى سن ملاي بوسم سن باكي بوسم بمكوي غيرل وفي البحر سال العصر الله تجيت جل نبجلي فتاكسان فري دوغو متى هواي كربناكو كبر تدوشيا دلوا تجعلك غوريلا تري نوني جيجل جالك tubaab bi diko ko seeral kéro sa yalla ji ngay jaam ku ko gëm nga waye ku am fit nga ku goré nga ku am fit nga ku goré nga mais fofu ndax yoru loon tuba bi rek wat ko nak xamni ki waye bu dëppoon dañ nan da ñaan intervention woné wane xar bax ñibbi si dañ naan daa daw nim ko régler rek a baax ndax ginaaw kabar gi kabar tej bop yi julli ci jaxal leen le dëppoon dañ naan da daw noné la xet wuti wuti gorakiri gaal gi ne cëmb gara Konakiri mu ne barra anillah la daa Konakiri min kulli janibin ila manakiri benn waaye dugg fa di ko reetaan naan ko Ahmadou yow de nit ñi dañ doon wax ne yaay nangam ak nangam sañ bi ne yàlla nungur ku ma ree boobu dañoo déqiwu ci garam basam machine bi yuuxu ca kaw bato bi waa ji koo reetaan ne naa nekk ba machine bi dal ma door a dem toog machine bi dalul ba mu agsi garam basa moo indi azhaba anillah fii garam basa qablu mubarisi wànni xal basa le 3 octobre la fa wàcc bala 23 am na lu ko waraloon. 3 octobre la ñëw Garam Basam bala 23. le 3 octobre la ñëw Garam Basam. Garam mhm. bi ñu takkee bato bi ci Garam Basam ba léegi bant bi ñu ko takkoon mi ngi fa. ci màggalu garam Bassam gi fa Cheikh Moutlam Cheikh Abdoulaye di def mhm. dañu wax que buuru Bassam bi lañ doon wër maamam pendant 23 jours waaw bur bobu tay ñew na sukk ci kanam kanamu sëñ murtalaam sëñ abdulaat joxe addiye ju takku boole ceeg ànd ak mbolom ñew jébal ko bopam ba tay ñom garan basam tay su magal amé ñom ñoy def léegi xala ku melni promotion mi dinañ ko wax fi garan basam dem na fa mhm. pour gëstu ko parce que dañ doon wax sëñ bi dafa jaar rek mhm. dem na batik sama loxo ci ki ya, parce que dama top ban dëkk la ne. garam basam Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire may top mhm. topp jeexintali sëñ bi. def na fa ñaar fukki fan ak ñett. ñaar fukki ben le 3 octobre la fa ñew le 3 octobre ba le 23. ñaar fukki fan yo fukki après ña fa nekk ñu leen tudde bu uri garambasam yooyu seen maam la tubaab yi doon dàq ñaar fukki fan yooyu ci leen leen doon a jàpp boole kook sëñ Tuubaa daayira ba fa nekk tey soxna ah. su fa nekkoon te ah. amul woon doom soxna Kurajo soxna Kura moom moo ah. ñëwoon jébbalu ci sëñ ko kër googu kër ga tabax nañ ko ba mu yegg la ñuy màggalee léegi màggalu ko sax te li gën a yéem nag kun masa rombaale yóbbu del si woo pap ku ñëw ma sa yombaale sa dëkk yóbbaale la del si woo de waaw ku ñu masa romb sa dëkk yóbbaale la del si woo dem de si Ahmadou rek <laughs> mais dund gi mu dund Gabon Gabon àgg na Gabon. ba ci sama maam sax. Gabon bi fa sëñ bay agsi. Amadou Baye. yéen a ngi déglu Baol Média am naa la ko wax. yow mi dendale sëñ beeg sa kenn na la xasaa yu ci géej gi ñibbi si dox ni mu doon doxe du soox kaalaam du tas du bàyyi lam doon woote. xawaariqu yakfiika minha ruju ala xayra xaalin baxda ma rakibal baxra nee na guddi gi ma jëkkee fanaan gabon wiit naa fa ba mel ni néew boo tabal ci bàmmeel ay bokkam ñibbi gisuma fa ko xam yàlla gisuma ko koy wut wàcce ko ci àll bu lëndëm ay godde ko yoo la fa nekk ndeg ment yooyu bu la mattee da ngay nelaw doo yeewu gisul kum yónni ba muy teel via xayra day fin koor fekk ko fa mu xool seen tu weer bi gis ko sun borom na ko weer wi feeñ mu ne awma dogoo ma xëdd mu ne ko maa yulaqaaha illa alladina illa suansi nasi jot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 ay jege maar di ko wër xale yu jigéen bu kàbbaree ñuy reetaan buy jàngal xuraan ñuy reetaan ba mu noppee mu ne yàlla woor naa ni ma ko digale jullee ni nga ma ko digale aw ma muurum koor aw ma ko ma ko jox xasida gu tudd xad aflaha man tazakka la def muurum koor gungee weeru ci yaasal bu soxaraati bil ayaati wa suwari foofee ca Gabon diggante Libreville ak ak Lembarna Libreville Mayomba la gën a yàgg Mayomba la def juróomi at amul ku koy wetti nee na li ma taxaba ñum nasaran mo ma saxay ubi sama buntu ba ca Gabon yam ca ñom ñu sol seen mbubbi këkk yi xam naa fitna kep lay yendu fofé la tok bëgg jàkk ca ma yomb dagal bopam ay bant wuti ko ñew daaj bam jekk bëgg kabar ngir bekk xol bi fiix tuba bi buddi ko masalé ko sanni bant ya ba nopi tour ya, fa ndox keroog la taalif raditu anil mawla taala allazi rabba fuadi wa ana akrim bihi rabba <laughs> yalla ya nako dana lamay ñaari juma bul mer danaa la defal ñaari juma ci réew ma benn bi da na nek njëriñ sa kanam lay noppi benn bi Touba fu neex ni julli mo indi saxali xëy la fi maa yomba sa aqal bi waxalal jan ba soo rolo jolli ci takko kenn du ko mërbal kenn du ko mabb kenn du ko daaneel foofee la tok nak mo ndawal du gisul nabal gu mus buun lol bëgg ko jël petit jardin mus ko ba noppi takamti ko ko pare raxasu bëgg tag yonent bi kaddu yalla gi dal ci kawam boo bàyyi luy duutoo gis rasulullah sallallahu alaihi wasallam keroog la dogu bàyyi jënu mak ak jënu ndaw daawu ko lekk da ko jaay jënu mak ak jënu ndaw jaay wokkutu lu ko sam danaan sëmm nib jaañ bi lu daqatu faxas te du dee xasima xalima gi di daw gisul ku ko yónni gisul ku mu yónni tubaab yi di ko dugal ci benn néeg am na bis dañu koy dugal ci benn magasin boo xam ne dañuy tux di ko xër ak di ko buusu sàngara góor ñi ak jigéen ñi def loolu a ñu ne ko ndax métti na la mën a déedéet ñu ne lu tax mu ne kenn ku ne ci nun mu kàllaf la yaa ngi ñaari malaaka say mag ginnaaw ñu ngi koy muñ maa ngi koy muñ mhm. a waxtaane kenn du ko kiriyeel lu mu wax du ko bind parce que tukki bi yoon kenn lañ ko dut àbbal digganteem ak tubaab yi lépp da ko bind lépp la bind moom pour problème bi neex a nettali ndax réew mi dàq weddi mooy Sénégal ñenn ñu lu ëpp seen bopp ñu ne wër ta am moo tax fu mu jaar wax ko fu mu jaar rek moo ko nettali boppam preuve à l'appui kon moo koy bind ah, béréb bi ñu dugaloon sa Samour yi ba mbaa njëkk a def vaar vaar moo jëkk a woote l'islam Gabon it hmm? waaw koo xam ku fa dem ba woote fa dégg goo ci sa nopp di kenn ku fa dem woote béréb boobu raayu kaay la ko fa mos dem. mais bureau bi ñu dugaloon Samori Samori fi ko dugaloon lañ ko. daaw tuum xam sa si ne la juróomi at laa leen woo ngir ñu gëm yàlla seen nopp yi dëgër ñu weddi. bureau bañ dugal Samori lañ ko dugal. pour la boo xam tubaab yi dañ ko tàngal gas ko def ko mu metti lool ñu dugal ci Samori yi ba mu waaw. la la Samori. lañ ko Moriba. waaw lañ tedd Cheikhul Khadim. fa bañ Serigne Touba sëñ Pape sëñ Touba nee li ma xamal ne fii daa tàng li ma xamal ne fi ma nekk daa tàng. Mhm. gaaw a fenn mbind mi. nga ni gaaw a fenn mbind mi. kon moom yëgul tàngaay yëgul tàngoor wi najawtu bi xifsillah min sadwati lida wa liradahum turan wari karramal janba axaadina alxanaanu min kaydi man xala wa saaraka naaru xilli lii baxru maa yomba te saa mu wëri tàngaay ci diggante mais Samba Lawbe Samba Lawbe Fall daje naa ak moom Gabon Samba Lawbe Ndiaye Samba Lawbe Ndiaye astafurlah ju baal incha allah ah. daje nañ Gabon Ah, Samba Law ba dajana nañ Gabon moom ñëkk a ñëw sëñ bi sax sëñ bi ko wax na ko boo demee nga sañ ci fu ñu wax déegu gobé bari na yuñ ci nettali sax démé wu nona sëñ bi kenn daan ak mom di loru yi ni ngi diglu Baol Média FM ci 3w point sunu radio tv point com Samba Law ba galwa mu nekk ma yomba am jakk ak juma bëgg ko mënu ko di bu ndawal du ko am du gis ko ko li tuba bi di ko gas di sul leg leg ñu di ko fetal lu ne def nañ ko Serigne Touba Serigne Touba di wéetal yàlla di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa waxtu wu nekk nga xam ne day dem ba li rabbin euh, li rabbin xafuurin xat maha ani dan ba waa ni nafa iblisa fii baxruma yomba dem ba dàq seytaane fari bakaaram mu def fa sëñ Pape juróom-ñaari at ca nga xam ne samaani yaxi jéejin ila xalila juróom-ñetti at yu néew la sëñ Tuubaa yu manqué tuuti la sëñ Tuubaa def Gabon yoo xam ne mhm. ci diggante coono ak wéet ak fitna ak tartar rek la nekk dafa liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam ay guddeem yëpp di liggéeyal alayhi salaatu salaam ay bëccëgam yëpp di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam amul genn bëgg wala genn jublu lu may ci alayhi salaatu salaam te nasaraan bi saa yu ñu xëyee suba mhm. lu ñu jàpp ne buñ ko ko defee am lañ bëgg ndax si ñibbi si sëñ Tuubaa day échec ci ñoom tubaab bi bakkanam la tegoon ci sëñ bi duutu delsi ndax ku mës a yóbbu de delsi woo bu sëñ bi delsee nag dañuy échec loolu waraloon lu ne def nañ ko pexe mu ne mhm. natt bu ne coono bu ne teg nañ ko sëriñ Tuubaa mhm. mu dafa di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam dafa di jaamu borom bi subhaanahu wa taala mhm. ba juróom ñaari at yi teg ay weer liggéey bi jeex mu ëndaale woggu ñëpp bokk sëriñ ci boo xam ne ñëpp a ci bokk mais ñibbisi bi tubaab yi dem ba mu yàgg bàyyi ko mu ñëw wala dafa am ñu def intervention bàyyi ko mu ñëw wala bëgg naa xam ñibbisi bi Gabon at yi ñu ko fi téye ba ba jékki-jékki bàyyi ko noonu. xam nga bi mu jógee Gabon taxul ñu bàyyi ko taxul ñu bàyyi ko de sëñ Touba bi mu tàbbee ci loxoy nasaraan bi fukk bàyyiwun ko ba bi mu ñëwee Touba 1927. allahu akbar bàyyiwun ko benn yoon. Mm-hmm. tubaab yi dañoo dem ba sëñ bi lëjal leen ci la sonal leen ndax luñ ko def defe ne dana danañ ci am lañ bëgg du sotti allahu akbar muy wéetal yàlla rek bu nuy maaj muy taxawal faratay boroomam mhm. ba tubaab yi nattu biñ ko mujj def ci gabon mooy fetal googu ñu ko fetaloon fetal lañ ko tubaab yi fetal nañ xanaa ah? takk ci garab fukki soldaar ñett lañ dajale guddi gu lëndëm ñu jël fukki soldaar ak ñett ku ne ñu jox la fetal dàkk loolu tir ci moom jox leer naa bi pistolet na ko dàkkal ñett nopp yi boo noppi ndax ndax takk bët yi ñu takk ko ci garab ba mu dëgër na ñu takk say bët mu a du ko mat de du ko mat kooku dafa am jom léegi ana fitale ñu jàmmaarloo moom du déglu ndigal 4 3 5 4 3 2 1 0 bal yëpp takkandoo jëm ci Seexul Xadiim bal bu takk wëlbatiku jëm ci dënn ki ko dóor mu daal ci sëb dënn nga daanoo njaaxaanaay mu ne cës xalimaam loolu ca Gabon la mu ne cës xalimaam la ilaha fii sulaasa maa yux jullu asrata wa salaasa talaata la fukk ak ñett la mu ne yàlla may na ma rusul fukk ak ñett ñi ci bisub talaata bi Gabon gépp loolu am rasul ay tekkil koy jéngam na ko may na lu toll li feppi suuf yi niiri asamaan yi duusi géej yi mu ne bëgg naa lu kopp ne ko nañ def borom maa xam ne ba maa indi lahil baax lan la demandé pour andi ko mhm. mooy sérité boo xam ne بواتي تي ريومي كو ياك ويوم الخيام كو ياك الرسول اي اجر رجوعي الى خومي سعادتنا ولتكتنا يوم جمع خلق نيران ابراهيم جبدنا كو لقد رجعت بما لم يرجعن به ذو الحج والغزو او سو تجري من رفد وجئت رحمه رب لا شريك له لظالم واخي سبخ ومختصم ساس نيبيس نانيو سيرين بي جوغي نا غابون نيبيس نانيو نيغي في سي سنغال مي سيرين بي بيمو نيبيسي نيكو تيرو ak kàddu gi mu njëkk a wax noon yi nga xam ne ñoo ko yóbbu woon seen yitte dëgg mooy faat ko mm-hmm. fa ñu dugal sa euh, sàmmoor yi mm-hmm. dugal nañ ko fa te kañ ko dëgg dafa dafa dafa faatu mm-hmm. moom li tax mu yëg ni fi mu dugg tàng na gaaw a fendi mooy mbind mii gaaw a fendi sëriñ bi def na juróom-ñetti at yu manqué ñibbisi na nu mu doxalee lu mu wax boo ci noppee sëriñ gànna nga wax nu nag diggante sëriñ Bamba ak ak euh, ak déedéet serigne Balla cioro mbalu ñu ci Cheikh ibrahim Sidi ibrahim nak moy muccu Cheikh Ibrahim 11 novembre la ñëw 11 novembre 1900 Massamba Coro <laughs> yow lii la ñu bisi te commencé guñu tuba bi bim noppé ci wara ñew kéré bim né katatu ne katabtu yow ma sabta ànd galwa ba'da jihad yo firakhil balwa ah. di takk bagage yi tubaab yi di ko ree sëñ bi di leen ree ne ñi ngi may ree ngir li may takk ma di leen ree ngir lañ ko nar a yanu waaw sëñ nekk katabtu yow ma sax que ne may takk bagage tubaab yi di ma ree ma di leen ree ñi ngi may ree ngir li ma koy takk ma di leen ree ngir liñ ko nar a yanu ñoom ma takk ba mu dëgër ahlu badrin di ma sargal ñu séen leen ak métal gi ñëw na ko ñuy ñu mu sama ñoña foo àndeek ñoom ba ma àndee ak yéen doo xeex ak suur ga fa muy xëy la xam tey waaye xamul fa muy ëllëg xëy ëllëg foo bëgg la yi loolu lañ ko foo bëgg la fa yóbbul bagage yi <laughs> tubaab yi ko wax tubaab yeey na ko ñii ñu sama ñooña foo àndee ñoom ba yéen baa xeex ak ñun surga fa muy xëy tey la waaye xamul fa xëy ëllëg foo bëgg la fa yóbbul bagage yi <laughs> la tubaab yi nañ ko yóbbu Madagascar fa lañ ko préparé woon pour yóbbu ko. bu sori ba waaw. mujj ñu ne lañ ko yóbbu Sénégal yëgalun kenn dañuy ñëw bato bi costé fii vingt et un ko tubaab bi tiireel Cheikhul Khadim bi mu agsee bato bi ne sëmm taxaw maam Saliou Fall rek Cheikh Ibrahima Fall jëkk yëgle sëñ bi ñëw na moo jekki-jekki naa doom xoolal leen boo xam sëñ ba daa ñëw mag ñi dugg ci waax bi xool laaj renseignement ñu ne bato bii taxaw day bagage la sëf waaye indaale na sëñ Tuubaa mu ne doom looloo manaam a bi sama tànk yi jaxasoo laa xam ne sëñ bàmbaa ngi ci kaw suuf si wax loolu maam Saliou Fall ak Cheikh Ibrahima daanaka ku dul sëñ bàmba sama tànk yi bi mu la xam ne sëñ bàmbaa nga ci maam Saliou Fall ak Cheikh Ibrahima rakam la ñoo bokk lépp allahu akbar bata bi ne sëpp mu mag ñi jàkkaarloog moom seen put yi wow koŋ mënuñoo toog mënuñoo taxaw di tàqamti ku nan la ñëwee wan meloon la dikke lana war a manque ci cëram ndax mi ngi dund mu ndax dëgg la bato bi na sëmm rek ab diir ñu ne kaccet capitaine bi dox ba xaajal ne uyee Cheikh ñu ne Cheikh Anta wuyul sëñ bi mu jóg tànk yi luf mu raam escalier yi yéeg yam ci sëñ mu ne ko xineet mu ne ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ko dem naa ba ñëw Cheikh leewil ma mënta leewi weyi di duuri xéewal mënta leewi sëñ bi ndax xéewal yi muy sotti sëñ bi ne ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko yàlla bég na de cheikh rasoul lay bég na de cheikh da ngeen bég cheikh top leen sama mbor dem na ba ñew defuma lu ñaaw waxuma lu ñaaw waye cheikh ma ko ko mbàkk gi day glu baaw lu fa ay borom xol la dal di wacc wut ci ki bi ma ngi seen ko mu ne teul ak melawa ab taar moo ko ëppoon ñëpp ñetti kala lay yo ñetti kala la daan muuroo sikkim daan lang bay wàcc ci baramu deey ba ajum ba ajuma la koy peñe te ko xaji ñaar yoon moo tax sëñ Moussa Kane da daan muuru yor yetti kaala yu joor raawal yaa ngi ko daan féete wàllu nday joor bu muuraay gënee lamset sikkin ba ne laas te saf laa ri moo ko jekk ay faas xeesul ba ne pecc fa fu deew ñuul yaram baa ko tax mel ni jaani ko lool fitam a rëy mel ni abdu jàmbaar xàmmeewul ba réewu a rëy lamp ngeen jàng mbind mi borom aras maas alam tara aynaaya mis la seyxi jamaalan wa kamaa wasaara wasqi saa gëdd yi ma sa gis ku mel ni moom ma way fi ndaa mala gàttuntu gétti waa faas taraw yaala faas itam rijaal mu ko wax yi moo wax oh. ko taxam na ñëw na mais bi mu ñëwee Cheikh Maam Cheikh Anta moo ko jëkk a gis Maam Cheikh Anta jëkk a gis fekk ko ci biir mu ne cëpp bay jeexal escalier bi mujj bi la ko Cheikh Ibra Fall boot ko lambinaas lan ko mujj boot yóbbu ko lambinaas Serigne Touba def fi booba day toll juróom-ñaari fan ci weeru baraxlu jàpp juróom-ñetti fan ñu yóbbu ko ndar pour def décharge bi fa la yónnee Cheikh Issa Dieng moom na ko wol ma Thierno Ibra Faye fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu lañ gisante moo waral màggalu Daaru Muxti bis boobu la Serigne Touba njëkk a gisante ak borom Daaru li mu ko fi mujj attaay Mbakke bari borom Daaru jox na ko banaadam bant demut kaas toju dara réeru mais ko dénk bant demut attaay Mbakke bari sëñ bi ne ko cer cerno mu ne ko mbàkke mu ne ko wàcc naa waat naa wàcc naa wàccaale ku ma yaakaar waaw ndax yow bu doon yaa dem ma des ndax danaa ko man foofee la nekk ndar ñibbisi na barax luy dugg na mu jóge ndar nag mu ngi rëppat di ñëw lahu taala rujuwan yi min hidaaya ila daari salaam yi lati tubb naa bi tëj ji yéen a ngi déglu Bawol yi FM ci 3w point Bawol Média point com muy ñëwal boppam mi ngi jëm si dëkk bu ñuy wax sànnuus ak dëkk yi mu jaar yëpp kër sëñ Jula Siise ñëw sànnoo si juróomi fan ci weeru koor dalal ku ñuy wax sëriñ Siré woor fa weer wi ba mu jeex mu def fa ñaari fan foofee la garanté waa sànnoo si ne leen sant leen yàlla guddi gi laylatul xadr leen ahlu badrin xam na leen yéen waa sànn moom sëriñ Tuubaa julli ñaari fan yi jeex koor kër gi jeex mu def ñaari fan jóge fa rëppatal di ñëw njàngi jaw la jaar jaar njàngi jaw maka samba babu répété wut si mbakke kajoor wuti daru salam bi mu ñewé ñew daru salam rakam ji moko téro ci mam Cheikh antaga wa fekk ci géej ga ko ne wallahu yadhu ila daru salam bam defé istikhara lako yalla ne daru salam ay bëreb mam Cheikh antaga ne ko fa ayub bis rayal ko lu ne ba teural nit di rayal Serigne Touba Serigne Touba mba yalla ko gorel ko Cheikh antaga defal ko eh. lu ne lu man ngan go xamne nak ya geleem ya xar ya lu ne Cheikh antaga defal nako sëñ Tuubaa jóge fa nak ñew darul manan ñu dal ko guy taggo fam nek ci geejgal joxe won digal ñu sanc ko 1902 maam Thierno ko ko keur gogum mo andi wat ñaarel tukki bi ndax da ko sanc mom keur gogu ci makki Bari keur gogu ci darul manan abdir keur diir gi bi jox ligal mam Thierno mam Cheikh ibrahim Fall ak Cheikh mam Cheikh Anta ngir ñu wat ay lal yu ci dem lal yoyé la am katchor bu ko gis làmb ko defee nay fetal la مبين bind rapport wone ne seigne touba da wadjal guerre ki bokkam seigne touba tontu len ya jumlatan من لم يكن ولد له او والد اخرجتموني ناطقين بانني عبد الله وانني لمجاهد وظننتم أنا المدافع عندنا والكل منكم سوق لن ويحاسب فما قالكم حق اني اجاهد اني لوجه الله جل اجاهد اني اجاهد على باب عبد القديم والمهيمن الشهيد هو اكبر دا ngay ne damay damay jihad deug la damay jihad wa yalla ma da damay jihaat waaye ci xam-xam laay jihaate da ngeen damay jihaat waaye ci ragal yàlla laay jihaate foofu la Serigne Touba jaar Touba bi jëleewaat ko fi nag pour yóbbu ko ci beneen exil ba loolu moo di gànnaar dañuy tudde ardul bayad bi ak akbar ah bi mu jógee ga boo ñu indi ko dañ ko yóbbu yóbbuwaat juróom benn weer la def ci réew mi jàpp juróom ñaari weer ñu teg koy tuuma tubaab bi def lu doy waar alice bi rapport mhm. tubaab bi takkub xare ñëw daarul ma naan mhm. nan nañ song daaru mar naan xeex ñoom Mhm. bu señ bi mu taalibe yi di xeex ñu jéma jaar ci suuf fat señ bi loolu lañ programme won ca la señ tuba joxé ndigal ñuy jang rabbi bi may yeesaru azana qad faja Muhammad ibnu Ali Yanqubi ko yëkëti ci kaw ya a ngi déglu ñu ngi bënd gaar yi dagg sakkee ji te gaar yi sëñ Tuubaa yi ngir di ay bal ak rek fi ak bi al al yanqubi ne yaa malikal mulki la yàlla yónni fëgg jundu layl xaalibin ne leen yaa malikal mulki mooy yaa xay yaa qayum ji rasul lay waxoon badar jóg leen lu ahmadu teg lu ci ahmadu teg rek def leen ko tey jii yaa malikal mulkiyam jii yow yàlla buur buur yi yaa man jàllaat xawadin lu ci ahmadu teg def leen wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi leen di nuyu nuyób jullit ak mbokkum jullitam di leen ziyaara di leen balxaq di ñaanal a cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa li mu naalal lislaam yépp mu àggale ko di ko ñaanal kilifa diine yi ak jullit yi ak taalib yi euh, ndax Sëriñ Tuubaa loolu nu daj ñun ba jàppale metti na rek nun buñ ko dajee suñu njariñu bopp a tax moom nag lim doon daj ñun suñu njariñ a tax te te ben benn benn fraction benn fraction seconde sëñ Tuubaa buñ ko tegoon ci kaw nit ñëpp dañuy faatu ci lim yanu ci diis ak metti laku xat waaye lépp mu yanu ko nag ngir bëgg nu mucc buy taw noonu am nañ fu làqu bu nu am na lu ñu mën a jëfandikoo dem am nañ lu war yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point sunu radio tv point com te bi mu ko liggéeyee ba mu sotti mbuusug ndox gi gën a tuuti sax naanu ko ci moom da koo liggéey ba nu bàyyee nu ko looloo tax nag <clears throat> nu war a am ngor gu toll nii la sëñ Abdul Ahad Mbakke waxoon rek wax na xam koo xam ne loo ko sante muy yëfam loo koy sante mooy sa cig bëggam di làmb bëggu sëñ bi ci wet gu ne ndax Sëriñ Tuubaa da koo xam ne la Cheikh ba Mbakke waxoon rek ولو دار الخلق علم الغيب منك لكان كلهم في العلا والفضل يا الله bu nit ñi xamone li fi yaw rek ñëppay am jàmm ñëppay kawe ñëppay am ngeneen umpu legi nak ñak ge xam te moom waxon waxal nako bopam boppam law alima naas ma huna la badru ila talabi walakin lama yashuru talabu ghayr nit ñi bu xamone li fi man dañuy fëxëri wut si ko ken do am yitte jenn ju dul dakam bañ ko réeree nag lañ dem wuti leneen waaye kon bu fekkoon ne xam nañu dëgg dëgg sëriñ bi sunu yëngu sunu dal sunu lépp day day doon si ndax dafa ñëw ngir xett lañu ñëw ngir génne ñu ci ak lëndëm ak bu réer ak noteel yóbbu ñu ci yoon wi gën nag te moo di siraatul mustaqim wammat nu wan nu yoon wa la ca di ay coono yépp moom mu gàdd ko ba noppi nag digal nu yoonu yéen dox leen rek sëriñ bi nag yi tax a jariñu yëpp la Cheikh Ibrahima Fall daan wax rek wax ne sëñ bi bu doon marchandise bëgg ay njëg sëñ Tuubaa bëgg rek mooy ci jariñ nit ndax bëgg moo gën luñ may nit fal xob xayru maa li sox si nit bopp dañuy wax ne buñ jëloon asamaan ak suuf dajale ko ba mu fees duy ko wurus ak xaalis mu tàbbal ci sa xol nga bëgg sëñ bi moo ko gën ci am ndax bëgg mooy fondement ak topp kon cofeel moo jiitu al mahabatu hi asasu taa nit ki li bëgg a tabax mi ngi koy teg ci li mu fondement nu sa kemtu lay kattan bëgg sëñ bi toll rek ni ngay amee force jëfal sëñ bi li nga ko bëgg a jëfal ndax benn énergie la boo xam ne day dégager lu bari cofeel mooy waral mën a joxe cofeel mooy waral joxe sa alal cofeel mooy walal joxe sa bakkan motax bëgg gi mo jitu ci lépp lu ki sax mom lu mu daj mu Cheikhul Khadim dafa wax ne bu dee liggéey bi wala tagg yi lépp bëgg yonent bi rek ko wala nga xamni da xani ila yéen a direct lu Baol Média FM sur 3w.radiotv.com ma yobbe tagg yi moma yobbe ma diko liggéeyal bëgg ko yit motax ma fàtte wurus fàtte khalis fàttey soxna fàttey naari góor bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeela kon cofeel moo jiitu ci lépp cofeel googu nag dafa am lu ci sëñ bi fàggul muy bëgg sëñ bi bëgg sëñ bi dafa bokk ci ni ñuy waxee diw dafa am wërsëg am ay milliards wala mu am ay nangam nangam noonu noonu wërsëgu am alal ame la wërsëgu bëgg sëñ Tuubaa sëñ bi suñ borom da koy wërsëgale ab jaam ndax mënoo ko créer bëgg sëñ bi ndax lan moo lan mooy bëgg sëñ bi usnal ixtifal li athaaril xadimi dalala in kunna muhibbina loolu la sëñ Abdourahman wax naa ne bu fekkee ne nit ki ak bëgg sëñ bi yor na ci moom day roy jeexintali bëgg sëñ bi maanaam nga xam ne jëfi sëñ bi ci melo yi jëfi sëñ bi ci doxin bi loolu ngay roy bëgg googu nag nit ki bu ko defee dafay dañuy wax ne mooy xuutul xulu ba ridaaru arwaax xol day dund ruux day dund bu dee garab yi da ngay suuxat ci ndox bu dee looy dundal dafa am aliment bu koy dundal waaye xol ak ruux cofeel moo koy dundal mooy waral nag mu meññi nag ci sa yaram génn ci génn ci nag gàncaxu baax ak melo yu mat yeeg jikko yooyu yëpp di dox mi ngi tàmbalee ci bëgg moo tax sëñ Tuubaa moom bi mu bëggee yonent bi gis nga da koo def ak cant xamitu ilaahi bi shukrin lahu ala jëf bi qalbi li xobbi moom maa ngi sant yàlla mi bijji sama xol ci ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bëgg moo jiitu bëgg googu nag sëñ bi dafay wax ne ku yàlla wommat ba jëmele si ci man muccu nga texe nga am nga mur mu rëy ci li nga do sax ci sa borom faza muridun qadahu Allah ila taalluqin biya wa yaxsa bil ila motax tax ba ba dafa nek dafa nek ngëneel muy sëñ bi day tan bo sété ñim tan ay tanef lañ ci bir tanef li yonent bi tan sallallahu alaihi wasallam yàlla tanal ko yonent bi yonent bi tan ko ca biir lañ tànn la sëñ Tuubaa tànn nga xam ne tànnitu yonent bi ci la tànne fekkul li yonent bi tànn mu des mu tànn ci déedéet ixtaara maxtaarahu lmuxtaaru niamalahu faxtaarahu wa huwa muxtaarun wa muxtaaru almashair la kon dafa fekk li yonent bi tànn ba ne lii laa jël ber ko ne mooy li ma bëgg ci biir lam tànn nag sëñ Tuubaa ñëw tiim ko tànn ca nag ñam lam tànne ca biir loolu nag mooy noonu moo tax mu ne yàlla ki yàlla may ba mu ñëw jëm si ci man am na mucc am na texe faasa muridun qaadahu llahu ila taalluqin loolu it tax nit mën a mucc ndax sëñ dafa laaj xalaat xam nga dëgg gu gën a leer sëñ Tuubaa amut fi ne yàlla على كل شيء خدير يفعل ما يشاء يختص برحمته من يشاء فعال لما يريد نوني يالا واخي نكو سي ما من ما ساني لما نيخ لاي دفه لما نيخ ماي سي بير لولو نك ويخلق ما لا تعلمون خمغا سون بروم داي ملني جونجوني نيت ني سيغ توبا داخ سيغ توبا دو اب يوننت تي سيغ توبا اوبنا ولي داخ دو تخ دو اب يوننت ab yonent jibril lay ñëw loolu la ñuy tudde wax yu na ko sa boroom ne wàlli yu dañ koy ilham muy day dégg son te du gis jëmm sëñ Tuubaa nag danaan ma laaj ko sama borom xam nga kon am na différence kii dañuy ñëw na ko sa borom ne kii muy dégg son te du gis jëmm kii nag day kàbbar ñaari rakkaa rek sëlmal na sa borom ne boo ko laajee dana mu ne waree ne nga ma laaj ko sama borom kon moom dafa mel ni connexion directe la diggante mag borom ilaa ilaahi la xad wasaltu an rasulullahi man fasal amul lu dox diggante mag yàlla ak yonente bi salaa sallam ba ca toppit mooy lam yadri insin mislahu fi ma xawaa wal kullu xaala li shanihi l maktub jàngkat yeeg gëstukat yeeg moo xam ci pouvoir yu mu doon moo xam muy pouvoir temporel wala muy spirituel ñaari côté yépp ba adduna sosoo ba ba bis bii may wax ak yéen ci waxtu wii histoire mës a nett lu ko mel ni Sëñ Tuubaa lam yadri insun mislahu fi ma xawaa kenn mënta indi koo ne sëñ Tuubaa nuru na ko dëkk sàngam la nekkoon ab téere jàngal la ko wala arxuraan jàngal la ko wala addis jàngal la ko wala jaayi gaay yi jàngale siire kenn jàngal la ne la diw sàngam ci dëkk sàngam de doxin wii sëñ Tuubaa di dox moo nekkoon aw doxinam de ndax benn bu dee nattu la sëñ Tuubaa teg nañ nit am nattu mu faatu ñu duubal te nattu ba teg ko sëñ bi sëñ bi dund kon xam nga am na lu wuute mooy la la ñuy teg ñenn ña ñuy ñàkk seen bakkan dañ koy teg sëñ bi sëñ bi dund ba noppi lim bind ci loxol boppam lim bind ci loxol boppam kenn ku mas a bind lu toll noonu amut li ko yàlla jaral ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it gisi sit ku ko jaral lim man kenn ku ko mën amul mooy branché benn contour boo xam ne wala benn central boo xam ne central bépp noo bokk nu ñuy fonctionner nga xam ne tey boo demee na muy gërëme ko sant Njaay lay gërëme ko sant Jóob ko sant Ngom ko sant Faal ko sant Mbakki benn contact dong la muy jaajëf kenn ku nekk jaajëf la la wax jaajëf jàlla ràngal gërëm moo la ràngal barke moo la ràngal mbooloo ngay ñaan muy nangu ñi la bëgg di la topp te doo xam loo leen defal te ñoom liñ la bëggee xamuñu lu mu doon te mënoo koo yàq mënu koo yokk ku dul sëñ Touba boo sampee dara dana dana dana jeex waaye sëñ Touba barakat yi waasiatun wa baaqiya baqa mulku di hibati yi fu ma def dara barke bu ne ni yàlla toll lay toll bu sax fa kon diirub yàlla ngi fi moo tax boo gisee ngañc ngañc yeeg coow yu bari yeeg nit ñi coow ci sëñ Touba da nga leen di reetaan parce que li nga leen di reetaane mooy bu fekkoon ne am nañu xel. yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3 20 point te teewul moo daan léegi nag ginnaaw am na ay soq ne fi fetam te làmb ji moo daanoon kon xam na ne mënuñoo daan mënuñu ub làmb ji ba muy dem mooma kenn wétti liw te ñi fi ne ñi sëñ bi doon dajeel ñooy seeni i ñooy patron seen i patron ndax tubaab bee yilif ñu ñuul ñi te moom tubaab bi la dajeeloon misaalum tubaab bee tax nu gëm Bamba gëm gu wér te noo raw ci ak bon te noo féeroo borom Touba kon Touba bi ñoom ñoo gën a bon ba noppi nag ñoo dajeeg Serigne Touba te ban dajeeg sëriñ bi doo gëstu fenn ba dégg ñu ne fii sëñ Touba mi ngi fiy sàkku ndimbal wala mu ngi fiy rëccu wala mu ngi fiy dellu ginnaaw waxtu wu nekk lu ko yàlla digal mënuy suta tee ñoom mënuñoo tee mu def ko lu ko boromam tere it ñoom mënuñoo tax mu def ko. buñ bañee ko julli ci seen biir kaaya bu ñuy maaj ak a lay kabbar di julli diirub lim nekk ak ñoomit it ñuko taxa tax waxtu mënuñu ñuko taxa tim tiim ñuko taxa juyo ak borom loola nak likoy tektale moy lam lay mëna jangal won la ko mooy yàlla ber gim ber serigne touba kon kay ginaaw suñu borom ber nako mo def resultant resultant serigne touba dafa def resultant serigne touba du lu ñuy tatone diko abali naan turki bi baax na ci moom ak sëñ Tuba déedéet sëñ dafa jëf-jëfi boppam ju leer nañ dëgg la nag bu nekkee ci réew moo xam ne xaaj bi ñenn ñi dañoo naafiq ñenn ñi bëggoon gam-gamle ñenn ñi bëggulun dendale faw ñu naan bu nee sëñ Tuba ñu wut ku làqar ci waaye diine moom ku amoon jom ku amoon jom ci Afrique jom ak ngor jom nag ak ngor ñi ko am daa bëri wut waaye ku ci amoon jom ak ngor sëñ Tuubaa ngay def mu sa njiit ginnaaw ñuy bëre fi ne léegi-léegi nga gis ku doon roi des te ñaata yoon la daanu lambi lislaam nag sëñ Tuubaa moo ci mas a daan te inquisiwutu kuu ba lislaam sosoo ba léegi ku dul sëñ Tuubaa rey nga ca ña nga doon jàkkaarloo ña nga doon jàkkaarloo rey sa ñoñ ba mu des moom sauf si Ahmadou Bamba mësa Ken kenn te ken mun ko lor mané su ray mané mënee roy te nga ray ak roy ken nga bam koku bu ni mu ñox roi koku moy buur koku moy top mo ne ca kaw moy le main serviteur di prophète Muhammad asnal khadima ko moy ki gëna yé cheikhul khadim lolu rek da na aduna di jang ku tak xalé bu tan ni bi mu takk dajeeg ñu tol ñim dajé genn kërëm bayyi njabotam bayyi leppam kenn du ne sëñ Tuubaa mu jógee ci géej gi doon na soox kenn du ne sëñ Tuubaa bëtam dañ ko yàq ci géej gi kenn du ne sëñ Tuubaa daraam soppi ko ne ci moom na meloon la mel jël siwaat nga xam ne la naar ba ne woon xawaar yëpp uxuru yaj fii ka min ha rujuuhu ala xayra xaalin bax damaa rakibal baxra xanaa kay boo xamul ci sëñ Tuubaa yi da nga xam ne moo de ci géej gi ba noppi ñibbi siwaat ci melo yu gën te gën a rafet ala xayra xaal bax damaa rakibal baxra kon loola bu ko jëfalee yàlla jëfal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla may ko lii mu ko may nga xam ne aatani allah fi ruuxi wa fi badani maa laa yuraali siwa saati bi laa tuhami yàlla jox na ma ci sama jëmm jox ma ci sama lu luñ dul gis ci keneen ku dul man te dara ci tuuma nekku ci boo ko doon gëstu xool ko ci àdduna bi foofu ngay fekk Cheikhul Khadim mu bañ ko ko not bañ ko not ñoñam li ñuy wax xam sa bopp léegi-léeg gaa ñi di ko tudde gëm sa bopp léegi-léeg gaa ñi di ko tudde dëggal sa bopp yooyu yëpp ay baat la yooyu bu ci ne bee ko def ndax sëñ bi dëggal sa bopp ba muy wax ne hadamtuma banaahu kullu man jaxat minal fira bi qul huwa laahu ahad loolu muy dëggal sa bopp dafa signé ca ndar ne yàlla képp ay buur qul huwa lu ma fa fekk ci fen ak i sos màbb naa ko taxawal ko ci dëgg ci qul huwa laahu ahad loola kay bu fekkoon dëggalut boppam bu ne wiis fii ci géej gi du kàbbar bay julli dëggal boppam a tax mu sànni daram dëggal boppam mu tax mu dem ba dellu si lam liggéey ak ñoom lépp mës sa tiim mës sa falox loolu mooy dëggal sa bopp dëggal sa bopp bokkut ak nii gaa yi tuddee dëggal sa bopp nag waaw ak xam sa bopp xam sa bopp it moom moo xam boppam parce que dem na ba ñëw changé wu benn culture ni muy habillé woo noonu lay solo li muy wax lay wax yonent bi muy tàgg lay tàgg fa muy jëm lay jëm yore gaalam fu julli jot mu war a julli xàmmeewul moom Serigne Touba birab góor noonu ak gaal ak suuf ak géej lépp fu ko waxtu yàlla yu fekk mu kabar ndax xam ne ne yàlla moom fépp ba noppi nag melo woowu ko suñu borom jagleel mu gañe loolu ba noppi ku ne mu jox la lam la jox ba noppi nungul la la nga am yéene la ko yéen a ngi déglu xamuñu loolu ci sëñ bi ci 3W ku ci jàng juróom benn téere tv point com am tuuti as financement de contre sëñ bi ay tabban li mubridihi tabban li munkirihi tabban li hasidihi tabban li man anada noonu señ bi mom ak di ko contre ak di ko soufel torox suufeel gi gëna yees lay jural nit ni différence ne ci mom mel ci señ tubaa la nekkon sama bokk raw ma doko deg señ sëñ tax sax maas gën ma doko deg señ sëñ mom bo ci nekké tamit deg 2018 2019 bakoy dak dàq len di gëna neex ba ngay dee day neex sëñ Tuubaa moom amul moo tax mas ngeen a dégg màggalu daaw a dàq ren loo ko déggee ñun xamuñu nawet bu am xamuñu crise xamuñu tali yu yëggut xamuñu président bu falu xàmmeewuñ élection yu jege màggal gi moom bu ñëpp deewal lu ñuy màggal te bu yàlla li mu defal Serigne Touba loolu mooy beneen affaire te bu bu mu mën a doon mën nga koo natt sa bopp màggal gi dana jub si ay weer nga ami bor am loo tàbbali lu yegg tiit ci sa bopp tiitaange joo xam ne nan lay def ba màggal nga wax te fi ne bu jàllee kenn ku ne yaay gis ka nga dellal naan ko sawaay suñ tubaabu morom màggal gi bi muy jub si doo xam fu la xéewal di jóge kenn ku ne natt na ko ci bopp kon sëñ bi yoral boppam programme kon yi xew léegi ci jamono fu ne waaye di fa sànni wax di wax sëñ bi sëñ bi nañ lànk dëgër bopp ci sëñ sëñ Touba moom mel la kenn du sëñ Touba kenn sëñ Touba mooy sëñ Touba te it wax naa ko léegi ca ndar nee naa sëñ Tuubaa bokk na ci li ma gën a neex ci moom kenn mënu faa yàqal kenn fi ne loo mere mere sëñ Saliou Gom mi mënoo ko yàqal sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa du benn nopp ay daa soof ak li muy woote du dëgg sa waay day ñoddeeg lu tax bi démission sëñ bi moom bu la xasi sëñ bi moom neex na ma ci loolu neex goog ndax damaa xam ne sëñ bu doon benn nopp di déglu gaañ billaahi waxuma la boota ko yorub sareet boo xëyee da ngay raam dañ koy nungu ba noppi dagg say tànk dañuy nangu wata bi sareer bi dagg seetaan nga teg ci ngay daan ah, waaye mënuñu ci dara fi ne dañ koy réunion di kaas di am lu leen naqari am na ci ñoo xam ne moom ku sëñ Tuubaa defar la ñuy bañ a dégg te ci biir yoon wi lañ nekk biir yoon wi lañ nekk ba noppi iñaan te kat jàmbaar amul sëñ bi ci boppam mooy jàmbaar ndax koo xam ne boo ko tabaxalee kër lañ <laughs> ko tabaxale ñoñama la ko jox señ Tuubaa daa neex a liggéeyal kaay la jox ma defal señ bi loolu la ngay dégg li fi way joxe mo nit ñi ñi la ko jox yow alu lu tax ñu jox la señ bi tax ñu joxe demo ci geej gi jul ñaar rakay yi ñi julli ci geej gi ni kenn ben lu murit alu alu aalu doo laal géej gi tefes gi la di yam genn imam do ko seen musallim sànni dërëm ci géej ginaaw mom mom jenn jëf ju mi jëf ju ngi koy mu te kat man man bu fekkee ne dañuy roy rek ak naan sunna sunna ak diine ji sëñ bi nangam na kenn ñàpp géej gi set sànnit hmm? yàlla xam na ne taw bii rek am na ñun dañ ciy faat wax tooxuma la ay karawaas ak i fetal te maa ngi seere ci yàlla bari na ku lay jaay diine fii di lay jaay sikkin bu rëy naan sunna bu nu wëlbatiku waatoon tourné pass bi 1895 ñëwaat yàlla xam na ne lenn luy màndargaal ne mi ngi dox ci diine du am léegi nag ginnaaw sëñ bi buddi na àll bi toj ko njaay àll yi ci nekkoon ak gaynde yeeg ngara yeeg yépp sëñ bi maasale leen àll bi fu la neex tëdd jiit sax du la fett ak ku nekkee nga ne ci àll bi xiiru na nangam du diine nangam du diine nangam du diine waaye bi ko yàlla yabal nga xam ne allahu qaddamahu wa qaddasa sirrahu li yuqima mabna diinihi yooyu nag buñ ci ñemewut duñ dem te financement yëpp financement bi Sëñ Tuubaa ci gën li may wax man dama ne gars yi ñi ñu financé moom maa ngi ñoom ba dernier mot ci adduna dañuy defante ndax ñoom dañ leen a ba noppi teg leen ay condition man nag dama am financement sans parce que ñoom yi ñuy wut yow lañ la sëñ bi jox nga ëpp leen jàmm ku la woo nga wuyu amoo buntub ginnaaw booy aw di làqatu ji amoo koy seet ba xam bu ñëwee dana la gis ak doo dox di gestu ak di wax ba xam gëm nañ ko dina ma dóor ak duñ ma dóor yooyu yëpp du la ci fekk bu dee sëñ bi bu dul sëñ bi nag faaw ngay këlkin kon ka mën a defar ay mag defar ay mbooloo sagal leen bàyyi leen la ñu am nañ am jom yi ne ci sëñ bi ñu sëñ Muntaxa wax ne sëñ Muntaxa neen ñett fi nekk ku am tawféex ku ñàkk tawféex ku texee di yàlla na ko am tawféex mooy nun ñaan ak moom ki ñàkk tawféex nag mooy ki ko wutal moroom ki texee di mooy ki ko bañ ki ko bañ te kat sëñ Tuubaa moom koo dégg ñu naan daa bañ sëñ bi wala ñu naan day contre sëñ bi wala day wax sëñ bi nangam maanaam waxuma lenn bett ni waaye sayar ji moom jàmmam day jeex ndax koo xam na ngay làqatu léegi ko la woo xam ba xam koo xamoon la wala koo wet wet gu ne ñu doo fóortu duñ la gis ku ñeme kay dangaa war na fàng nii ñuy def ci rajo yeeg réseaux sociaux yi télé yi nit di la filmer ngay wax lu wóor xam sa adresse bu leer lu doo ko déggati ci àdduna kon kon nañ ci góorgóorlu bu baax suñ saliwu li euh, ma la ko waxee rek sant yàlla xam na ne ñëwuma sax ngir waxtaan waaye dama ñëw ngir sant ak wane sama diggante ak yow di la ci gërëm bu baax ndax yow nit ko am fulla nga te dama bëgg nit ko am fulla nit bu ñàkkee fulla yéen a ngi déglu Baol Médias lenn lu muy yóotu du ci jot moo ko fitee yam am yambar moom gis nga yoonu Sëñ Tuubaa bi moom am yambar du ci jariñu ndax yoon wi moom saa yoone càpp danga nga ami noonu am ñu lay contre am ñu lay reetaan da daan càpp sañ ci yorub sëngal yaa ndeysaan jaay yàlla ji dëkk fii de xam naa laa jóge seen dëkk ñëw fi ngay góor góorlu tabax ñaari pant ñu moo ne moom de mi ngi avancé moom lu muy def sax lijjantiwuñ ko woon nga miiree am wata nit ñi di la fréquente ñu ne sa waay de day seex seexlu seex seexlu amul ku ko tëllut nooy seexee moom diw day am am lu xaalis am am lu xaalis amul yi jaay yëpp te nga bëgg amagoo kon amoo xaalis boo ko amee dem jënd waaye nit ñi ñooy def noonu nit ku bëgg a jëm ci yàlla du fi amee nag ay wax du ko weddi du fi amee ay du ko weddi te ku jóg ñu ne du dem sëñ Tuubaa ñu du dem lañ ko doon wax ku fi tàmbali ñu ne doo yàgg dama ne gaañi bi ñuy contact bi ñuy dal ci sëñ Muntaxa di ko jëm a attaqué yàlla def ko muy xalifa général de Mouride. andi projet boo xam ne 37 milliards ci njàng mboolem ñiy coow nii ku ci am daal di 1 milliard amut waaw xam nga loolu nag sëñ bi kon wan na la ne du ma sa morom ba noppi mag la raw la gën la hmm? indi résultant kon nañ góor góorlu ci sëñ bi la sëñ fan lu waxoon rek na ko nikk na ko nankutum na ko katiw na ko tarawliis bu ëllëgee nag loolu dal baax na bu ëllëgee buñ gisee njaag ne yomal xiyam ñu ne señ bangé ay perte ngeen baxna na jërëjëf ñu dal baxna nan luy dal ko and ak sëriñ Touba yalla na dal ay luy dal kuy and ak señ bi rek ay fi dal mom tambalé na lèr mom fi xawma fañ jëm nak ay fi mom affaire bi mom situation mom tel na réglé fi mom atay ah, nak señ bi mom <laughs> réglé wut aduna baye alakhir réglé wut àllaaxira àdduna mo xam ne déggee murid bi Touba eh, ñaanal aduna alakhir ndax ginaaw ñaar yépp nga ci wax man la kani dunya wa ukhra samad ma mom aduna mom alakhirah ñaanal yëpp rek yowmal xiyam yu do fa fété woon may bortee loxo ci ginaaw li xaar ko la jall téla régler sa situation yi fi génne stress ci sa bop ak kiñaan day gattalu fan day télé lo nit dénga ko naan ay rab ak faro rab fekk télé ga dara stress murit du stress bu xëyee ba wacc bu waré julli julli waré jangal alquran jangal wa wala jang qasida jang qasida bu ne kendeng, këndëng wa bu tëddee rek na nelaw ba fajar mu jogat ay ne fi nan lu yëngu bi yëg ko yoy yooyu stress waaw stress mooy dañ ma tak xalaat gaay yi est-ce que kortuñu ma dañ ma japp ak chatam dara téyewu la murit dal ndax li gëna neex ci aduna moy tay ji buñ ne la doon président ta nga ba nga lank kon xam nga ko ñi mom président waxuma nag ay député ki ministre ki na nga xam ne kenn ku ne la joon sa bouton doom dong bëgg mbubbam kaay dagg ko ngir diw faloo folli ku nga làgg te ku ne la woon kaay doon président amil te ba sëñ Tuubaa génn ci moom nga lànk kon kay yow li nga am moo gën a riis sëñ Tuubaa ci biir xol moo dàq lépp sëñ Tuubaa mooy koom ma xabatu xudlun saa yoo xasee am sëñ Tuubaa kenn gënu la riis bul dox di yu yélam yélam meeg dox di mel ni ku sa àdduna tukki neel dégg sant yàlla bi yàllay tànn sëñ tubaa ber ko tànn yow boole la ci ñi sëñ Tuubaa tànn xam nga sëñ laa seexlu mënoon laa bañ a programme mënoon na laa bañ a lijjanti waaye accepté gën a sëñ bi accepté nangul la te xam bi bu doon seet affaire bi ñu koy defi carte mu door raam nangul kenn du matal bu doon élection la kenn du matal bay jàll léegi nungu yow li nga war a kontaane mooy boo tëddee nelaw ba yaa nga yëg ne man di taalibe sëñ Tuubaa la nungu gi sëñ Tuubaa nungu ma di taalibe li Cheikh Ibrahima Fall waxoon la Mbàkke ëpp nga sëriñ waaye am boo def sëriñ it ëpp nga ëpp matuñu lay taalibe waaye nun nga am kon yàlla maa ngi leen di baal àq yéen ñëpp na ngeen nu baal di leen jégglu xaj na coono yeeg jataay bi ca bëccëg ba léegi noo ngi ci ay jataay noo ngi bëgg ci béréb bi yal yàlla defal leen tawfeex yéen waa hmm? yaay ban yow ah yéen Dakar la na ngeen fexe muy teg leer boo leen ko defee daal ca kanam te kaw ca kanam rek waaw yéen daal na ngeen teg lu leer teg leer waaw yal na leen yàlla jàppale. Cheikh Ibrahima Fall Baye Fall gi kon ni Cheikh Ibrahima mel ci yoon wi ci ràññeeku la ni mel. barke xaadimu rasul yàlla na yàlla defal leen tawfeex yàlla na borom rajo yi ngeen dem ba am seen ay studio am seen rajo yi bop yeen gën yéen neexal jàng yi ndax boo leen coupé kenn du wax gis naa fi jàngkat yoo xam ne bu rajo amutoon ñoom dañuy noppi parce que li ñuy wax moom amut son génnut fenn ndax amuñu doole <laughs> saari maarase kii xalim gi xam nga ne booy rajo amutoon ñoom fu mu jëm ndax kenn du ci wax lu génn sa dàll bi comme yéen dañ leen war di boole ci programme bi ko ko ko leen ko leen ko leen merloo yéen yéen tiim seen i bouton fi neen am na loo xam ne fii ne boo leen ko bësee day di xur am boo xam ne boo ko bësee day walwali yéen a xam yooyu léegi la nga dem jàng yoo xam ne xam sa dem ay jàng waa ji wàññi rajo yi xam naa ndeysaan xamut ma ne ko sëñ bi waxtaan wi may def man ci laa doone ki ma doon waxuma la jëndal ay rajo ki nangam ki nangam ay bo dajale won rajo yi ci rew mi jaay ko du tax nga tok di wax li may wax ma ñew fofu nga ñew kon respecté li nga ne ma respecté lu nga ne bo ma lay soboté ban ban dak la bo ëlëgé ya yàqu la rek <laughs> motax yow fonk sa tak rek bu lijeenti kenn te loolu mako waxon yalla xamna ne wa jangé dañu mer bëggon ko duma te mujj mujj tëkkatu ko te man maa ngi fay ñew waaye yaru gi nii ak baax gi lu ci lu ci lu ci lu ci am solo la ab taalibe bi du soboote nun noo bokk sëñ Tuubaa hmm? man gis naa eh, caméra ki takkat boo xam ne moom bu takkee bu may waxtaan léegi léegi day mujj rajo yëpp taxaw ndax fee lay tàmbalee di mbëkk di ànd ak baafa la nag ab daanukat boo xam ne nii bis bi ko jëkkee def damaa tiit ndax laa jékki-jékki rek rajo yi bu ordinateur yi ak xam nga kooku lii baax na ci ak dal ñuy yor rajo yi it ndax ñun bu leen daanoo li yàqu lay bari. waaw ah, yàlla na sëñ Tuubaa dolli leen tawféex defal leen ndimbal sëñ Saliou bëgg naa lool bëgg naa lool nit nit nit ku nit nit ku baax la. yéen a ngi déglu te lii may wax de dëgg la yi tax nit di wax lu du dëgg yëpp mucc naa ci waaw yëpp nag foo ko natte rek boo ci jàpp rek mucc naa ci ndax bi ci jiitu mooy iñaan te iñaan moom man xam naa ne defuma ko man moom maa mën a waat ne iñaanu moom ndax kenn ku mel ne ma déranger ba naqari ma amul fi ne ku bu ma rombe bu ma yàlla xam na ne bu ma gisee ab oto jiitu ma gis ay bagage ne ci bu ko amee laala yooyu damay jël sama kurus ñaan yàlla mu tëdd ci ci jàmm am ci njaboot gu barkeel ma gisee ko tàmbali tabax wala kër gu rafet rek damay ñaanal borom yàlla na ko yàlla defal mu mucc te dëkk ca njaboot gas mu sedd guy ah yàlla ay seddale di ah yow boo ko ñaanalutit te yàlla yow programme wut nga am wal fa programme wut nga am fondement mënu da ngay ñaan ba noppi dee ci biir bàmmee lu tee tabax bi am te am na ba noppi ndax bi ko yàlla taxawal mi ngi fi yaa ngi fi mu gis la joxuloo ko ñaan ñaan googee fi ne mën nga ko cee ñaanal sax yàlla dana ndeysaan sama waa ji nag gore na amut ba noppi nag di ñaanal kii pàdd la ci ñaari pàdd sax ak ak werandaay <laughs> jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi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 yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point sunu rajo TV point com. Sama was on my eyes. ci samay aar Mama, it's a what to me, what is a my eye. may a ma jeki ba may daxaw ci man mu di fu ma ci tollu di ko woo mi faj samay a diggante àllëg la def ci benn la ci man fu ma ci fu ma ci toll nu di ko woo muy faj sama ay saal fu ma ci toll di di ko

may aar jigéen jeweetal te may baay samay Sëriñ Saaliwu diggante wéetal du dox muy faj samay aar diggante wéetal ak du dox muy faj samay الخليفة الخليفة أنت الخليفة أنت الخليفة سيدي المختار خليفة أنت الخليفة سيدي المختار خليفة أنت الخليفة سيدي المختار خليفة أنت الخليفة سيدي المختار خليفة أنت الخليفة سيدي المختار برمنا أنت الخليفة سيدي المختار أنت الخليفة شيخ سيدي المختار رب القوم خاتمة سن من دفي أبا إسال دنغايم أنت الخليفة رب القوم خاتمة سن من دفي أبا إسال دنغايم sangu min defiye abaysa borom jannatul mawa bay saam borom jannatul mawa fangu min defi a bay saam sëriñ Saliou sa leer gi dem na gannaar sa leer gi dem na gannaar saali leer ga dem na gànnaar ba jàll dem Amérique tubaab yaa ngi ñëw te naan Baay Saal kii la yéeme sa leer gi dem na gànnaar ba jàll dem Amérique tubaab yaa ngi ñëw te naan Baay Saal kii la yéeme fadad wayaa iloom fadad wayaa iloom san mayaa

baara bur yàlla moo bëggal boppam sëñ baara bur yàlla moo bëggal boppam sëñ baara bur yàlla moo bëggal Amadou yàlla dangay baar bur yàlla mi moo moo bëggal Amadou sëñ yàlla moo bëggal woppam sëriñ baaraay woppam sëriñ naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax wëral ju may tuuba kon nga naw sëriñ baaraay sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma may bu naw sa cosaan ba léegi li ma la wax Tuuba kon nga naw sëñ baara wa mulku am malakoot ak fi aras ñangana wa mulku am malakoot ak fi aras ñangana Serigne Bara dogal ba fakun la yàlla daas daas ba mu ñëw mu jox yonen ba ba jox na ko min baara fa dellu fa baat mu jox ko bay saal mu ku mu neex ak ku mu neexul moo moom jamono ku mu neex ak ku mu neexul

mbàkke ku mu neex ak ku mu neexul moo la moom jamono ku mu neex ak ku mu neexul moo la moom waaw kay teel a xëy da koo mayewul teel a xëy da koo mayewul teel a xëy da koo mayewul waaw teel a xëy da koo mayewul xel mu neex da koo mayewul sëriñ saali woonu ci boole te mooy borom jamono teel a xëy da koo mayewul xel mu neex da koo mayewul sëriñ saali woonu ci boole Baay Saal man de Mbàkke moo ci boole mooy borom jamono man de Mbàkke moo ci boole mooy borom Baay Saal man de Mbàkke moo ci boole mooy borom jamono man de Mbàkke ci Seex Saal sang bi ande Seex Saal sang bi ay Sëriñ Saal sang bi sant laa ci jamono jëf ci Seex Saal am ba am jeex la ca gën am sëriñ saa la ca gën am ba am jeex la ca gën am sëriñ saa la ca gën am ba am jeex la ca gën am sëriñ saa la ca gën am ba am jeex la ca gën ku ko am am nga bamba am ba am jeex la ca gën am sëriñ saa la ca gën mbàkke daa yaata manu gan moo nu doy ci ji jamono am ba am jeex la ca gën am sëriñ saal mbàkke daa yaata manu gan moo nu doy ci Seex Saaliw moom de dafa yaata manu gan monu doy ci ji jamono moom de daa yaata manu gan monu doy ci ji Baay Sall moom de daa yaata manu gan monu doy ci ji jamono moom de daa yaata manu gan monu doy ci ji Seex lim defal Sëriñ Béthio teewu koy borom jamono lim defal Sëriñ Béthio teewu koy borom jamono lim defal Sëriñ Béthio teewu Baay Saal defal Serigne Béthio lim defal Serigne Béthio naaru mambam bi ca am na kuy borom jamono Cheikh Béthio Maam ko may li mu am Béthio Maam Bambilor am na kuy ko may li mu am Béthio Maam Bambilor na kuy dalal jamono cant ko may li mu am Béthio Mame ko may li am Béthio Mame Bambi bi cant ko may li mu am Béthio Mame am Béthio Mame Bambi na kuy borom jamono Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. Béthio Mame Bambi Thiam. mooy jaamu Serigne Saliou. Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. Béthio Mame Bambi Thiam xam na kuy borom jamono. maam Cheikh Béthio maam Bambi Thiam xam na kuy borom jamono jaamu Serigne Saliou xam na kuy borom jamono jaamu Serigne Saliou xam na kuy borom jamono Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou xam na kuy borom jamono jaamu Serigne Saliou xam na kuy borom jamono Béthio jaamu Serigne Saliou xam na kuy borom jamono Béthio jaamu Serigne Saliou xam na kuy borom jamono kay jaamu Serigne Saliou xam na كوي بارم جمانا جام سرين سار خمنا دماتي مسكين بي دفاتي لا بوكو لاي جوخوتا سرين سالي و نيبينا جيرين بي دماتي مسكين بي نوي دفاتي اسكي laa bëgg lay joxote Serigne Saliou ñibbi na. ay Baay Saal. dañuy tëju di la jooy yuuxu ba far xal mbaay yi sax ñoo ngi jooy sëriñ saaliwoo ñibbi na ay baay saal dañuy tëju di la jooyoo yuuxu ba far xal mbaay sax ñoo ngi jooyoo sëriñ saaliwoo ñibbi na magge di yéen ana ngeen seex si xanaa jëmmi ngeen alxuraan waa jëlëmin sëriñ saali woo ñibbi saali woo ñibbi na siyaare leen baytin laay medinatul munawwara ñàkk na waayam ajal na junni bi gaay sëriñ woo ñibbi na siyaare leen na waayam

ku mel ni moom dootu fa yónnee doomi Bamba daal kaar Sëriñ Saali woo ñibbi na ñaari rakka yee fa ku mel ni moom dootu fa yónnee doomi Bamba daal kaar Sëriñ Saali woo ñibbi na

yaa moom njurul yaa moom jannatoo sëriñ saaliwoo ñibbi na ay bàyyi saal ku jamonoom teeg moom kookee bur yàlla day soppu jëmam jooje rawatina nga masa dem xel kom jaaga bàyyi saaliwoo yërëm na la sëriñ saaliwoo ay baay saal yow yaay borom jurul borom ngi borom tayba borom jannatoo jàmbaar wàcc na sëriñ saaliwoo ku ko gis mbaa gisu ku gis bu ngeen demee fadaam moo leeni ramoo borom jurul sëriñ saaliwooy borom xabaan borom ngee jaan borom jannatoo baayu soxna waalo sëriñ saali wooy borom jurul ba bamba ne aw ma doom saaliw taxul borom jannatul max baay sal borom leer waaw waaw borom jannatul max baay sal ma ne aw ma doom saaliw taxul doonum jannatul mahwa bàyyi sal borom leen ma ne aw ma doom saaliw taxul waaw waaw borom jannatul mahwa bàyyi sal borom leen bamba ne aw ma doom saaliw taxul borom jannatul mahwa bàyyi sal borom leen jannatul mawa bay sal borom leer kamu ne aw ma doom saaliwu taxul borom jannatul mawa bay sal borom leer déedéet borom jannatul mawa mahabba jannatu mahwa bay sal borom le tambane am ba doom saliru dawul waaw waaw borom jannatu mahwa bay sal borom le ak nga njurul toñ nga xabaan toñ nga jannatu borom jannatu mahwa bay sal borom le jannatu mahwa waaw waaw ba jannatu mahwa bay sal borom le borom jurul borom xabaan borom jannatu bay sal aw ma doom Serigne Saliou wonge borom jannatu mawa baysal borom waa Baay Saal borom leer borom jannatu ma waa Baay Saal borom leer. Il y a une vie dans le média FM. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu ak Cheikhul Xadim gi yëpp di ñaanal Serigne Abbas xalifatu ak Cheikh Ibrahim sunu borom yàggal ko wéral ko ba li mu naalal way juróom bu baax wa Cheikh Ibrahim mu àggale ko ak mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima fatil yeb di ñaanal Serigne Moustapha Hafsa khalifatu Cheikh Mahmoud Awa Balla sunu borom yagal ko to wéral ko yagal njabot gi yëpp ci ci ginnaawam ba mbollem ay naalam ki yene magale ko nuyu njabootu Serigne Touba gu bax gi nek ci jotaay bi Ibrahim di jël nuyo yeb ak diko jaarale ci Serigne Mahmoudan moom Cheikh Mouhamadou Awa Balla sëriñ bi noo lay nuyu di la jéggulu toogaay bi di ñaan yàlla sunu borom yàggal la te la li nga yéene lépp noo ko bëggee rek nga defe ko ni bu ñu tuddee sëriñ Mahmoudan sëriñ xa sëriñ Jili di nuyu seen Maodo ak sëñ Mahmoudan moom suñu <clears throat> xalit maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di nuyu njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gii fi nekk te delegation bi fi nekk seen Moulay si nekk ci bopp bi ñoo ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam di leen jégalu it. yéen a ngi déglu Bawol Média FM. ci 3W point Bawol ak ni mu doxee rek ko sabab waaye noo ngi leen koy jégalu bu baax a baax di leen joxe seeni i wàccuwaay di nuyu sëñ Modaw Balla juuf moom sëñ Touba Diouf di ko siyaara bu baax di ko ñaanal yàlla kàttanal ko ba mu àggale ñaanal yàggal kilifaam yi nekk ci kanamam yépp di nuyu mbooleem njabootu sëriñ bi fi nekk yépp di nuyu sëñ Mahmoudan Diop ci bis bi di ko ci ndokkeel di ko ci ñaanal yàlla it sëñ Mourao Balla mi mu ciy sant yàlla na ko ci yàlla dajaleeg ngërëmam ndax ngërëmam mooy ngërëmul maam Thierno mooy ngërëmul Cheikhul Khadim sëñ Mahmoudan suñ borom daf noo boole wëlëre te lépp jaaree ci kilifaam gu baax gii di sëriñ Mahmoudan moom sëñ Mouhamadou Awa Balla ndax kilifa dana la def noo xam ne lépp lu tax ci moom rek danga ko jàpp te ku ne xam na ne sëñ Mahmoudan dimbale ñu ak taxawuñu rek tax mu may nu ci jëmmam loo xam ne ëpp nañu loolu nag sëñ Mahmoudan mi dañu ko seq mu diko ko suñu diggante ci loolu bis bii nuñ dañoo war a ñëw rek ànd kook yéen bokk ci ñi koy ndax yaakar naa ne tey yii ñii yor programme yi xam nañ ne benn fanu safa benn fanu rajab bis bu xal ci nun waaye sëñ Modou Moustapha dafa waxoon ne nit ki bu la bëggee da nga koy sàkkalu lay nit bu la bëggee da nga koy sàkkalu lay loolu moo tax ñoom xam nañ ne léegi nii jataay ba amal ci Touba ñëw naa ba dugg Darul moxte ñu di ma woowaat dem naa ba egg toog bis mu xat ma déparaat ba toll fii sëñ ahmadul bale bi moom Cheikh abdou Fadal woowaat ma ma ko kon dañ ma jéggal ci ben ba benen bisat way tay ji ma ngi ni aksina darul muhti te lolou liko sababit moy rek lima wax nit bu la bëggee seigne Mourou sané neen la nga koy sàkkalu aw lay motax tay ñu programme yépp bayyi bis yëpp bàyyi jataay yëpp ñëw ànd seeg yeen bis bi di nuyu communicateur yi fi nekk yépp di geewali borom darul muhti di ko jaale ci sëñ Cheikh Awa Balla Samb mu jàllaleel na ko ci ñoom ñëpp nuyu sama xaritu bopp bi sëñ Modou Ndiaye kii man moom di sunu sunu xarit noo koy nuyu bu baax. sant yàlla ci jataay bi nag bu baax ndax waxtu wi daaw fekke woon nañu ko ren ji yàlla sunu borom mayaat nu mu fekkee woon. maa ngi santaat ndax man daaw sama bis bi ma doon def sëñ Touba Diouf laa ko tuddee woon waaye loolu it boo ko defee dafay yëg ne. borom gërëmul yàlla doy caaxaan. boroom ngërëmul yàlla boo ko boo ko boo ko tuddee wala nga boole ko ci dara balaa waxtu waa dir siwaat da yëg ne tudd nga boroom ngërëmul yàlla te sëñ Touba Diouf kenn ku ne xam na taxawaayam ci ëttub sëñ Mouhamadou Awa Balla ci ay jëfam ak meloom mu wóolu woon ko lool ñi mu bokkaloon sëñ Mouhamadou Awa Balla it ñëpp wóolu woon ko ci pas-pasam ak pëstéefam ak yitteem ju akuk dogoom ak xam li muy wut waaye loolu laa xar wa ndax ku xam sëñ Mor Diouf Diatty xam na ca saabixuuna saabixuun ya la bokk ña jëkk a jaayante Serigne Touba ca Mbakke Kajoor ca la bokk laxasaayu bis bi boo gisee di mu yéemee ndax ñii ñu ko booleel muy waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bis bi sëñ Baara feeñee jamono 90 jàpp 91 ca Touba nga xam ne fii jumaa ji nekk fi la Cheikh Mouhamadou Lamine Baara feeñe jamono am tawféex it sëñ bi gàddul ko boppam tawal ko boppam tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi mu feeñee la sëñ Touba dajale mag ñooñee te sëñ Mor Diouf mii maam yi kii ci la bokk na leen inna dayfa haada qad ataakum bi jamii matalibikum gan gii fi ñëw àndaale na mboolem loolu leen ko yàlla gërëm na leen rasulullahi gërëm na leen gërëm naa leen loola ba mu amee sëñ Mor Diouf jati dafa delluwaat ci sëñ Tuubaa ne ko ngërëm li mat na neex na waaye sowu jant ga ma bàyyi koo damaa bëgg bu ma fa delluwaatee ku fa teg sa tànk ku ne sa yaram aramat sawar ah. sëñ Tuubaa ne ko loolu nag lu ñuy jënd la jëfa koy mayewaat mu laxasuwaat ñetti at ba sëñ Tuubaa woko bam ba mu ñëw mu ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm na la li nga doon sàkku sama borom def nako kon lolu day melni gis nga mag ñi buñ buñ daan fàggu yéen a ngi rek Baol Médias FM ci 3 wtvcom waye bu la nañ la nga ne fama joggé jógee bëgguma fa wat kenn di dem ci safan ba lekk amna bi ci sëñ Tuubaa yónni ko sëñ Mor Diouf mu genn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall yónni ko mu dem dox yónnee nu Cheikh Ibrahima Fall wàññi ko dem dox yónnee nu Serigne Touba bi mu ñëwee sëñ bi ne ko xaw naa yaay mu ne ko damaa dajeeg Cheikh Ibrahima fal mu yónni ma señ bi ne ko baa dem nga mu ne ko waaw ab yónnee nam sax laa jëkk dox door a dox mu ne ko waaw Ibrahima Fall de noonu lay def rek ndab lu ma duy mu bëgg koo këpp waaye kon wane na ne moom ngërëmul sëñ tubaa li daje ci moom sëñ tubaa ko garante jullee waa këram ci njeereem ñaanal leen na ko mboolem sa njaboot maa leen garanti kon sëñ Tuubaa moom moo assuré jabootu sëñ Mor Diouf Dieng kon bu noona bu ci sëñ Daaru melee noona jëfal sañ bi taxaw taxawaay boobu sëñ Tuubaa Diouf mel noona di ko jëf sëñ Modou may ñëw tey tudd général ci biir kër gi loolu du ay caaxaan loolu la muy tegtale mooy albaaratu dullu alal baax bi ñam mbokkal jett ba yépp fonk ko ci melawoo ak dox yi nu réewoo kon li sëñ Mahmadan def loolu mooy solo si mooy di delloo si mag ñi di leen waxtaane ndax jamono ji mbooleem crise yi nit ñi waxtaane wax ne moo xam azma ghidaiya ak iqtisadiya wa crise alimentaire ak crise mondiale crise économique yi ñuy wax yépp azma xuliqiya bee ko gën a danger parce que moo ko indi te mooy crise des valeurs parce que li ñuy développement mënul am mukk te jikko ju baax amut ndax am réew bu ñu ko tabaxoon ba mu jekk nit ña guerre réew ma yàqu ana li ana libi ana meneen réew ana meneen réew. Mm-hmm. kon développement mu ngi ci jikko yu baax jikko yu baax nag mag ñooñu la ñu war a delloo si waat di leen waxtaane di xool ci seen doxin wa ndax ñoom luy àdduna dañ koo jaay jaay lépp jënde ko ëllëg te doon ay gor doon borom yi xam-xam doon borom juddu yu mag kenn ci ñoom koo xam ne mas ngaa def loola. bakkan jame wala banex wala aduna wala shaytané amul ba ñom ñep tay teud ci ngeerumul yalla ak ngeerumul serigne touba buñu bëggé am avancement ñoñu lañuy délo ci parce que modèle du ay xaxan té ñun légui légui ñu bëgg no lo ño xamné xamuñu len ndax lutax xamuñu len moy gisunu luñu jëf am serigne touba dafa bokku ci euh diplomatie ci amadou bamba serigne touba dafa éliminer ñep ñep la éliminer tubaab yi bi mu jàmmaarloo ñoom ñuy jëkkalante tool yeeg di xeex ak pouvoir yi fi nekk muy pouvoir temporel yi fi nekk ak spirituel yi fi nekk sëñ bi dafa fexe ba defar nit ñi. nga xam ne bi adduna soppi ko tubaab yi seen patrimoine yëpp rumbul ay tabax gaar bu yàqoo tabax bu nangam sëñ Tuba occupé espace bi yëpp fu chef de canton nekkoon ne wala jaraaf nekkoon fa wala dammeel nekkoon fa wala nangam nekkoon fa sëñ Tuba teg fa ab cheikh nga xam ne boo masaa jub dëkk ba la ngay yëg tey bu dëkk benn bu Sëñ Tuubaa ba bu nekk boo ko jubee jumaa ngay jëkk seen boo ca tabbee yëg ni yàlla moom fii loolu mooy li Sëñ Tuubaa gañee espace bi te bu bu ko gañee woon ci béréb bi mu nekk waaye da koo dem ba fekk leen ci seen biir kër ya ak seen biir dëkk ya nga xam ne tey ña gën a riche ci états uni kër ya fa Sëñ Tuubaa am amuñu ko ña gën a riche ci Europe kër ya fa Sëñ Tuubaa am amuñu ko ci seen boulevard ya ak ci seen béréb ya la murid di jaar di yëkkati xasaayit di bàkk Serigne Touba ñoom ñu di leen escorter loolu la muy tegtale mooy gañe gi Serigne Touba gañe guerre bi te Serigne Touba li mu gañee ku fi mas a jóg di xeex am ngay jësi am ngay fekk am ngay fetal Serigne Touba nag gëstul bu dee Touba jege na la demal bayti ca Daaru Xulus wala nga dem Njaareem wala nga dem nant wala Bordeaux ci France nga gëstu doo gis paaga bi Serigne Touba ko moomoon fettu sëñ tubaa gaa ngi nii amul jaay si jiile sëñ tubaa yoroon amul yatu sëñ tubaa waa ngi amul maq doomu sëñ tubaa gi nga amul gharibun la la jundil ila wasilahu miladun wa qalamun turaysu bi shukr xilima ak daara la occupé fépp ba gagné ñëpp daan ñëpp not ñëpp te loolu kenn kooku nag adduna jotagu ko xañ na dañoo dañoo lam waxoon rek ne ñi ma defaral am na ci ñooñ day mel ni solali daal am na ci ñooñ ker gin jëkk a jot fi lañ faram lay jéggiwulub jéego dañoo jàpp riir mi xéewal gi nangam waaye bu nu bu nu xooloon dox yi nu sëñ tubaab yi rek adduna bi yëpp dañ koy téye waaye pëccëxoo bi kontrante bi bañante bi taxasub bi faralante bi ananiya waxu bu daat bi ku jóg yëngal ñaar topp ko nga defee ne day nangu li nga yor loolu bu ko defee dañuy def taxaluf retire arrière toujours la ñuy def parce que duñ jóg fi nekk mais dañoo war a nangu ne maam Cerno borom Daaru Muxti 40 kilomètres yi mu garu lu lu lu lu kër borom Daaru Muxti riir riir riir riir da ngay ne defarub parce que ab marché bu nu classé 10 personnes ki nekk ailier droite ailier gauche ak latéral yeeg attaquant yi mais tey bit kenn du ko maanaam mbooloo du dugalooloo bit kenn ay dugal mais ku dugal équipe bi am na ndam mais bu boo ko war a paas ko paas ku bëgg dugal nga def ko contre def contre son da ngay pertal sa yoon wi il faut que nu nu xool loolu xam ne ndamul équipe bi mooy kenn am ndam muy sëñ Touba bu nangoo ne sëñ Touba am ndam rek sëñ Touba am ndam parce que boo bëggee gotti maam Thierno gotti woo maam Thierno ndax da ngay jël maam Thierno jël sëñ ma Samba jël sëñ ma Ndumbe jël ñëpp jël sëñ Modou Sow ba ci sëñ Moutula dajale ñëpp muy sëñ Touba oto boo xeebee fisibal bi ba rocci ko ba ne fisibal bi boo taalee tàkk boo xeebee bale yi ba ba mu nawetee doo dawal bolon treize boo ko ubbee quatorze ku ne fa nga place yi sëñ Touba kenn mënu la faa wóotu nit ñi war nañ ko bàyyi xel te bàyyi farfarloo beeg di wa def nangam ak di wa xëcc sëñ Touba def sëñ Touba lu mu joxañ nga la xam nga ku toll ni sëñ Tuubaa bind ne lam yu xaalis nii ak lam yu faayix nii Ibrahima ma ta juuyoo ak man mës ta tàggoo man loolu loo lan la adduna mën a indi ba nga bëgg a yow lenn maam Cerno mës ta juuyoo man mës ta noppi bindal boppam ne bindal boppam ne ayyuhal mas bu wax bi xobbi naa bu fekkoon ne cofeel paaka la Cerno Ibra Faty mi lañ ci rey kon yow da dangaa war a nangu ne bu maam Cerno meleen yi nga ne defaru sëñ Tuubaa la bu sëñ Mandoumbe melee noonu nga ne defaru Serigne Touba la lépp daje di Serigne Touba waaye bu ñuy def ku bëgg a taxaw ñu def ko gartombe rek ku jóg daanu dara du dem dañuy mujj ci ñu dunu yilif ak dinu not ci lañ dëkk wax naa ko sëñ Ahmadou Bari wi tey ma ne ko fekk dafa demoon iraan def diskuur bu doy waar naar yi di yuuxu ca kaw di tudd yàlla ci bayit yi muy wax bi mu ñëwee sëñ Muntaxa na ko ponkal yi gën a ponkal lañ la daje dajale lool mais ndamul sëñ Touba la loolu loolu ndamul sëñ Tuubaa la mais bu ne tey te li gën a garaaw mooy dama wax ne kuy martu kenn du ko séddaleloo fi ne ñi ëpp ci ñi bëgg a jiite buñ ñu leen dox leen bala ñoo wut oto bu ndox ak gaasuwaal buñ la jëntee ak raccordé mbubb yuñ sol rek bit si biñ leen dox jeex kon ñi ko man ba noppi jiitu te nu ngoo def duñ leen bàyyi nu dox loolu loolu loolu moo moo mooy problème bi léegi boo boo doonee Gana Messere yaakaar borom dara moo ci koo wax mu ne Gana daal moom ku dul maam Thierno déet man damaa war a tafu ci maam Thierno yow nga tafu ci sëñ Maodo Mbékkee tafu ci keneen ki tafu ci keneen loolu mooy wone defarug sëriñ bi kenn ku ne ak lam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Khadimu Rasul tey jii euh, kenn ku ne ci njabootu sëriñ Touba gi nongul na cërub sëñ Mouhamadou Lamine Bara li sëñ Bara li sëñ Touba bind ci sëñ Bara sëñ Bara bind ko ci boppam jenn doomi sëñ Touba bind ko يقول ما نلناه من شرف من يأتنا يهوي أنوارا وأسرارا ومن كان مريدا من تلاميذنا كفاو رب العالمين معارا والنار خلا لول كنيو في من محمد الأمين لأن لير نبين في يب خبنا من تات يما أم من محمد الأمين دار كنيو في من دنا لدير لير أندار لير أجمعتم يلا كودون سما بتالي بين دو ام غاتي لولم سوارا لولو بوكو وخون يام تي سيغن توبا بيندول لومي ميل واي سيغن توبا مو بيندول لير فخلم يا مودو يا محمد لامين ستنال مقاما يقوي في جميع امثالك وان جميع الذين معك لا يرون في الدنيا والاخره الا ما يسرهم وينفعهم انهم يدخلون الجنه بغير حذاب فلا تشك في كون هذا من عند الله ورسوله ومني لولو سيغن توبا كو بيند خمال محمد لامين امغا مقامو نيبالاي ني واي ناغا mboolem ku ànd ak yow du gis ci àdduna ak àllaaxira lu mooy lu koy bégloo te ba ñuy tàbbi àjjana kenn du leen xisaab bul sikk ne yàllaa ma ko wax mu wax ko rasulullahi ma wax la ko yow Mouhamadou Lamine Bara te moo ne ku ne nangul na ko ko sëñ Fallu doomi sëñ Tuubaa la ba muy way sëñ Baara da koy tagg ba yàgg mu ne ko laa laa yu jaarika fil maydaani min ahadin fil xelmi wal juudi aw fi diini wal nasabi lefum yàlla mii kenn dawandoo wu ceeg yow Mouhamadou Lamine Baara du ci xam-xam du ci tab du ci judd du ci lewet ba ko sëñ Baara di fay dana da koy taggi da koy tagg ba yàgg mu ne ko sa bàyyi sëñ Tuubaa mooy kaashiful kurub maanaam njàqare yi sa bàyyi ko daan dindi waaye yow mii sëñ Fallu yaa doon sa bàyyi ci dindi njàqare yi ak tiitaanga yi xoolal gii rafetoo ak wii melawu jag ci jamono ni mu rafete ak wii tedd ngay jikko ak wii doxo ñu sell ñoom ñi fi nekkoon xuus ci biir mbandingum adduna ba jàll te amuñu benn gàkk amuñu benn taas tey ji boo demee daaral Daarul Muxti boo nee sëñ Mouhamadou Xawa Balla ñam bokkal sëriñ ñam bokkal borom Daarul Muxti kay koo ci koo ci wéetal di ko laaj kuy sëñ Modou Awa Balla laa wax dara ay rongo ñoom ko ci dënnam yéen a ngi déglu ngir mat gu mat ab xalifa te mën a wutu maam Cerno ay caaxaan du ko waxtu ba mu ko wutu doonul wutu waxtu yomb lépp ne fi lépp doy waar lépp taxaw mu fexe ba assumer ay responsabilités moom sëñ Modou la ko war ca digganteem ak la ko war ca digganteem ak euh, jëmmi njabootu sëñ Tuubaa gi lépp mat ñépp xam ko la ko war ci kër borom Daarul Moxti lépp mu def ko diine jëmul sëñ mu daaw ball ndax jumaa jàngi ak bokk jëmu ko waral ci biir këram waaye yoonu mu jëmu ko ndax liggéey ak jaamu yàlla mooy mandargaw yoonu murit ca loola la nekkoon ba jubóog boroomam la sëñ lu waxoon ne jubóo ak boromam tey kenn ku ne di seereel moromam loolu loolu la mag ñu baax ñu meloon waaye tey boo nee sëñ Mahamadan mii boo moo baax am ku mer te àdduna loo wax am na ku ñu mel man nag la sëñ Abdou Lahad waxoon ne na fonk kii ñëw fi yow ngir ki lay teggi ki nga xam ne bu ñu la tuddee mu du mooy bu sañoon doo fi ne waaye noo koy wottee ki nga xam ne bu sañoon nga ne fi mag ñu baax ne boo masaa ñëw tudd kenn danaan ak a baax boo nee diw ak a tedd boo nee diw ak a nangam boo nee diw ak a loolu lañ doon incarné di ko jàngale mooy melawu mat lii Mahmada sëñ Mahmoudan mii def tey jël cër yi séddale ko ci benn mela bu ne yàlla xam na ne xaw ma ko woon waaye sëñ Ahmadou wi léegi laa ko ma ne ko sëñ Moustapha am Cheikh Sidi Moukhtar maa ngi ko jàppee te sëñ Bass Thioro laa ko mu dem ba egg ca moom wax ko ko ma ne ko yow sëñ Ahmadou Badawi bii Sidi Lamine di def téeréem boobu te ko Cheikh Sidi Moukhtar nga def discours ba keroog ba nga defee discours ba ba nopp booba sëñ Moustapha bàyyee moo doon xalifa sëriñ Touba yow ba nga waxee ba nopp bay wàcc gis naa fa ñu sant Mbàkke sëñ Moustapha mag leen bañ lay nuyu mbaxana lañ la nuyoo waaye sëñ Moustapha ak la bàyyeen di doon xalifa ak la muy weex weex ak bi jaaw yow ba nga wàccee daa xam ne sëñ Fallou sa bàyyi mu simi mbaxanaam nuyu la ma ne ko calaa ko jàppe ba nii ndax yoon wi dafa am lu kenn wurut a changé dafa am doxin a changé mooy fonkante boo xasee dañ dara di sutu tey ji yàlla xam ne ne moom laa doon wax sëñ Ahmadou Ba leen téléphone te xawma woon ne booba sax ak njabootam dana dana dana toog fii ci wet gi waaye la la yàllay fayee mooy nga dem ba mujj yilif lépp mu daje solo loxo parce que ku nanguwul a ku nanguwul ku ku ku bëggul wutul du am kon loolu lii nga def moom lañu war a def sëñ Touba mi sëñ du mais fa jóge soli na barki démb lañ ànd dem ci Cheikh Abdou Samad moom sëriñ Chouaïbou keroog sëñ bi lu ne wax nako ba jël ay teranga yekiti ko jox ko mom me ta lolu ab ab yaram ak teginam tegginam ba ma woyé wax ma dama ne ko yow mi ma yoni mok seigne Mourou Mokhtar mo yónnee yam ci man man ma la koy doxal ndax do kilifa koy xaar do koy tok ci basan di xaar kenn dañu wara dem toppatoo ko ma dem ci seigne Abdou Samad wax ko seigne bi dafa waye mu genn lal ay basan fofu yépp tok ci campagne bi ne ma yaa tax ndax sa gan gogi ñu la ma la bëgg a teertoo yemul ca teeral ma ko teralal ma ko dem mu yëkkati teraanga jox ma ne ma joxal mako lola yaram bi ak melom wi mako ko may tab ay way juroom la andal keroog kenn ku nekk yëkëti kaddu yooyu señ dan ko noo lay sant bu baax bis bi dañu wara ñew and ak bokk ko ndax du question sax ñew di waxtaan ñi nak yalla mo nu boole euh it ñu baax bokku darul muhti xam nga ay géwal bu jëkk lu ma sa yàqu ci mpénc ab géwal a ko defar géwal du parparloo du wax ci kaw wax ci suuf te man loolu la remarqué ci yéen ngeen àndandoo nekk benn doon nit ñu yiw loolu nag lam leen di may mooy nit ñi bëggal leen seen bopp ndax defe naa wàccuwaay bi ngeen am ci biir dëkk bi seen jikko rek a leen ko may man looloo tax ma xëccal leen sama bopp euh, li taxit yàgg na ma bëgg ab géwél mais aw ma woon ñaar dërëm ma ko may <laughs> aw yi sax bu leen mayee bu ñu ci coppatee jox ma jël <laughs> yàlla xam na ko am na am na géwal moom a samay am mbubb yàlla xam na ko am boobu mbasin mosuma ko am sax am mbasin bu bu wert la ma mayoon du ma ko fàtte boobu maa ngi ñëw mu ñëw jël am mbasin bu wert ma ko ëpp na ma sax ma wàññi ko booba laa jëkk a sol mbasin ab cuub bu wert am géwal la ma ko mayoon loolu amna na ah. Ah? Hmm? ah loolu xam nga àdduna la simplicité est un art nii laa mel jërul wax daal hmm? waaye sëñ Tuubaa li tax mu neex dalay jëlee ci suuf yóbbu la ci kaw tey jii bu ma yoroon benn junni du ko joxe dama koy dama koy ndax sama ëpp na ah ginnaaw mën naa mën naa toppati joxe ay julli FM ci 3 te ab day ak di wax sogoog yow mas naa ko wax benn benn géwal mu ne man maay géwalu jàngkat yi sadd ma ko da am nga jàngkat yu lay may xam ci am xam naa ñoo xam amuñu néeg amuñu kon boo wàccee sa dara dina may géwalu jàngkat yi du du du kee moo war a gis ne moo tol noonu mooy géwalu sëñ Tuubaa nga ndax xaside yi la ñuy yëkkati kon buñ toogee ngeen di ngeen ngeen ngeen di wax kii wax fii kii wax fii nit ñi coowandoo loolu amul solo géwal moom ñaar a koy bañ mm-hmm. ko mutu tagg wala ko yul ñaat dërëm yoo ko jox waaye boo amee jaloore moom ku sañoon dégg bëkku la ko bëkku ko kañal sëñ tubaa ab géwal sëñ Cerno Gelo nga nettali la ko mooy ba mu ne tëll géwél na ko mbàkke fi nga xuus jaar takk jàll ko fa mas a takk jàll jàllut sëñ ne ko ana ko tàmbali di koñ mu ne maye leen ma ko Cheikh tàmbali di ko may ba yàgg mu daal di yuuxu na ko mbàkke may mayel leen ma ko dañu nar koo rey boo ne woon rey leen ma nu may def keroog keroog keroog Cheikh Anta dana ko lu sa xel jàpp may naa la ci fukk loolu ko lu sa xel jàpp rek may naa la ci waaye kañ googu rek moo moo ci nekk loolu it day leen ci continuer adduna nag ku fi bëgg a nekk te bañ ko la wax dara ñee teud ci lé sax dañ leen di wax dara neew yi ni sul sax dañ leen di yow neew yi manam kën tek ci jaat gi deñ yalla xam dañ leen di yow dañ leen di tek ci jaat gi gun leen ñu tambali ci ñoo ah di de defon na at muy kër ay sa waay ay bu xamone fi lay muñ ñi ngi koy jow fatte l'ikhlas yi ñu ko wara ñaanal ta Cheikh Abdou Lahad Mbacké ku la dakk jotu la lu mu for sanni la ku la dakk jotu la lu mu for sanni la te du fi amé ay wax du ko weddi boo bëggee yéeg ci escalier boo demee ba ca kaw benn waaye ne la doo yéeg nga wàccaat ba ci suuf na ko fii laa jëm mënoo maa tee yéeg mu ne da wax rek nga yéegaat mu wax la ko sa condition day jeex da ngay yéeg rek bu la gisul xam ne yaa ngi ci kaw te ab murit nag bu ne war naa ngemee critiquer mais rawatina Cerno Ibra Fati borom daaru mawti borom daaru dégg na lu ne borom daaru gis na lu ne 10 août 1895 di samedi ca Mbakke Bari ba sëñ Tuubaa laxasee di ko dénk dana ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom mu yeggalee toolam jàpp ne dana déqi ba dana ruuj ba dana ba dana góob ceddo yi sàmm tool yi mu jeex takk ci guddi gi mu sëf ay bagage ay loo ak i mbaam sëf ci ay bagage am ànd ak njabootu Sëriñ Tuubaa ba mu nee wëriñ ñu taal këru Mbàkke Bari gi mu bëgg gestu xelam dem ci na nga na nga gone da am jom Sëriñ Tuubaa na ko bu Tuubaa jàppandee bu jàppandee fu soob yàlla fu mu jëm ñu ne ko du fi ba darul mën naan borom darul moxti ñëw na fa bis boppam. dox leen ci Thierno dox leen ci Thierno bàyyi leen xoole bi. kay Thierno jàppal dox leen ci Thierno lépp Thierno ay jox leen leen yaat nañ ko ko jox addiyee ko addiyee Thierno. sëñ bi waaw bala ñu jot rek Thierno képp dara tegoowu dara wutu ci dara ngir bëgg ci Touba rek ay ñëw leen barke borom Touba Thierno. dama ne Ceerno ah ku mënta yéegi mënoon na bës ku daanu Ceerno kon loolu mooy wane rek fi jaar toog naa fii ci kër gi maag sëñ Cheikh Abbas ci borom man ak rek sëñ bas di sëñ bas di wax may am yi ma koy wax ci maam Thierno mu ne am na bis ci ceen jolof am ñu toog di wax borom daaru borom daaru maanaam maam Thierno maam Thierno nangam lu ne wax ba yàgg sëñ Tuubaa ne dënd bañ daanee mu ne Thierno de nu mu mel nu na nu mu mel rek nu na kon ku ko ku ko wax dara sëñ bi nga wax dara bi am na koo xam ne ba mu koy tagg ne jikkoo mooy alxuraan ba muy jeexal ne boobu kulli aw saafil xadimi daani yëpp jikko joo gis ci sëñ Tuubaa rek jikkoy borom daaru mu boole ngoram boole jomam fu mu bëgg a sippi bagaasam ñu ne ko doo ko fi teg ndax jàpp nañ sëñ Touba te yow mii lañuy jàpp teg ci loolu dal ko di ko yabal ci béréb yoo xam ne ak mbay dee la ku fa dëkk faatu wala sa njaboot faatu mu njabootu sëñ Touba gi sëñ Mouhamadou Yeddaali génn àdduna borom daru sànni ab deram lal Cheikh Moustapha tawat Serigne Fadilu tawat Cheikh Mouhamadou Lamine Bara tawat borom daru julli ñaari rakkaan ne ñaan boromam bu sëñ Touba naree ñëw ma di ko laaxan kenn ci njaboot bi ñàkk bakkanu soxna Fayet sama ndey ba sëñ Modou Awa Balla ma ñàkk bakkanam ba man Cerno ma wuute ko loolu loolu wane na bëgg sëñ bi bu bëgg ak njabootam noonu la ñuy def bëgg sëñ bi bëgg ak njabootam te ba sëñ Tuubaa yégee ne njaboot gi la ñoo tawat ñaanu ngir kenn wér dafa wax rek Muhammadul Mustafa bi yeddi rasulillahi Muhammadul Fadili bi yeddillahi Muhammadul Lamin bi yeddil Qur'aani Mustafa nga ca loxob rasulillahi Muhammadul Fadil nga ca loxob yàlla Mouhamadou Lamine ma nga ca alxuraanul karim tawat ji lu man na ko def ci ñoom mu boole ngor gi boole jom ji benn dëkk bu sëñ Tuubaa ma sa sanc borom daaru gestuwaat ko dem sanc ko amul dasa sin daaru salaam wasa sin Tuubaa bay sa sin Mbakke Mbakke Baay dëkk bu nekk borom daaru fa jiitu sanc ko te ma sa amul dëkk ba 1912 sëñ Tuubaa dem njëriñ jox ko ma sanc sanc sanc ab dëkk ma sa dellu ginnaaw ma sa ma sa goree bi ma sa wor ma sa jaxase sëñ Tuubaa ak lenn boole kook dal rek fees dell te lepp dajé ci mom ba ñepp wagal ko ñepp xam kon aduna bi ñu nek kenn ku nek na fexé ba ak course la seetaanum kessé ak mëna taccu taxu taraw da ngay fexé ba jëm ña nga tollool gën ñepp yombut way fa nga bokku bu la kenn gënut mu doy te señ juma mom lim yor mi ngi fi ku ko sakko na ko ñee doon sakkoo am ca way tok di sétan taxu a jot dara mahmoud Mahmoudan gërem na la bu baax yalla na yalla samal nu ko nuko nit ku baax nga sëñ Mahmoudan sëñ mi ku baax la bu baax la buñ ko laajee kuy sa turandoo bu ne yow ñëpp xam ne say jikkoo ngi ci moom ci dal ak yaatu ak muñ ak xajoo ñem ñëpp yow yiir ñëpp suturaal ñëpp sa kër gii bu léeg bëccëg suba ngoon ñëpp a fi wàcc doo bodde doo génne ree rek ak ñaanalaate te la labiru gi yaatu yaatu ak tabe ga jubóog sa borom ngee ko raw ndax man loo ma mas a wax gis naa ko te yaa ma wax ñaan naa sëñ Modou Awa Balla ba mu nungul ma li ma ko ñaan ci yow loolu man xam naa ne xam naa ne looloo wér kon nag noo ngi noo ngi wëlbatiku di ñaanaat nga yàgg fi loolu te wér sa bëgg ci sëñ sëriñ bi yal na am sëñ bi bëgg ci yow it na am hmm. képp koo jaxasool sa jikko gàcceel na ko ndax xeeboo kenn ku la jub si sa bañ lay jëkk seen jataay bii rek wane na ko la ma waxoon barki démb ca Touba ñu bari di kaas ma ne ko ma ne sëñ bi samat am na sëriñ yoo xam ne dañoo seexlu taalibe yi ku ne di ñi di ba dagal la fekk na noonu la demee rek ndax man ci yoon wi laa bokk nag jëggaani yu ma ci musumaam maami tiijaan musumaam kenn lépp ay murid lañ doon masa doon ay ay ceddo lañu woon nag ay ay murid rek lañ ko lu topp si xaw ah, ko ñi ñi ñi ñi leen ah, waaye yow yow doy na ci misaal diwa baax nag yàqul dara noo wax rek am na ko lu mel fi ne boo nee am na ko njool ñi njool boo nee ko gàtt man mii ma gis sama bopp fi ne boo nee woon ñuul daarooy gis ah, balaa nga xam nañu loolu boo bëggee réyal mbir noonu lay mel boo nee boo nee sëñ Mahamad bis bii jàll barki dem ba léegi ndox maa nga des ca kër ga teraanga yaa nga des ca kër ga xam nga ne bu ma amee maqaama mu toll ni doomi sëñ mu daw bala ñu ubbi sama méeg yendu fa tëdd ci sama kaw lal ak ni ma taqe te tilim te bon te yées sa daraja rek nga ànd ak moom Mbàkke ak sa baax waaye nag yëg nañ loolu nga nu defal ndax nun doo sunu xarit doo sunu moroom doo sunu moroom maam doo sunu moroom baay waaw sunu sëriñ nga te mat ñu ko sëkk kon boo baaxee woyef loolu di am ah man de waxuma la waaye ku ne xam naa sëñ Mahmadan sax danaa la tàbbal sama biir xol waxuma laa ko bokk ci yow kon nag yàlla na yàlla yàggal maa ngi ngeen bal ma àq yéen ñëpp na ngeen ma jéggal ci ci ci kaddu yi maa ngi sant sëñ euh, Modou sa noo ngi tuub ni ma ko waxee circulation bi ni ko gaa yi jaxasee dafa xaw a lëj lool waaye noonu du jaawalee ngoos ba addunay tukki barke Xaadimu Rasuul ay taalibe rek la ñuy doon barke Seexul Xadiim duñ bew duñ fuuy duñu réew duñ yëg suñu bopp barke Xaadimu Rasuul situation bi moo demee nii te présenté wu ne kii mooy diw kii mooy na noo ngi leen koy tuubal ci kanam adduna bépp ngeen baal ma ko ci toogandoo gi tolloo waralutug maas ndax noonu moroomante wuñ ak yéen maasante wuñ ak yéen tolloo wuñ teewun ak yéen noo ngi seen waroon ay ndëggu ndax nunu mel rek wax seen baaxu maam gi mosuma tudd fenn sama maam ndax man sàmm laa xam lu mu doon def ak mën a fetal ak dëgëru fit loolu laa xamoon ñoom ak man a defar tul ak man a fexe ba defar gàllaaju cat ak ay seytaane yooyu waaye xaw ma leen ci sama maam lu ma wax am rek ci seen maam la woon kon du yàgg bañ bañ dew ba reew ba diir leen mbagg te it fas yéene teg suñu bakkan ci ku leen joxañ sëñ Cheikh Awa Balla mii fekkee na ko barki bu ca Linguère toog nañ ci jataay boo xam ne ba amee kuy tëb di dal naan sëriñ si nangam nangam nangam oh. discours ba ñu may def loolu dama ko sensé ma ne ko bàyyi leen seen yaradiku ak seen tëb geeg dal te mooy tut média ku ci wax ci télé ak ñaari yoon ko rajo ñett wër la ngay waddaka dal di wut foo dëkk ak nangam da ngeen a yaradiku te bon waa kër sëñ Tuubaa ba lakk bopp loolu la nit ñi bëgg bëgg ak lu ñu loo rëy rëy daraja mënoo taal bopp ñeex waaye bu ñu la sottee ci biir bopp jël xalu sawara teg ci bu boole ñeex ak bopp lépp taal. te sëñ Tuubaa kat du bëgg nit ba def ko perkaal ba def ko jasineer def waa këram bëgg mënta nekk. loolu mënta am kat sëñ Tuubaa waa këram lay jiital léegi la nga dégg ko naan li sëñ bi defal diw defalu ko waa këram déedéet kum mën a doon te santoo Mbàkke lu sa daraja rëy rëy boo gisee ko sant Mbàkke sukk loolu koy doy na daraja ginnaaw loo bari doole doole sëñ Modou Diouf mais de tey bari na ñoo xam ne bu yoon wi déclaré woon guerre bu taxawee seen kam wet gu mu féete mu am ndam te xool ko yaram bee toogaayam be te bu génnee fii ay dàllam du ko ŋabbu fu mu jëm nañ koy gàddu lii loolu la nit ñuy xool galeti sëñ Tuubaa du caaxaan te wax daa gaa ñi bu gisee kàdd dañuy kontaan fi ne tey bu ne woon rat gi sëñ tubaa ci wéeru woon ku dee ñu suulaale ko ñu ne texeel feggu xasida bi sëñ tubaa ko bindoon ko mbubbum sëñ tubaa lallu a foor lu ñuy lijjanti mu ne su ko démerde ay pexe bu doon wala ñu koy xeex fi ne am na mbàkki ma koy amul lu doole kon ñun ñi danañ xeex rayante ko ba sant mbàkki mais mënee su mënuñu ko di mënuñu koo rayante ba sant ko waaye sëñ Touba bu bu comme comme comme te Cheikh Ibrahima Fall dane woon sëñ nag ma ñaanal fu sa fu sa càng gi nekk sama njaam gi yegg fa te sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall nee na kër sëñ Tuubaa ñaari cëri fam cërub sang ak cërub ngàllo kon nangu dib jaam bu sëñ bi dandoo rek laay doon sang man fi ne bu ma bu ma xoolee parcours bi ma wër ab seex néew fa ku sant Mbàkke néew may sëñ bi man la gaa yi rang man la ñuy siyaare man la ñuy ñaanloo ba général yi ñëwee nag ma delluwaat dellu ci gëri bi waaye buñ fa nekkul maa fii nag ku bëgg loolu ku bañ loolu nag ba bëgg a dagg rang jiitu waa kër sëñ Tuubaa ay saaga la lay jural ak i noon ak mbokkaal yu bon ak nëbbutu di làqatu ak naan dañ ma bañ fekk kenn bañu la waa kër sëñ Tuubaa yi duñ moroom man de kum mën don nga contrôler dina affronter yow melna ma xex ak yow melna la laa xas melna la laa saaga alaykum wa rahmatulah سكينة moom ci boppam mooy sabab jàmm moom sëñ bi tey nag bari na ko am jàmmit te sëñ bee mën na ko sax umpule waaye moom sëñ bee tax moom jàmm te bu doon koy xalam sax bu weetee tuuti xalaat dana xam ne sëñ bii moo tax moom jàmm loolu it mat nay bàyyi xel te di ko xam euh, lu tax ma ne sëñ bi mooy jàmm xam ngeen ne lislaam ndax salam, te islam moy jamm salam ci lay bayiko salam di jamm ci lan la l'islam taxawé yonnati bi ali salaatu salam dafa ñew ngir régler jafe jafé yi ak problème yi nit ñi nek suñu borom bi mu saké jamono xam ngeen ne dir bu neew la jamono tambali indi ay yéen a Media FM domi bàyyi sañ a mbokam nit sañ def nangam nit sañ def nangam gëstukati siire yi wala gëstukati yi nga xam ne ñooy gëstu taariix xam nañu loolu may jinj di ko nettali lu mu doon te na ci loo xam ne alquranul karim moo nu ko nettali jëmmi loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko suñu borom yónnee dane ko dama laa yónni ci ñëpp xeet bu nekk dama cee yónni ab yonent waaye yow nag wa ma arsalnaaka illa kaafatan linaas dama laa yónni ci nit ñëpp ba noppi yónni la bëggal nit ñi jàmm tax mu ne ko nag li tax ma yónni la it mooy nga nekk yërmande moom yonent bi alayhi salaatu salaam jox ko téere bi gën muy alquranul karim jox ko diine ji gën muy islaam mu matalal ko boppam gërëm ko def ko it muy xéewal gi gën a mat yonent bi salaahu salaam ñaar fukki at ak ñett woote na ko ngir taxawal lislaam alquran wàcc ci moom mu ànd ki saxaabaam di tabb ci biir xuri xare yi di takk ay xare di jàmmaarloog nooni diine ngir yëkkati baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba message bi nga xam ne moom la ko suñu borom yónni woon ak gi mujj ci ak dundam moom sallallahu alayhi wa sallam di ko tuddee xajatul wadaa bi mu taxawee arafat di xutba dafa am wax yu baree bari yu mu wax te yooya mu ngi ñu doon laltaayal tamhid la mu muqaddima la avant première la ci luy laltaay jàmm ci won àdduna ni war a dunde ndax ñu mën a am loola inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum aleykum haram xoola ñett yooyu mu tënk tey ñett yooyu defe naa safaaneeg ñett yooyu moo indi li ñuy tudde ñàkk jàmm yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point sunu rajo TV point com seen alal seeni der araamante na ci seen biir yéen jullit ñi bu leen di tuurantey deret bu leen di yàqantey der bu leen di nungoontey alal di lekk alali jàmboor ci loo xam ne ak noteel la lekk alali jàmboor ci loo xam ne nax ko la ñett yooyu def naa bu ñu ko xooloon rek bari na lu mu indi ci jamono bu ñu demee ci di ci jéxal dara waaye mu digaloon nu ñu jottalil ko message bi mu ne kon na ngeen ma jottalil aaya bi wàcc borom bi subhanahu wa taala xam le ne lislam mat na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaam diina waaye ginnaaw yonent bi salaaw salaam rek la tàggali koo tàmbaliwaat salaaw salaam bi mu fi jógee xam ngeen ne xare bi njëkk am ginaaw yonent bi ci sayyiduna abou Bakrin la jamono Seyduna Abu Bakrin buri da ñen ci jullit ñi fetteerlu ne duñ joxe asaka man nañu julli man nañu wor waaye duñ joxe zakat sayyiduna abou Bakrin ne len déet li fi yonent bi baye wonit nak kuku lungu wu la def sa bakkan xaj na ci ñaareel ba moy sayyiduna amr ibn khattab mi khalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al faruq xam ngeen ne biñu koy fat moy khalifa yonent bi sallallahu alaihi wasallam boobu muy kilifa ak jullit ñi tudd amirul muminin kero bi ko lu lu ibnul muxiira di jam boobu fekk na mooy xalifa bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tàggalikoo gi mu ngi gën a amee ci Seydina Ousmane Seydina Ousmane ibnul Affan bi ñu koy faat juróom ñett fukki at ak ñett la nekk xalifa bu jullit ñi di amirul muminin ñu xëy cercle këram yi mu tudde yow mu daar bis boobu lislaam du ko fàtte cercle këram nanguwuñ benn julli dugg ci biir kër Seydina Ousmane ibnul Affan tere ko Seydina Ali Abdullah ibnu Zuwayr ñëpp ñu tere leen tàbb ci biir kër gi ndox mi nga xam ne ndoxu Madina Seydina Ousmane moo ko jëndoon ñu tere ko ndoxu Madina bi du ko naan dagg ndox mi war a tàbbi ci biir ngir moom tam nekk xalifa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba mujj ñu tàbbi ci biir kër gi cor soxnaam fekk ko mu tiim alquranul karim di ko jàng ñu caw ko ay jaasi ba mu fàttu te doon xalifab yonente bi toll ci juróom ñett fukki ak ñett deret ji di walangaan nga xam ne boo demoon tey Istanbul euh, deret yi Seydina Ousmane ji bi muy rogalaat mi ngi yem fa sa fa fii yekk fiikumullah foofu la deret ji yemoon bi mu la toll fa sa yekk fiikumullah asraar yi yu ni gaa yi dox ci lasraar xam nañ lan mooy fa sa yekk fiikumullah yéen a ngi déglu Baol Média FM sur www.sunuradiotv.com Sëñ Tuubaa nee na waxtu wi ñu koy faat mi ngi jàng alxuraan wa fiihi moomu jammalu Ousmane man qad qatalu wa huwa idan yurattilu kitaaba mu'dil azami waxtu wi muy jàng alxuraan bi mu fi bàyyi ko moom Seydina Ousmane Muawiya ibn Abi Sufyaan wax ne du jaayante ak Seydina Aliyu te xamuñu ku rey Seydina Ousmane léegi affaire bi tàmbali nag indi ay ay kalam ak séddali ko ci xaaj waa Cham ak waa ñeneen waa Kuufa waa Bagdad waa Madinatul Munawara yëf yi tàmbali am nag noonu yëf yi yii jëm yi parti yii jëm yi parti ay junni junni junni jaayante ak Seydina Muawiya am ñu bàyyi Seydina Ousmane Seydina Ali سيدنا علي من نك خليفه بي يونس بي دي دوم دي باي تخام دوم دوم دومي بايام مام علي الصلاه والسلام مومن ني نيو ديف عثمان ديف كو عمر نونو لا نيو كو ديف دا خامل ابن المرجم موكو جيم سي كوفه تا فك بوم بوي موي خليفه بي يونس بي علي الصلاه والسلام كون غيناو بي يونس بي باي كو رك لا تامبالي بروبليم ام رايانتي ام غيس نغا داوله يي جو داوله الامويه داوله العباسيه صحابه يي xam ngeen ne dugalal Ousmane Assane dugalal Ousseynou sëti yonent bi alayhi salaam ñu faat leen nga ñëw andi ñi ñëw ngir dundal lislaam ginnaaw taabi'aan taabi'aan yi mu jaddidu nii ñëw kenn ku mas a taxaw ñii rey nañu leen ñii tabbal nañu leen ci ay kàmb ñii boole nañ leen ak ñii sax teg nañ leen ci ay sën boyal leen jël mat sotti leen taal leen ñii ñu pendre leen lu ne def nañ ko ngir bañ baat bii di lislaam baat bii di dëgg yëkkati ku jëm kaw waaye borom bi subhanahu wa taala daf leen a waxoon ne wallahu muttimu nuurahu walaw kariha alkaafiruun loo leen lànk lànk lànk mbër mi nar ub làmb ji danaa ko samp te doo leen xam lislaam dana leer te doo ci mën dara lislaam alquran yàgg naa dégg dégg déggal yuriduuna an yutfiu wallahu muttimu nuurahu walaw kariha alkaafiruun fay diine daal mooy seen yitte mooy seen bëgg-bëgg waaye man danaa fexe ba diine mat te kenn du ko mën a yàq jamono di wàcc ñiy woote diine di woote diine ba tàmpi ci sunu xaara bi di continent Afrique ne kon AOF juróom-ñetti réew composé ko al mujahidul akbar Cheikh Omar Fouti Tall al waliyul kaamil nga xam ne wilaayatum lu tax la moom Cheikh Omar Fouti Tall lu tax mooy moom moo jëkk a ne kii moom jamono Ahmadou Bamba lay tudd mag Mbakke lay dëkk moo ko jëkk a d'annoncé mu Cheikh Omar Fouti Tall defe naa boo jàngee téere bu ñu tuddee diggu Cheikh Omar Fouti Tall ci Mbakke loolu misaal lañ Cheikh Cheikh Omar Fouti bi mu duggee wa laaj suñu borom kii moom jamono da ne kii moom Touba kii moom dëkk bi tudd Touba ndax Touba dafa beru benn yoon la ñëw ci alxuraan genn garab la ci àjjana sëñ Touba ko moom. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم فانا ني جانغال القران غيساتوما غنين طوبى كو تخ بي الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب مو ملي جمي طوبى غراب لو نيك سي بير ادنا ني بري خمنا لول ادنا بودون سيتي سي بير ريوي با سي افريك دا فا فك دك يو خمنه am nañu touba waye touba gi suñu borom doon junju du touba goge boo demee Guinée Conakry fekk fa touba yenen dekk amna touba waye touba gi ki koy moom mom jamono moy seigne touba motax Cheikh Amadou Fouti bi mu ñëwé gis seigne morante seli way diru Cheikh Amadou Bamba dane ko yow ki mom jamono di atte jamono di tax nit ñi tabbi aljana ëlëk yaay doon bàyyam leeram yaangi japp ci sa yi ba japp ci asamaan yi ñaar bi mu gisee soxna jaaratullahi ma Mariama Bousso yi loolu la ko wax am na lu mu fa batale woon it loolu moo tax sëñ Tuubaa di wax ne ku am benn tomb ci yàlla ci wilaayatu xam na ki ma doon baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni li xaarixil baraay aaya moo tax sëñ Tuubaa borom cërub yàlla du ko diingat walli yu du diingat sëñ Tuubaa soltanib militaire nag taxul di soldat taxul di général taxul di commandant wutu sa bàyyi ta di doon walli yor kolit taxul di sëriñ nañu xamé yëf yi bu baaxa baax ki di nga da ngay xam ki mu yene gi de lu baaw la di yalla france de la nungu sa mbir do di nga señ tuma ndax awliyaullah yi ni pneu wata lañ mel pneu wata ñoy tourner lo bu ca benn pané auto bi taxaw ñu changer duggal benen wal yu wedd morom al motax duñu weddent ki xamul nak li xew man nay wedd waye ki xam dara mom motax ben ben ben nitu yalla bu am ak wilayatu moo xam ku bokk ak sëñ tubaa réew mi moo xam ku bokkul ak sëñ tubaa réew mi ku weddi mbirum sëñ tubaa amut wala yu laa wax nag koo xam ne nome nañ mu bokk ci yëf ya loola laa wax ñoom kon nangu nañ ne sëñ tubaa dana moom jamono mooy ñëw bi sëñ bi ñëwee yi ngir nga xam ne sëñ tubaa mooy jàmm mboolem Cheikh Omar Fouti Tall moomu kotam mooy turam maanaam ayin gi mooy juróom-ñaar fukki at yi dund même gi ñeent fukki xare yim xare ñaar ñaar réew yim dox fi ne kot turam mooy secret ci la at yim dund nekk yim xare ci la nekk dëkk yim doxit ci la nekk ñaata xare la Cheikh Omar Foutiyou Tall xare bala 26 février moo Hadi ak Makki ca Bandiagara almaami Abdou Khadir Ahmadou Cheikhou Maba Diakhou Mouhamadou Lamine Dramé bi muy dajeeg tubaab bi am na juróomi junniy taalibe ñoo xam ne wëral kajoor ak bawal ak siin ak saalum ay xare lañu fi takk kenn ku ci nekk jàmmaarloo ki noonu ànd ak say bokk ànd ak ña lay jàppale ci diine lislaam ngir lislaam mën a taxaw waaye teewul bu ñu wootee loolu ngir lislaam jooju taxaw ñu defe ko ci ab rayante ñu ëpp tubaab yi dañu leen di not ndax ñoo leen ëpp ay gànnaay ëpp leen ay pexe ëpp leen doole jàmmaarloo ñoom mën leen a jëlee seen bakkan waaye ñu nekk nag ay shuhada ay martyrs yoo xam ne tey ñoom dañoo jël seen dund jël seen bakkan tay leel ko lislaam ndax waxtu wi ñuy jox lislaam seen bakkan ngir di ko ñakk am na ñoo xam ne ñu ngi jël seen bakkan di ko jox adduna. yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point Baol Média point com lan la ci ko ak misaal yi ci wane ni kii mooy jàmm. mooy bi sëñ Tuba ñëwee daf li ñuy wax reconnaissance. ak am acceptation sëñ Tuubaa dafa am acceptation mooy sëñ Tuubaa li ngay xame ne mooy jàmm mooy ku bi nga ñëwee li nga yor da koo nungu nungul la ko maanaam nungul la sa tiijaan nungul la sa xaadir nungul la sa chaacheli yor sa wird di ko jëf di sang di tagg sa sëriñ nag ku ne nungul boo demee ci mbindam fekk ci turu Ahmadu Tijaan yi ba egg ci waxam masaayix yi Sayyidina Jilaani wa chaacheli yu maahu Tijaan yi بولاي واخ نيغي خامل نيو ايمال في الفقه ها المليكي اك شافعي انا في احمد لم في فكون تي تراس سيدي توبا دا فا نيو ني مان داي دانا توب تي تانكي احمد يانسري دانا توب تي تانكي عبد القادر جيلاني دانا توب تي تانكي شاشلي بومي غينديكو تي تي تي فقه ماغي جار امام مالكي ولا امام حنفي ولا شافعي ولا حنبل كو نيك سيدي توبا نون كو دون بروم خام خام تي ريو ميت سيدي ورلم فا جونتو بين العلماء والاولياء واخي بوباما fu nit ku baax nekk yor dara di tomb lumière lay doon boo xam ne mi ngi mel ni kuy dox guddi yor téléphone buy cliquer ni muy def lu leen di sori sori seen am na luy xëy xëy fu dara nekkoon noonu la ko yàlla di wane sëñ Tuubaa mu di ko gis. moo waral bari nañu seen i maam taxaw seen bi sëñ bi dem fa ñoom jaxasoo ñoom bari na ñoo xam ne du ñu ay murit tey sax te ay barkeelu sëñ Tuubaa nga seen biir kër ndax la fa nekk di yëngu la sëñ bi gis xam ko dem seeti loola. ba dajale yëpp xam ñooñu lan moo nekkoon seen taxawaay ci li ñuy wote mu door ne aslaxta xaali bila irtixaali bi andi ayaali bila bukaay jëkk may laxas di wuti li may wut la yàlla yéwénal samay mbir man sëñ Tuubaa ba mu noppi nag kon na sama njaboot jub li ma bëgg nañ ko am nañ tege ci lislaam te bu kenn jooy kon non violence bu coono am ndax wa bi jaddidu sabil bi lay addan awala bi yoon yi gars yi doon xàll man mii lay leeree man Ahmadou Bamba maay fexe ba lislaam la nay moom boppam ko yàlla mucc ki gaañam ak ñoom ci jabaloon la ñuy bëgg ci ñoom man mii maa koy def man Serigne Touba te kenn du gaañu kenn du xeex kenn du damm kenn du réer fi ñu ko tëggee laa leen di bàyyi tëgg koog ñoom fu leen neex daan leen del si jox leen ndam li ngeen moom seen bopp wa bi yu jaddidu sabil ci man la yoon yiy leere bi laa idanal aw alami nag mooy kenn du loru mosoo dégg maam yi kenn ñu ne xur sàngam bi sëñ Tuubaa dajeeg tubaab bi maam yi diw damm na fa wala maam yi diw dee na lu mu mën doon mooy assumer responsabilité yi boppam biñ ko tuumaalee ne ko da ngay jihaad yi da ngay yor ay gànnaay dégg nga lam leen tontu yaa jummalanta wala aw waalidun axrajtumuni naatiqiina bi na nii abdun ilaahi wala nii la mu mujaahidun وظننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ذو قلا ويهاجم نيجي دما يوري غناي نيجي دما دما بغا جهاد كن كو ني سي يين بروم مانيل لا بروم كنيام واي مقالكم حق فاني عبده وخديم عبد الله والهامد اني اجاهد بالعلوم وبتقى عبدا قديما والمهيمن شهيد دا فا نونغو ني داي داي جهاد واي نانا مان سي لان لا جهاد دوما يور صاح بانت بimay jihad ban seigne touba moy damay fexé ba jël alquranu karim jël ahadis nabi sallallahu alayhi wasallam jël sama mbind ñu wuute ay gànnaa yu may jël kitaabati naabat ani salaahi wal jawalaan li sabil salaah kon sukkandikoo na ci melo yooyu bi mu ñëwee ngir xam ne nit ki boddikonte day waral ak bañante day waral ak tàggalikoo day waral kenn ku nekk gis boppam mu fexe ba nit ñi bañ a boddikonte fexe ba nit ñi bañ a bañante fexe ba nit ñi bañ a tàggoo mu dàq fi li ñuy tuddee ak taxasu bi mu ñëwee dafa wax ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida siwa intama ila aljilani aw intama li ahmad tijaani aw li sima huwa min alaqtaabi id kulluhum xataxna al sawaabi wa kulluhum yad'u almuridina ila taat rabbi arshi ay suma jalla bil istiqamatin fala tasal ahad minhum wala tunkir alayhim abad am na sew sew nag bu ci nekk ab sew sew a ngi ci sëñ Cheikh kullu muridin yuridul murida li hadratillah sëñ Tuubaa dane wépp wird wépp wird wu waay jàpp mu jëm ci yàlla baax na moo xam wow tiijaan la moo xam wow xaadir la moo xam wu mu doon ndax kiy woote te yàlla la bëgg a jëme bu ci xeeb kenn bu ci bañ kenn nee na baax na léegi-léegi da nga dégg ci ku ne ci télé bi yëpp a yem déedéet. yéen a ngi déglu Baol Média FM ci 3W point. sunu rajo TV. point com autoroute APS gën a gaaw gën a talli. baa nga bëri doo daan bëri nangam nangam yoon yi jëm ci yàlla bari na waaye bokkut nañuy bàyyi loolu xel xel ki ki nangu ne kay yëpp a baax nangu ne ne yëpp a baax ki sol jasineer sempal ko xottee douze mille dix mètres di cent vingt mille nga nga sempal ko. rafet na jasineel nga sol pire la waaye ki deux fay cent mille moo la gën a cher la wax ndax daa deux mille teew di yéen bokkum tiise xam li ma bëgg a wax dégg nañ mooy loolu mooy sëñ bi ci yoon wi mu ñëw andi ko loolu loolu mooy al tariqatul muridiya al tariqatu suufi al hadiya ila la asasa cheikhul xadimi al imani wal islami wal ihsan sëriñ Tuubaa wax ne kon fal ulama muwaxaduun umaatul shariatul mutahara والأقطاب المخلصون مقربون ذابون عن الحقيقة المنورة المقدسة فالاحترام الجميع لوجه الله تعالى متعين والتحبب بين العلماء رحمة الله عليهم حياة الشريعة المحمدية واختلاف في المسائل تعلم وتعليم لا عداوة ولا ولا تحاسب سن جوبا نانا بروم خم خمي يي سام شريعه اك aqtaab yi خمني xam ne ñoo sell jege suñu borom tey sàmm xaqiqa nee na warmaal leen ak waggar leen lolu war na ci ñom ñep ndax borom xam-xam yi seenu bëggante ak seenu and yërmande la seen wootu ci masalay diine seen wuute ci masalay diine ak seen jàngalay diine nag warta jur ak bañante warta juroo warta jur ak iñaanante ndax kii dafa déggee nii diine kii déggee nii diine mais l'islam mënuñu ko changé kon jëmmi wuute yenn yenn yenn yenn masala yi warta tax kii bañ kii wala kii bañ kii warta nekk ndax tey njàng mi mën naa wute ay ay dox yi mën naa wute it ay ay melokaan moo tax Sëñ Tuubaa ci gàttal mu ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah mel na ni waxtu julli jox na ko li sakinatan bikum lil janna min daari minan yaatal minna li sakinatan bikum mbokki téléspectateurs yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ginnaaw bu siyaare jaajëfal bu baax ci ànd bi ak seen télévision Touba Argentine TV ak Touba Vision tey jii télévision ñëw fii nga xamante mooy seen màggal màggal gi ñu amal édition 2019 bi nekk fukkeelu édition ak ben bi ko solé biñ ko amalé ba légui Daru Sam nak ñu ko sos ci atum 1900 1906 ci ki nga xamanteni modi moo di sëñ Massamba Diop Sam mom moko gor ci ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye nag mi ngi wacc ab liggéey ci atum 1926 ci le wacc ab liggéey 1998 la ñëk amal li nga xamanteni moy mooy màggaluk euh, Daaru Saam Diop nek ci région bu Cheikh département bu Tivaouane way ci commune bu Ngandiouf tay nak euh, li nga xamanteni modi euh, conférence bi ñi amal ci guddi gi muy aljuma ñent fan ci wéru 108 atum 2019 ci teewaayu khalifa bi way ci teewaayu mbolam set yi ci teewaayu ñi nga xamante mo di askan yu bokk jullit yeeg bokk taalibe yi xarit yi soppé yi am di jamm yi conférence bi nak ñaari diko ñaari conférenciers yi ñooy amal li nga xamante mo di traité thème ñoy traité li di thème yi bi ci top di ki nga xamante mo di Serigne ganna Messere muy waxtaan yo xamante ni des na ko ak yéen incha ci kanam tout ci li nga xamante mo di mbar mi ñu def ci dëkk bi ñu fàttali nag daru sam job nek na dëkk bo xamante ni boo ñëwee ba wessu sagata ci ngay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 ak yéen ànd ko ak sunu caméraman Baye Mbaye waye tamit ak Serigne Khadim sek mi nga xamante moy assistance bi nek ci réalisation bi ci cadeau gi rek Moudou Mahfouz jaxatalé kon ni ñuy def dañuy ànd ak yéen egg ci bir mbaar mi fekk fi ñi nga xamantani ni ñoo di amal conférence bi muy Serigne Mbacké ak ki nga xamantani ni Serigne Gana mesere ak Serigne Moudou Mamoul Amar ak bokki talibé yi soppe yi xarit ak am di jàmm yi kon ñu ànd ak yéen jàll ci bir bass bi bismillah Serigne fallu Diop no ngi lay nuyu bu baax de la ziaré yow it bu baax ci taxaway bi ak liggéey bi mu mel ni bokk yi dañoo waxoon nu waxtaane taxawaayu ab taalibe ni mu war a ànde aku sëriñam te loola bu nu ko tënkee ci tur wu mag ba muy tudd moo di ak taalibe yéen a ngi mu mel ni waxtaane ko it lu am solo la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 kon day melni ku roy mag ñi yaa ngi roy sahaba yi ndax sahaba yi ñoo nekkoon royteefu mag ñi ndax loolu waxi serigne touba la mu di loo xam ne it waxtaane ko lu am solo la mu di al iradatu sadiqa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 بقول الصلاة ترك المريد ما عليه العادة ترك المريد ما عليه العادة موي باي لجو يو الدين لك نخم جنة عادة أم نتي عادة يرفت يو خم نبيكو في الإسلام فكه دفكو جل تبال كوشي نو تغيين انت بي عليه السلام بمو نيوه وخول ندما نيونجر صص أي جيكو وايدنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كون عليه السلام دفن يونجر مرتلي كون أمنا لوم في فكون شاي جيكو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 تاي المريديه موي يوف لا تاي ген نك مو تود لول ميغي ملني بو ني ايشينو سوكوسيم ني ген تي سيما ديكو سيما سوكوسيم بو ني المريديه كاي ген موي تود ال المريد جيمي المريديه بوكاي دغ موي لان موي الطريقه الصوفيه الهاديه الى الله اساسها الشيخ القديم على الايمان والاسلام والايمان wal ixsaan moo di yoonu tasawuf yoon wuy jubal nit di ko teg ca yoonu yàlla ngir mu yàgg ca waaye mu tabaxe ko nag ñeenti kenn muy li ñu tudde al ilm al amal al ibada al adabul xasana te moo di xam-xam ak jëfee ko liggéey ak jaamu yàlla ak teggin yu ñu gërëm loolu la sëñ bi sosi yoon muy baidatun anil ifraati wa wa tafrit nekk loo xam ne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 di la yar na ci bàyyi lépp loo xam ne mooy aada mu ne ma di la ko def loo mu fa kullu man qabla wuzuli i'tazal walam yurabbihi murabbi qad kamul fa innahu yaxoodu fi bahri raba wala yajidu minhu shay'un abada li annahu yaquluhu shaytan wa nafsu wal hawa kama aban Sëriñ Tuubaa nee na nit ki bëgg ber yoonu boppam rek ne du wut sëriñ bu muy àndal Sëriñ Tuubaa nee ku beru te egguloo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 Serigne Touba nee ñaar tax a ci ñaar ngay def bëgg a egg ci yàlla na wut ñaar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 dal di tegtalee boppam ne mom wasilaam mom Serigne Touba ci bopam mo wax ne ab serigne mo yonnati bi alayhi salatu wasalaam wasilati abduhu al muhtar sayyidina huwa alladhi man aba taqdimuhu khufida la taj'alanna bayni wa baynaka abad wasitatan siwa al muqaddim sallam kon mom xamna ne kim jël muy wasilaam muy yonnati bi alayhi salatu wasalaam kon neena leer na ñi am xel ñépp ne yonnati bi alayhi salatu wasalaam moy sama wasila allah rabbi والنبي محمد وسيلتي له ونعم الزمن كون سيرن توبا لولا لا جانغالي وايي نك مو اندي لا ميلو نك اب سيرن با نوبي دورا وني نك ميلو كي توبي كي مي توب ن ميل سيرن توبا دا فخني دسنا سارتي كي اب سيرن مو نك بروم خم خم بو نونغو جامو يالا راغال يالا سامو ددو ادونا دي ديغلي لو باخ دي تيري لو بون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 motax amna ben nar bo xamne bi mi misal serigne Touba dañe dafa dañu massa dafa am ñu massa tok toog ci moom di wax ba tuddu serigne Touba wax na Cheikh Ahmadou Bamba nar bi dal na Cheikh Ahmadou yanba ay bil hazaniya ya'lu mu ne sëñ Touba mo kawe dal na baatu cheikh ñetti arafa ko composé shinul mu'ajjama al yaa wal xaa mu ne mooy shukur li ni'amila yamuru bil mahruf wa yanha anil munkar khaifun min makrillah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 bamu ñewé jaayante ak mom ngir jox ko seen bop mu xamalon nu nag bu yàgg ne gañu bax ji fi nekkon amon nañu ay talibé wala gañu bax ji fi nekkon amon nañ ay sëriñ yu leen di wamal yo xamne kenn ku ne ci ñom bo demé ci xokal bu ko won na la melo wi gañu bax ñoo ñu melon kullun min al qawm cheyqun aalimun wariun منهم رب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وهله أبدا منهم مرب مرق بالإشارة كون نيونيو أمون نيو خامن دنج دان وماتن نك نيو سام نك نيو راغال يالا خامنا جانغوري خول كل خبير بأدباء القلوب معا يكفي المريدين أنواع شقاوات خامون نان nit ki buñ koy terbi diko defar li ne ci mom xam nañ ki dafa bëgg alal ki dafa bëgg lek ki dafa dafa tayel ki dafa iñan ki dafa reuy ki ki nangam ki nangam xam nañ tawat yi ne ci biir xolub jambi ba buñu koy womat man ko womat ndax doxinu sel wo woowu ñu seen diggante borom motax ñu ne fa shaykhul kamil huwa allazi yantahiju bi nahyi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa yaqtadi bi af'alihi wa aqwalihi muhtadiyan bi taalimi alquran aamilan bi ahkami sharia wal haqiqa serigne bi lay womat mu ne day nek ko xamne day roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sëñ touba neena awma genn beug lu may roy yonente bi alayhi salatu wasalaam waye ci ay jëfëm ak i waxam day nek ko xamne ci njàngale nu alquraanu karim lay sukkandiku waye ci atay sharia ci lay atew ci doxin ci xam-xamu fiqh ak ak tasawuf ci loolu lay dox wa wajabat taatu man yakhfu rasul salla alayhi man bihi yahbu bi suul min ruasai diinil kamal man laa yura minhu siwal jamaali sëñ Tuubaa nee na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 ab naa fi sama kelima, ñaan nafidah fi da dana la taxawal fe di nafila wala demal di sikar ngir nga kafaro ko bat bi nga waxon ci bëccëg bo gisee dox yi nu mag ni taxañ gi gaaw mooy ñu dox ci ay neen ndax ñeenti non yi teunk nit ci ba da ko xam muy shaytané ak banex ak bakkan ak aduna aduna ci jaxasoo bu mu njariñ muy beru shaytané ci sàggan muy ghafla mu di leen jox ñi sikar di jang alxuraan di jang ci wax ju bari jo mu mu di leen loolu señ ci ba doon ande ak ñom